teel a commencé. Euh, waaye euh, dañuy def rek fexe joindre l'utile à l'agréable ndax lépp ci la bokk. Mhm. dañ leen di nuyu yéen ñëpp rek di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal plateau bi dama koy tàmbalee ci sama ndeyjoor daal di nuyu ki nga xamante ne sama rakk sama xarit. Mhm. ah sama doomu ndey. waaw ah, waaw ma faali kumba ndaamu. maa ngi lay siyaare sama xarit ah, loolu moom rituel la ci man. waaw loolu mënul loolu mënul ñàkk. maa ngi lay siyaare bu baax di la bëggee. di leen siyaare bu baax a baax a baax di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di leen bëggee bu baax a baax tey ci bis bu mag bi nga xamante ne nii fi la ñu daje war a waxtaanee loo loo xamante ni lu am solo la waxtaanee loo xamante ni suñu njëriñ la waaye njëriñu réew mi la mm-hmm. war a waxtaanee loo xamante ni njëriñu képp kuy seetaan la mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax ci taamu gaa bi gaañu taamu la 2STV kontaan ci bokk ak yow plateau bi sama jigéen xam nga nag ko bëgg lu baax faa nga taamu la 2STV c'est propre leer c'est propre. Hmm. Ah, nañu rafetal rek tey. Ah, du ma du ma du ma tooñ du ma def. waaw nan nan rafetal. c'est propre daal. Hmm. jërëjëf Mbaye. jërëjëf jërëjëf <laughs> tey Mbaye bu ma jógee ci Modou damay dem nuyu sama xarit. Hmm. Ah, nga xam ne namoon naa ko lool wax dëgg yàlla. sama sama xuloo waale sama lakkal. sama sama daal ci gerte gàttal gàttal. ay waay Ceddo. siyaar naa la. ajaratu bijou. soxna see tax xaw ma nu ma lay def. waaw waaw ndeysaan parce li gën ci ñun lañ la jox. waaw moom la ma ñëpp ruusee rek. waaw maa ngi leen di siyaar bu baax. jërëjëf Tendam. di ko siyaar nag di jëkki ci moom. Mhm. ndax Cheikh Ibra Fall mooy maamam. waaw waaw. Euh, di siyaare bokki jullit yi ak mhm. réew mi yëpp. Mhm. ak réew. di jiital samay kàddu tudd yàlla julli ci yonentam bu tedd ba. wax jërëjëf Serigne Touba. Euh, di sant Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool ten ànd ak université bi yegg mu joxe ay diplôme ay génération génération mm. di am mbég lool ci ñi bokkal plateau ñoom ñëpp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm rawatina Modou Mbaye ndeysaan moom mi tax gaa yëpp di kaas <laughs> waaw maa la te mu baax fi lool ndax bëgg Serigne Touba <laughs> waaw ak laaj yoo xam ne c'est les questions du sénégalais lambda mm. li ñëpp bëgg a xam ci Serigne Touba mm. léeg-léeg ñenn ñi rus ko laaj mm-hmm. waaw léeg ñu njort ne yow xam nga ko fekk xamoo ko mm-hmm. saa boo laajee laajal nga leen incha dëgg la looloo tax ma bëgg lool ci jataay bi macha allah ah, waaw tedd teddoo ñu noonu ñu ngi koy gërëm bu baax xam nga ne yow boo soññee ci université bi mm-hmm. dalaa war ndax ndigal li nga ci jot mm-hmm. waaye man it damaa war a soñee ci socialu Touba ca kanam dëgg donc euh, euh, euh, may wax gars yi mm-hmm. murit ndigal te ndigal li fi mu ne nii mooy jëf waaw jëf ji nga xamante ne Ceddo wax na ko léegi muy ci université bi waaye tamit Touba ca kanam mm. euh, euh, dañuy def li nga xamante ne moom mooy social mm. ah social bi ñu ciy dimbali ñu ci bëree bari ñu ngi ciy tabax ay hôpital ñu ngi ciy def euh, keroog expliqué nañ ko te xam naa ne détails yooyu yëpp dinañ ci gën a dugg wax dëgg yàlla gars yi dem leen ci wéef bi rek ngeen lu ngeen ci dugal rek xam nga xam ne xam ne wax dëgg yàlla sànniwu leen ko da ngeen koo jëf ci sëriñ bi mm. donc dem 78 la numéro bi 500 quarante 544. waaw waaw foog naa boobu la de bu fekkee ni que la euh, leer euh, wala wage ñi nekk ci région bi bu ñu mënee jàllale numéro bi rek da ciy baax. Mhm. Ah, ci plateau yu mel nii. Murit mhm. euh, Serigne tubaay yi daal di ciy mën a tàbbi. Mhm. waaw bu ma jógee ci ceddo damay dem nuyu ki nga xamante ne moom mooy suñu kilifa. Ah. Ah. suñu suñu wax dëgg yàlla. mu yar ñu. ñu am fierté lool toog ak moom ci plateau bi et c'était pas évident. la ndax wax dëgg yàlla euh, euh, bu ñu melee nii am na ci part de responsabilité. dëgg ci part de sant sëriñ bi bu baax ci teewaay bi nga xam ne bokk nañ kook moom ci plateau bi. wax dëgg yàlla su ma nee c'est pas évident Modou Mbaye mhm. xam nga nga dem ba toog ak sa. kilifa ku la jàngal. Mhm. nga toog ak moom plateau c'est pas évident. waaw muy sëñ Galas. Mhm. wax dëgg yàlla sëñ Galas Jatara. ñu ngi kontaan bu baax ci teewaay ma fekkee ko man nag xaw ma tey nu mu mën a demee mais doy na waar ci man daal. waaw jërëjëf jërëjëf sëñ bis ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi bokkal plateau bi ñëpp di kontaan bu baax nag wa nusallimu ala alxalifati alam li taifati almuridiya cheikh mohamadin almuntaqa wa jamihi abnaahi touba di bég lool ci teew gi nga xam ne teew nañ ko fii tey ci guddi gu tedd gi nga xam ni mooy guddi gi topp ci bëccëg gi maam Cheikh Ibrahima Fall gise woon ak Serigne Touba ba jox ko boppam ñu bég loolu nag ci teew ci ñi ngi nuyu kilifa yi nag ak fu ñu mën a nekk di nuyu mbokki taalibe ak fu ñu mën a nekk mbokki jullit yëpp di nuyu nag ñu bokkal plateau bi ñëpp nag ci biir loolu ñu ngi beral ab nuyoo Cheikh Abdoul Karim Mbacke mu Serigne Fall mi nga xam ne ci këram lañu bawoo kon biisu ñu delloo la kàddu gi ba ba mu del si waat waaw waaw waaw sëñ Galas ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay mhm. di la nuyuwaat bu baax waaye dañuy dem nuyu aussi suñu xarit ah mhm. ñu koy wax euh, sëñ Mamour Ndaw mhm. sëñ Mamour ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay ci plateau yi di la bàyyi nga nuyu euh, ak mbokk téléspectateur bu 2STV euh, tubaarkàlla <coughs> aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maha balaayi wa maha amraadi wa birida tanqaadu li amraadi waaw an ziraara xalq wa moo wa jinna wa saytaan balaaya gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sumb yeneen i naal. waaye di ko ñaanal baax sunu jàmbaar ji di Serigne Cheikh Jëmm. di sunu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom mu dal ko fa yàggal bu baax. te gën koo dolli ak wér bu baax a baax. <clears throat> di fetlewaat bu baax sunu pas-pas. ci pas-pasu ko mm, ko façon nag Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul muy Cheikh Ibrahima Fall di yeesalaat bu baax sunu jaayante nak ci njëgguñu jaral ci jaayante ki njëkk jaayante ci yoonu mouride te mooy Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ci bis bi nga xamne mo moo ñaar fukki fan ci wéru koor nga xamne ci la joxe bopam ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, ci Mbacke Kajoor nga xamne jaayante gu te day dugg ci bir jaayante goge mhm. ñi ñaan sunu borom mi nga xamne mo mm, ñuko fekkalo wat ci jotaay bi nga xamne fi nañ ko fi daw ci waxtu yi ci koor gi di ñaan sunu borom ñu fekk wa ko ay ati at mhm. di la ziar bu baax tey ziar mboolem mbokk yi ñu bokkal plateau bi yëpp di ziar bu baax jëwriñ ni kër gi di El Hadj ak mboolem ñi àndal liggéey bi mhm. eh, di sant bu baax te wax na nag ndigal li ñu fi indi mooy ndigalal maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh jëm bu tey mhm. toogal fi maam Cheikh Ibrahima Fall oh, jotaay bii nga xam ne moom lañ jagleel maamam muy bis bii nga xam ne kenn dootu ko fàtte ba àddina tukki. Mhm. mooy bis bi nga xam ne ci lañ nangule ku tedd kii di maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. te sëñ Modou ne bañ ko nangulee. Mhm. lañ nangul ñëpp buñ ko nangul nangul kenn. Ah, kon tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee jàmbaar jooju ak la ca xewoon. Mm. incha allah incha allah euh, jërëjëf sëñ Mamour. ah xam nga sëñ Mamour Ndaw moom fi mu ne nii plateau bi moom. moo fi priorité. ndaw la sant. waaw waaw kay sëñ Mamour ñu ngi ah, kontaan bu baax. dëgg yàlla ci plateau bi waaw jarul expliqué yëpp. bu ma paree Thiedo <laughs> damay dem nuyu sa sëñ Modou ah sëñ Modou Aïda Fall ñu koy nuyu bu baax di ko bàyyi mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi koy seddaan mbokk jaar bi yëpp mm. di tàmbalee suñu nuyu ak suñu jaar ci Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne moom moo fi nekk sëñ Touba di ko ñaanal suñu Touba suñu borom guddal fanam bu baax ci barke maam tëdd jënd li mu yéene liggéeyal borom Tuubaa lépp mm. suñu borom kàttanal ko wéral ko comme def ko ni ko soobee tànn comme jabar suñu Tuubaa gépp di ko ñaanal baax suñu Cheikh Jëm Fall ma moo fi wutu mm. ñaan suñu borom guddal fanam bu baax moom ci tollu wéram te gën ko fa yàggal mm. ak njabootu Cheikh Ibra Fall gépp di ci mm-hmm. jaar di ko jaare ci suñu buntu ci Cheikh Ibra mm-hmm. muy sëñ Moussa Fall Fallilu ñu gën koo xam ci sëñ Moussa Mbar mm-hmm. ak jëwriñam ju tedd ci di sëriñ Fallou Fall ak njabootu Cheikh Mamadou Fallou Fall gépp mboolem cheikh serigne touba yi mboolem cheikh cheikh Ibra di ziar bax ñin bokk plateau bi. Mm-hmm. di ci bég lool nak di ñaan mboolem luñ fi xel rek ñaan nako cheikh ibrahim Fall ful te nangul nako amin amiin di daraje borom Tuubaa ak Seex Ibrahima Fall. amiin jërëjëf. fa euh euh dañuy dem euh, nuyu ki nga xamanteni aussi mom moy Serigne Abdou ndjay khassida han ah, muy mom ginnaw khassida yi nga xamanteni mi mm. koy mi koy jang mm. waaw serigne touba dafa dogal mu nek douanier. ndeysaan waaw. waaw muy douanier. muy douanier. Mm-hmm. xam nga rek xam nga nag sëñ Touba moo am lépp moo am lépp kay sëñ Touba am lépp ñu koy nuyu bu baax. di ko dalal ci plateau de. Mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi leen di nuyu bu baax di leen bu baax di ci jiital Cheikh ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko gannaaw li naanal sëriñ bi yépp sunu borom defal ko kàttan gi ak gudd fan gi ba mu yeggale ko te nu fekk ko ñun ñëpp maa ngi ziar mbooleem sama soppe yi ci biir réew mi ak bitim réew yi yëpp. Mhm. di leen nuyu bu baax a baax a baax di ziare bu baax e, sama way yu jigéen di ziare sama sama famille bi yëpp di ziar sama soppe yi ci Fass Mbao yëpp. Mhm. di ziar ñi bokkal plateau bi yëpp nag. Mhm. di ñaan guddi gi. yàlla na nu sëriñ bi dimbali ba nu fekke ko at yu baree bari yàlla na nu ko fekke téeméeri at yu tàmbali ren ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall te lépp lu ñu jëf rek yàlla na ko Cheikh Ibrahima nangu waaw kay jërëjëf bisu jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou euh, euh, comme ni ma ko waxee léegi rek euh, tey guddi gi ceddo dañu fas yéene waxtaanee waxtaanee ki nga xamante ne. Euh, nee nañ bu ñu bëggee Serigne tubaa te xam Serigne Touba. moom moo tax. donc euh, du kenn ku dul maam Cheikh Ibrahima Fall. ñu fas yéene ko waxtaanee ci kilifa yi nga xamante ne. wax dëgg yàlla ñoo teew ci biir plateau bi tey. mu moom la ñuy def ci premier partie bi. waaw ci deuxième partie bi tamit dinañ dugg ak sëñ Galas Jatara. ñu waxtaanee Serigne Saliou. waaw. ñu waxtaanee Serigne Saliou mhm. ci dundinam mhm. ci nekkinam ak ndaw ñi mhm. waaw ci jikkoom ci xam-xamam donc ci yu bari yoo xamante ne dinañ ci dugg moom tamit ci biir waaye tamit guddi gi tey dañ ko accompagner ak ñi nga xamante ne su ma nee Serigne Saliou automatiquement rek mën naa jubali dem tapis vert waaw parce que tapis vert euh, borom tapis vert ah euh, euh, ñu koy wax Amadou Gueye fifty taalibe Serigne Saliou bu mag bi moom mu ne plateau tey bi moom ute na ñuy waxtaanee Serigne Saliou te du ci def ay affaire waaw rawatina guddi bi nga xamante ne moom la Mame Cheikh am mm. d'ailleurs, donc Euh, euh, faaw 50 wax dëgg yàlla tapis vert tey ah. ñu ñu ñu jaajëfal ko jaajëfal Awa ak Souleymane ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw fii tey waaye dañuy jaajëfal aussi Abdoulaye ah, bu baax a baax a baax borom amee ci traiteur moom découpage yu naay si moom moo koy def waaye Modou Saliou moom mooy génne li nga mmh. xamante ne moom mooy fruits yi di ko jox mmh. Mmh. waaw donc plateau yi day xéwale ba nga xamante ne affaire yi day ñëw naturellement kenn du ci def cent francs waaye ñoom ñëpp bëgg Serigne Touba moo tax kenn ku ci nekk di ci tàbbi waaye ñu ngi leen di kéem ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a euh, dëgg yàlla euh, euh, nuuru laaj moom ci la bokk mm. waaw nuuru laaj ci kër gi la bokk mm. Mm. waaye tey nuuru laaj yu dafa am beneen seex bu ñëw waaw waaw ñoom dañoo dañoo def rek benn dugg serlu waa serlu waaw ñoom juillet la ñu indi waaye tamit dinañ leen gis vendredi incha allah ah ci ay ci ci yeneen yoo xamante ne xam naa fifti nag dina xajale tuuti rek waa serlu ñëw daal def li nga xamante ne moom mooy seen ay affaire waaw ñoom ci biir plateau bi léegi-léegi dinañ ci dugg mm-hmm. waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo waa waa naka saaliha communication maye nañ ay téléphone portable tey pour suñu gan yi tey ah, dinañ ubbi ligne bi aussi hmm. wax dëgg yàlla waa MG business parfumerie hmm. parfum de classe saay suñ ko bëggee rek hmm. ñoom it joxe nañ ay ay ay xéewal pour gan yi nga xamante ne euh, euh, invité nañ leen tey ah euh, waa ah, Firdawsi nga xamante ne ñoom ñooy defar dàll yu yànj yi am na façon bu nekk nag ñoom ñoom teraloon nañ ceernoog ak yu ni dañ dañuy dabu seen teral rek ceerno moom xam naa ne day cëru seddu sedduwaat ah, parce que waaw waaw sëñ Tuubaa dogal mu fekkee woon fekkee waat. mënut a ñaax mënut a ñaax moom ceddo yaa ngi nii rek. mënut pare rek buub bagage rek daw. <laughs> <laughs> yow boo demee rek yow yóbbul ko na si. ay ca ba tey euh, gis nga kaamil yu yànj yi nga xamante ne. Mhm. waa Albamba ah. Mhm. Euh, euh, wax dëgg yàlla Albamba shop. Mhm. ñoom ñoo ko def ah kaamil yoo xamante ne c'est des kaamil personnalisés. gis nañ sëñ bi. Mm. yore ko mm. ah, ah euh, man nga xamante ne coffret yi may defar sax ci ñoom laay odowe mm. donc euh, euh, ñuy am tawféex bu baax a baax a baax ci cadeau yi nga xamante ne defal nañu ko defal ko gan yi nga xamante ne dañ leen di lii foog naa per bekaay moom moom bi sëñ Abdoulaye Bichri moom moom bi ceddo am na bosam joxoon nañ ki nga xamante ne moom mooy ëmm seen ñoom la dëggee rek ñu ni mel donc wax dëgg yàlla dañuy am tawféex bu baax a baax di kontaan à chaque fois ci albamba waaye xam naa ne albamba yi tey moom dina yënguwaat parce que personnalisé la bésu ceddo ceddo sa bés bi GPB ko indiwoon waaw yii nag bokk na ci xéwal yi nga xamante ne mhm. waa machallah cargo ñoom ñoo ko joxe suukaru koor mhm. waaw waa machallah cargo ku ne xam na ne ay partenaire euh, euh, sponsoru confrontation lañ waaye ay sponsoru 2S lañ tamit mhm. wax dëgg yàlla ñoom dañu génne ay suukaru koor jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateur yi seetaan encore plus wala wala jàng yi waaw yu yi ay ay ay laak ay kurus ak yu ni mel wax dëgg yàlla ami silla mm. ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu euh, mbokk taaliba ya fa nekk yëpp mm. ñoom gaawaan ah di nuyu xadi di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla di kontaan ci teraanga yi nga xamante ne ñu ngi koy def ak ñun waa au royal à chaque fois ñi ngi ànd ak ñun ci émission yi ñu leen di gërëm bu baax nii lay demee à fois ci émission yi mm. ci biir ci kanam tamit dinañ ñëw rek dugg gën a xuus ceddo euh, euh, Modou dama lay bàyyi nga daal di euh, tijji ñu déroulé ma jox ceddo rek ñu daal di dugg ci waxtaan bi première partie bi. waaw ndax ci Cheikh Fall la ñuy waxtaan. waaw alhamdulilah ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax comme ni ko sunu mbokku taalibe yi defee rek. Mhm. di ñaanal sunu sangu bu tedd bi mun Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool. Mhm. ba naal yi mu naal bëgg ko liggéeyal maam sunu borom moo tëlil ko ko. ci barke yonente bi Bijou Ngoné mhm. tey dafay boo xamante ni bis bu am solo la comme ni ma ko waxee léegi ci àdduna de bis boo xamante ne bis bu am solo la ci yoonu murit mhm. ndax dafay daje daje buntu day dajeeb ñaar mhm. buntu yoon wi mhm. ak ki nga xamante ni mooy yoon wi muy maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba muy loo xamante ni yaakaar naa ni ñoom ñaar seen daje bi bu amul woon amaana lu bari du mën a feeñ muy daje boo xamante ne nii li ci Sénégal mën a jëlee li wala li ci Sénégal war a mën a gañee bari na li ci Sénégal war a mën a jàngat bari na yaakaar naa ni boroom xam yi ñoom loolu moom moo leen indi ngir tey ñu waxtaanee ko sañ Ceddo mhm. yaakaar naa ne guddi tey gii moom duma la ci sax introduire mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall daje ak Serigne Touba mhm. mu am ci réew mu ñuy wax Sénégal loolu yaakaar naa ne ngëneel la macha allah <clears throat> Modou maa ngi salaat sama nuyoo bu baax a baax euh, li nga junju defe naa mooy li nga xam ne moo ñuy tax ñu mën a waxtaan ak sëñ Mamour Ndaw Baye Fall. Mm-hmm. ko sant bu baax nag ci disponibilité am. Mm-hmm. Euh, tey la ñaar fukki fan ci weeru koor. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima Fall ca ñeenti fan ya la ñëw ci sëriñ bi. ñeenti fan ya ca ñeenti fan ya. li tax nag ñuy màggal ñaar fukki fan yi. moom dinañ ko laaj sëñ Mamour. waaye euh, li nga xam ne moom ngay xam rek mooy ca njëlbeen. fekk na sëriñ Touba am ñu mu nekkal. ñu farlu ci ñeenti fan yi la ñëw moom ci ñeenti fani koor gi la ñëw te ñaar fukki fan ya ci vingtième jour bi ci la mbir ma sottee ah. loolu moom dina ci delsi ba mu gën a yaatu gën a leer mm-hmm. waaye am na ñu fa fekk mm-hmm. ñoo xam ni euh, mel nañu nañu war a mel mm. ndax booba Serigne Touba ku takkook moom rek di nga defaru waaw di nga nangoo jaamu yàlla di nga nangoo jàng mm. doo nelaw guddi mm. doo noppalu te lépp sa sa dund gépp ci yàlla nga koy sànq mm. ndax booba ceernoo nga fa mm. booba sëñ daam abdourahman loo nga fa ak ñu bari ñoo xam ne tey jii ay référence lañu ci yoonu murit mm-hmm. Cheikh Ibra dafa particulier particularité boobu nag moo tax saa su ne bu bis bi ñëwee ñu évoqué waat xew-xew ba ba mën a am ci jataay bi loo xam ne ku di murit rek danga ko séddoo ci jataay bi mm-hmm. da nga xam ne kat Cheikh Ibra ñëwam nga moo taxoon nga am lii waaw loolu nag sëñ Mamour mm-hmm. euh, ñu bëgg rek diggante Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mm-hmm. ca gise baat ndax am na lu ko daan wax ne ko sëriñ bi ngay seet nangam ba ca cotti la rek ci ñaar fukki fan yi lu xew genèse du compagnonnage bi compagnonnage bi jërëjëf euh, Thierno Mouride Sadikh jërëjëf solo su laaj bi am na solo lool. Mhm. mënees na cee tontu loo xam ne. Mhm. Euh, du ñu génn ci lu ñu mag ñi nettali te Cheikh Ibrahima leen yar. Mhm. Euh, maa ngi fàttali na nag. lu ma fi nettali. ku Cheikh Ibrahima yar moom ko wax mbaa ku Cheikh Ibrahima yar baayam. sama diggante ak Cheikh Ibrahima daal du sori dama naan la diw nee na ma. Cheikh Ibrahima nee na ko. wala diw nee na ma baayam nee na. Cheikh Ibrahima nee na ko. ndax maam Cheikh dafa waxoon ne Baye Modou Mbaye Issa Issa Mbaye ko jur Cees la dëkk Issa nag moo joxoon boppam Cheikh la waaye ci biir njëbbal ga ak jaayante ga mu taawloo Modou Mbaye Issa jox Cheikh Ibra teg ca Baye Basirou Mbaye jox sëñ Modou Moussa Fall ak Baye seex Mbaye Kange Baye Modou Mbaye Issa nee na Cheikh Ibra Fall moo mën a ca Cees Modou mbay isaa ma ne Fall munuma aw may téere doom sëñ Bamba amee téere waaye danaa fi bàyyi mag ñoo xam ne luñ ñu wax dëgg la te mag ñi dañ fi yàgg. mag ñoo ñee nag ñoo ma ne. Mhm. ma fas yéene na leen. Mhm. yéen. Mhm. Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina wax nga léegi ñeent fani koor la ñëw waaye ñaar fukki fani koor la ñuy fàttaliku tey. lan mooy sabab si. mooy contrat bi. tey lañ ko signé. ñeent fan yi la fa jiitu. mooy daa ñëw di sàkku li ko boroomam jox ndigal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngir jox ko boppam yàllaa ko yabal ngir mu jébbalu ci ku tedd ki mas nay xibaar ak njébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom xam nga sëñ Moussa Kane wax loolu loolu moo sabab Cheikh Ibra Fall di wër Cheikh Ahmadou Bamba ba fekk ko Mbàkke Kajoor waaye bi mu dikkee nag ci ñeenti fan yi maanaam lam wax sëriñ bi waxante ga ci fan ya mo sabab njëbbal amagutoon ba ci ñaar fukki fan ya seigne Moussa Kayit leral na ma wax la bis ba ngir mu wóor ñaar fukki fan la ci weeru koor di dibéer la mbir ma wóor moy mm. moy bis ni ki tay ñaar fukki fan ni koor waye nak ndax damaay bëgg yegg ci yalla mm-hmm. lolu man na buri nopp fi ñu tollu mm-hmm. ba tax na mënatu rëccub dëng ku yalla bind Mm-hmm. waaye boo ko kenn waxagul ko ko njëkk wax xam nga ne Thierno waxut wax ju ndaw ndax yàlla du dëkk mm-hmm. yàlla du nit ba nga naan dama caa bëgg a yàgg mm-hmm. te loolu la Cheikh ra Fall wax ku tedd ki loolu mënut a yomb ci saa si lépp sotti sëriñ bi it xamal ko na ko bu ma xamoon fu yàlla ne ma fekk fii ma toog Cheikh Ibra it na ko damaa topp tànkam ba bam sof yow bu ma génnee tànk ma génn kër gi aw moo fa soxla kenn ku du yàlla mm. kon Cheikh Ibra lambatuwul de mm. xam na lu xew mm. am xam na li xew ndax nee na bëti xol la yàlla defal yoo xam ne du ku ma gis ngay nuru nuru la ko rek ma teg la ko déedéet moo tax nag ba mu demee nag ba xam ne nag li muy wër ak li ko yàlla joxeñ mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mm. moo waral nag mu taxaw ngir jaayante pour joxe boppam mm-hmm. waxante googee nag léeg mu tëju ko mm-hmm. léeg-léeg sëñ tëju ko mm-hmm. léeg-léeg mu toog ab diir na teg di xaar diggante boobee mooy ñeenti fan yi nga wax mu jàll nag ci fukki fan yi ak juróom benn mu mat ñaar fukk Cheikh Ibra Fall na sëriñ bi nangul ko njëbbal ga lolou moy moy bis bi di ñaar fi fani koor lu lolou nak ci do xam nga mam Cheikh Ibrahima Fall baye mouridina Muridina mi ngi bokk ci njabi Fall ci keur bayam bu de ci wak ndeyam mi ngi njara waw njare fi may waxe yow ni juróom-ñaari njare la won yu bari gent nañ sax ndax ñu bari xam nga leg dekk yu bari taxu nañ touba waye dess na nak dess na ndax njare Dakar moom xam na ko njare keur sali njare Xorondom njare wàqi léegi eh, fi ne tey jii njare wàqi maam alaaji mëgey njare mu xaddum maam alaaji malik si la tey sëñ Mara Ndiaye ku baax la moo fa nekk tey moo yëlif dëkk ba et tijaan yu baax lañ waaye mbokki maam bu Ndiaye lañ dem naa ci dëkk ba ba gis na njare wàqi alaaji mëgey njare mu xaddamu maam alaaji malik si la moo moo yoroon dëkk bi ci njare tey jii doomam mooy borom dëkk bu muy alaaji muy maam sëñ Mara Ndiaye mbokki maam Seynabou Ndiaye la ñoo sëñ Daaru Asan Ndiaye ak Cheikh Rafal ñu bokk lépp benn fan yi bu la fa la Cheikh Ibrahima jógee mm-hmm. toppi ku tedd ki mm-hmm. léegi nag maam Cheikh Ibrahima Fall nag bi bi nga xam ne nag gane na jamono ci biiri kër yi way juróom mm-hmm. lam war a xam lépp mu xam ko ci diggante way juróom wu góor ak way juróom bu jigéen lu ëpp sax ci jigéen way juróom wu jigéen ci la ndax way juróom wu góor daal teel a génn àddina booba defe naa Cheikh Ibrahima tout tànk la ci saa yi ak sëñ saa yi Fall waaye way juróom wu jigéen nag moom daa gudd fan moom ndax léppi Cheikh Ibrahima ci kanamam ndax 1922 la wàcc liggéey kon fekk na lépp Cheikh Ibrahima waaye nag gannaaw bi maam Cheikh nag nekkee njare ci dëkk bi nga xam ne fa la fekk baax nga xam ne eh, Balla Faage yi mi jur maam Seyni bu Njaay mais ndaayam dafa yoroon daara di jàngale ci biir Ngarawàq ay nijaayam di Njaay Fatma ñooñu bokk ak Seyni bu Njaay yëpp di jàng ci daara ji Cheikh Ibra bàyyam génn àddina ay nijaayam yor ko di ko jàngal mu xam li mu war a xam lépp ci tund njare ba yàlla dogal nag sunu borom ci boppam tegtal ko Serigne tubaa ngir mu war a xëy joxe ko boppam booba vingt sept la am ñaar fukki ak juróom-ñaar mu war a jugee foofu ngir seeti ko ko sëriñ bu ko yeggale ci yàlla muy Cheikh Ahmadou bamb waaye taxul nag mu xam fu mu koy fekk wala fu wala nu wala nu mel wala wala fan la dëkk. lu may daal xamal sun borom xamal na ko ne. ki feeñ war nga ko jox sa bopp liggéeyal ko ngir taxawal. yoon wi ci la maam Cheikh di wër tàmbalee sin lay kan ke sëñ Modou Maram kan. dem te armée defal li saxaar. li saxaar gi xëy. sànni ko Badar Guèye mu dem Badar li ma wax sëñ Saliou Guèye Badar ñoom mi ngi may dégg xam nañ li xew seen kër maam la Cheikh Ibra Fall ñaareelu dëkk bu njëkk a dem gannaaw bu mu jógee eh, tay ba dax gannaaw bu mu jógee kër kër ndeyam mhm. muy kër baayam dem dem dem dem euh, Sine lay kan Badar la ca teg ba mu demee Badar mhm. ndax nee na bi mu defee listixaar Chine mhm. ci guddi gi lañ ko ne ki ngay wër su fekkoon ne ab dëkk la bor na baa nga Badar moo war mu xëy dem Badar ba mu fekkee ku ñuy wax sëñ Mayib Guèye ca jàkka ja euh, Cheikh Ibra waxtaan ak moom leral ko lako ko tax a jug moo ko ci lañ ne maam si ma na badar lañ ko wax yoo ki ngay seet bala nga xam ci mbiram da nga dem tay ba Dakar mhm. ba mu demee tay ba Dakar léegi Cheikh adam ngay Cheikh Makhtar Touré di ci ñom nak dem ci ku tedd ki mbatti ka jor mhm. li ta tarikhu Cheikh ibrahim ndiaré mhm. wax ki la fekk bax fa la juggé dem dem lay kan di wër ku tedd ki sin lay kan sin lay kan dem badar Juga juggé badar dem tay ba Dakar gis fa Cheikh aadama ak Cheikh Makhtar ànd ak ñoom ñëw ci ku tedd ki Serigne Touba ci ñeent fani mm-hmm. bi mu ñëwee nag ba Cheikh aadama dalal ko dem yëglu ko ku tedd ki mu ne ko dafa am ko àndal mm-hmm. mu xamal ko ne ko am na ko ma àndal la ko ne na jàll si bi Cheikh Ibra yegsee ci la xam ne nag yëfi sotti na mm-hmm. léegi nag ñu tàmbali nag ñoom ñaar ci seen waxtaan di beru di wéet léeg ñu dox lu yàgg comme ni ko boroom xam-xam yi wax wax nañ bay gisu waxaat bu taxaw def naa lu ne ngir rek signé contrat bi tey ci guddi tey gi mm-hmm. muy ñaar fani koor mm-hmm. loolu mooy taarixu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ci tënk nag mm-hmm. ci yoon wi nga xam ne jaar na ko ngir dem waaye benn boobu fekk na nag ceddo juróom ñaari dammeel yi ma sa falu ca Kajoor di maami Cheikh Ibrahima Fall mboolem ku sant Fall te falu woon ci Kajoor maami Cheikh Ibrahima Fall nga Lat Joor képp ci sant Jóob te Hmm? Mm-hmm. ci fanweeri dammi léegi ñett ci fanweeri dammi ama ngoog mm-hmm. waaye ko fa masa falu rek mm-hmm. ci ci dere cheikh ba fa moo tax ceddo duru sa sukk ci kanamam ab sëriñ duru sa sukk ci kanamam ndax benn mooy dammel deecalaw mooy maamam sëy na bu njaayee ndeyam njare njare moom xam nañ leen te dem na ay doomi soxna lañ ndax juróom-ñaari njare yëpp ay taalu jàngo fa nekk fenn fu ci nekk tey boo demee daa taalu jàngo yaa nga fa des fa ba tey mhm. ñu ñu ràññee ci diina ji mhm. ñooñu ñooy maami Cheikh Ibra Fall ndax ñoo jur ndeyam mhm. bu dee damel de caaw ñëpp xam nañ ne moo jur moo meññi maami Cheikh Ibra Fall baabi muridina kon ci ñaari wàll yëpp loolu moo waral nag eh, ceddo yi daan jóge fu ne di buur di ñëw fi Cheikh Ibra mu leen di def ay murid sëriñ si itam daan ñëw di am cofeel ci moom ba jël seenu njaboot di ko jox mhm. réew mi àndandoo nekk benn Cheikh Ibra Fall loolu mooy yoon wi nga xam ne mhm. tracé na ko ci jaar gi mu jaar ngir wër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mhm. depuis bi mu bàyyi koo nag ci ay bokkam li mu war a xam nag ci diine xam na ko ca njare fa lañ ko jàngale ndax waxoon na Baye Ibrahima Thiam na ko jàng naa Alxuraan bu mu kor ko tafsir naa sax téere xam-xam waaye suñ borom moo ma ne jamono ji ne li may def ci kenn laa koy def jii jamono li may def def naa ko ci Cheikh Ahmadou Bamba dama nee na yàllaa ko tegtal sëñ Touba. moo waral mu daal di jóg ngir wëri Cheikh Ahmadou Bamba jox ko boppam. ba mu dikkee Mbàkke nag fekk na mbooloo xam nga wax nga ko léegi. Mhm. am na ñu wax sax fanweeri juróom-ñeent moo leen ñeent fukki am na ñu wax lu ëpp loolu. Mhm. waaye Cheikh la ko taxoon a jóg. Mhm. ba mu dikkee mooy ñaq. ndax xam nga ne yow daara ju am daal sëñ Cheikh fekk moom. waaye daara ju amul daana Cheikh Ibra ko fiy lim. waaw. fu teeku di liggéey ak a ñaq moom ci Seex Ibra ko jàngale ndax mag ñi nee nañ ba muy jébbulu ba mu sukkeeraam am na ñu wax ne góor gu sukkal moromu góor ñu ngi ko door a gis waaw na yum indi yoo xam ne xamuñu ko woon déedéet différence bi différence bi lan la woon lan la woon mooy nee daara ju am daa mooy koy jàng la fa fekk mhm. ndax ba sëñ bi ne ku fi jàng indi woon mhm. seetal keneen ku am jotam waaye leneen a ngi fi mhm. am na ñu ñibbi jàddu mi xam xam wala. Ah, wér na am na ñu ñibbidu. kon kon xam nga kon. kon ndax dañ ne bu dee ja bu dee liggéey moom dañuy liggéey li suñuy waajur. Mm-hmm. ñun jàng ñu fi indi woon. Mm-hmm. dem daara di liggéey. waaw loolu mom pour një njëlbeen. Seex Ibra ko fi indi. Mm-hmm. ceddo fenn ci Sénégal. buñ kenn am complexe wax ne sëriñ bi daaray jàngale tas samp daara tarbiya. maa la wax loolu. ca Mbacke Kajoor. Ah. <laughs> daaree tarbiya. Mm. loolu am ngeen ko en moo xam naa loolu après dinañ ci dugg. Mm. Ah, foofu waaw. Mm-hmm. parce que daaree jàng lañ fa fekkoon. Mm-hmm. waaye tarbiya nag ak liggéey. Mm-hmm. loolu moom Cheikh Ibrahima ko fa indi. sëñ Moussa Ka nee na ko yaa njëkk a sa xool ndax fekkoon nga gaa yee xor-xoral. moo ko wax de ay waxama. ña lay taxal ak ña lay setal yaa xal ngir a ñuy doxee. léegi nag bi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee nag. lii ma lay nettali. sëriñ Cheikh mbay Yaaram moo ma ne. Mm-hmm. mi ngi dund de yàlla na ko fi yàlla yàggal mooy xalifa sëñ Yaaram Mbaye. Mm-hmm. nee na ma sama yaay nijaay Cheikh Moudou ma mm-hmm. Fall moo ma ne. keroog bi maam Saliou Fall wàccee liggéey. di rakki maam Cheikh Ibrahima Fall baa bi Mouride ñu yanoo ko daaru xafoor di ko yóbbu Touba di ko denc. Baye Naar Fall moo ma ne ci làmbañam man mii. na ma keroog oto bëriwul dañ koo yanoo daaru xafoor ba Touba mu ne ma doom man mii di waxe yow. ba ñuy dugg daaru xafoor ba ñuy génn daaru xafoor. am na ci diggante bopp maa ko yanu sëñ Saliou Fall. tegu na sama bopp bi biñu egsee sëñ daam Abdourahmane loo taxaw ba seigne daam jullee ba nopi Cheikh Moudou Fatma nee na maa laaj am ma Cheikh Ibrahima sa wax lo xamné ne nga ma ne nee woon sa bàyyi Abdourahmane lo ndam day man la ca dindul kumpa moom am na lu ma bëggon nga dindul nga defal ma tek leeral mu ne ko ah, doom jaar seigne kon Cheikh Moudou néna ba denc ba noppee ma jaar ndam néna bi may juste seigne ci la tok nee na ba mu ma séenee daf maa gàttandu dalal ma nam ma daan def bu ma seex yi dama sànni yun yi na ma seex yegg si nga mën a ko mu ne ma cey sa baay ba seera faal ak a gore am moos ni mu jaaxale waa jii tey ni jaaxale waa àllaaxira sëñ daam moom xam na Cheikh Ibra moom nee na daa daan ne ko ndax mas na laa nettali nam tase woon suñ daara ja keroog ba mu joxee boppam ca Mbàkke Kajoor Cheikh Mudu nee mën a ko déedéet loolu de sama baay Cheikh jotuma ko wax mu a ma toogal ma laayale ko biir toogal ma wax la sa baay Cheikh ba ba mu jébbaloo daa féetewoo liggéey kuko gis mbacke kadior wenn waxtu nga koy gis muy waxtu fajar señ dam neena Cheikh Ibra lum yendo liggey ci bëccëg gi day bàyyi bu gudd jot mu roñ ko du ko indi su ko roñe bam mat mu jël goj bi ak bag bi rot ndaay bu noppee mu tere goj bi debal etti señ dam neena waxtu fajar fa ngay gisse Cheikh rafal boko fa gisati suba la ci waxtu wow xanaa kon yendo liggey fana ne rot gaa yee nelaw ba naan xuréet ba lay ganar nan pour xuréet mo fa xewal dawul doxi mm. mo fa xewal nuyo diraam diglul monu tere wo na naam fekkoon nañu jang fa dam mom muy murati fexé fekkoon na daaray di riir Cheikh Rafaal la fi dindi àllarba ak dibéer. maam xanaa looloo looloo indi sëpp sa daara jas joxe sa alal. Hmm. waaw. loolu ci lañ nekk nii. ci lañ ne. Hmm. loolu mooy ndax ndax xam nga soxna bisu. Hmm. sa maam Cheikh Rafaal la waxoon ne. yoonu wi su doon ngoro la bu tasee mën lañu delloo alal ji. can nga ko takkoon mën lañ koy delloo. Cheikh mooy borom. jeex na takk yoon wi moom Cheikh Ibrahima ko moom. te lu fi waaye defit moom nga ko defal wax naa ko Masaalikul Jinaan démb ci guddi ña nga fa woon nee naa leen jumaa ji nii mu mel tey di ndamal murit yëpp billaahi bu ko Seex Ibra fekkoon day wër di baatare te yow ceddo xam nga ne bu esegoon Seex Ibra Fall la ñuy joxoñ hmm. kon bu ndam ñëwee koo koy jox moom keroog ba mu njëkkee dégg lii lii lépp yow a def na ah ndekete aw xas mu mujj doon aw tagga hmm. aw xas dina mujj doon aw tagg kon ndekete hmm. ndax bi sëñ ci géej Cheikh Ibra Fall nee topp nañ ma. Mhm. ne ma lii lépp yow a yaa na ko teg. Mhm. nee na ma ne mu ñu ma Ibra lépp yow a. Mhm. topp ko naan ko yàlla ngaaj di ko jay. jay nga ko jay ba jàpp ko. tubaab jàpp doo dellu si. waaw ñàkk nga ko ñàkk nañ ko tey ngaa bokk nag. dimbali nu ngir yàlla nga dellu say bokk. jay nga ko jayee jayee jàpp ko yóbbu mu jàpp doo dellu si léegi nag ñàkk nga ko ñàkk nañ ko. Cheikh Ibra Fall lii lépp yow nee na ba sëñ Touba dem ci géej gi mille onze novembre 1902 fii ci seen wet soriwu leen fii la sëñ bi wàcc ci port bi mm. waajal sancab daaru marnaan ngee mu jox bindoon leetal borom daaru moo teg pour mu jan sancal ko ko bi mu ñëwee sëñ bi da ko yeesal tubaab bi jëlawaat bu fi yóbbu gànnaar 1903 1907 mu jógee fa ñu indi ko ci yéen jëlof 1912 mu ñëw njaarim résidence ah côté mairie bi foofu xam ngeen mm-hmm. Cheikh Rafal nee na bi sëñ bi cee kër gu mag nag mbooloo mu ñëw seex yi dëkk nee bis ma dégg ku sikkat bala ma lii lépp yow ma ne ah ndekete yàlla nii la mel. Mm. aw xas dina mu ñu doon aw tagg. waaw. Mm. kon lii lépp yow démb ja ak lii lépp yow tey ja wuta nañ. Mm. moo tax te te booba nag mooy ca ba seet ba ba ku tedd dem ci géej gi. la mm-hmm. waaye lépp nag mu muñ rek. moo tax wax na ba tay naa doom lu di Ibra Fall bi dégg naa ko doom. Mm-hmm. te bu góor doon wasin tam nu waxal ma ko. Mm-hmm. waaw. Sëñ Fall sa maama wax ne mhm. lu dul Ibra Fall wasin na bi dégg naa te mhm. Seera Fall nee na bu góor doon wasin doon na ma ko mhm. daan waaye nag doom ma maa laaj sama borom nag na ko mujj jamono xam naa ne ñëw fi yaw du yomb waaye lu gën a gaaw mu ne ma tuuma ju dëgg ak joxe ñam tax nun loolu la dégg noonu loolu loolu la ñuy dégg noonu leen gën a yàpp ci àddina <laughs> waaw cey sëñ maam du répété ak joxe ñam tuuma ju dul dëgg du dul dëgg ñu waxal la loo xam jamono dabe ceeb waaw dame ndab ma ngoog ah, ñu ngi ci nag ci koor bi loolu dinañ ci ñëw noo ngi ci waaye waaw euh, fuuf <laughs> de faw ngay tënk rek ah. Ah, ndax dañoo bëgg lépp dugg ci maanaam Cheikh Ibra bi ma bëgg ñu waxtaane noonu mm-hmm. euh, junj bi nga ci def doy na sëkk mm-hmm. ndax signé nañu contrat bi waaw jaa ngi ne de waaw waaw waaye fi ngeen ko teg baax na ndax dama koy gis. Euh, di wax fi ne fi ngeen ko teg baax na waaw kay maa ngi jàkkaloom di wax waaw kii la insert rek bu insert bi nii baax na de. Mhm. maanaam màndarga yi nga xam ne gis nañ ci worma. Mhm. Cheikh Fall daan ko defal sëriñ bi te fekkul kenn di ko def. ak cofeel gi. Mhm. ak liggéey bi. laa bëggoon bu ne nga ñëw ci ci tënk bu gàtt rek. li Cheikh Ibrahima defal sëñ bi te kenn mësu ko ko defal. waaw ci mandargay worma yi. waaw waaw li ci njëkk. Mhm. sëñ Touba wax de. Mhm. déet masta bàyyi ko ci laamu Ibra Fall. Mhm. tàbbi sama nopp. cey déet. kër Seex Ibra xamuñu déet. fi na nii sax am na benn daayira doo koy dégg am na benn daayira sëñ Fallum sëñ Modou mi te ñoo ma ko yor xam nga daayira doon tudd. waaw. waaw waaw <laughs> daayira waaw daayira waaw nun waaye waaw suñ kër la am nun waxi sëñ bi waaw rek gis xamal lu ñuy bañ biisu te daayira ba yoo xam ne moom moo boo ko defee moom gën nga ci sart daayira bi mooy sëñ bi waroon nag sëñ bi wërtoo nag sëñ bi bu defoo nag sëñ bi yaakaaroon naa rek sama sëñ bi foog na réfléchir ci gàttal waaw amul amul calcul amul fi calcul amul fi kër Cheikh waaw képp ba faam waaw waaw rek daayira ba daal waaw moom daal waaw ci ngay bindu mhm. moom déet daal mooy génn ci daayira bi moom sukk sujjóot mhm. xeet yooyu mandarga ñoom nuyoo sëriñ bi waaw loola waaw loola bëgg naa ndax fekk na ñu koy def wala déedéet mhm. sëñ Moustapha Saliou que sëñ Cheikh Fall Mboor la ma fekk maagum sëñ Edi Fall Mboor ñuy waxtaan mu yegg ci di wax ne ñi daan ay xambu xambu taalu sëñ bi xambu ci biir néeg bi ndax taalukaay nee na yombutoon mhm. ab taal daan am ay weerta du fay ndax mhm. taalukaay yombutoon mhm. mooy taalu jàngu yi nee na am na ci ñooñ bu ñu ayaan xambu bu noppee danañ def ab diir ci biir ba mel na luy toogandoog sëñ bi di jaaru ci biir waaye Ibra Fall nag bu xambee sëñ bi du ko may dara moom day xambu rek génn nee na bis nag mu xaw a yàgg ba muy xambu xaw faa yàgg sëñ bi moom daa defee na sax day jaaru moom ñaari loxoom yii la jël teg ko fii bu max ko na ko Ibra Fall mbaa da ngay kon xam nga kon dégagé na ko ci ñooñu moom seppi na ko ci mm. Cheikh Ibrahima sëñ Tuubaa da koy da ko yàgg ber ceddo eh, mm-hmm. mm-hmm. mosu ko cee boole mm-hmm. da ko yàgg ber parce dafa am lu muy wut te li muy wut li koy may mooy jaayante xanaa xamoon ne yu neex yi yëpp ngay gis Cheikh Ibrahima sóoraale wu ko woon moom bis bu mu njëkkee denc war muyum soxna ba ko sëñ bi njëkkee wax waxi soxna dafa ne da ko kon denc ci la am ah, mbàkki kon ndekete denc ci la boole wu ko ci woon de waaw lu ci dugg sëñ bee ko ko woowee falal waaye daf na ndekete kon Mbàkke denc ci la sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir laa dégg mu ne mhm. mujjug sëñ Touba ci njaareem mhm. sëñ bi Cheikh Ibra mas naa ñëw fi mën na ko Mbàkke yi fi daa neex loolu mbaa dese nañ fi dara mhm. eh, ah. xanaa xamoo ne Cheikh Ibra fii moom fee lay lijjanti waaw loolu daa am lu mu ci waxante ak sëriñ bi waaw eh. daf ko ne lu toll ni mbaa soxla mu ko ci àdduna yomal xeex bu dajee naa mën ñëpp fi mu ne de mën na ñëpp fii sax waaw fi misaal maa ngi nii rek misaal bi mooy fi ne fii ci àdduna rek. xoolal demal njaarim tey xool suñu am di xadi Fall. Mm-hmm. demal Mbàkke xool suñu Cheikh jëm. demal xool suñu Cheikh Fall ndigal te kat sëtaat la de. Mm-hmm. waaw mbaa xam nga ne fekku fi Cheikh Ibra. Mm-hmm. déedéet gaa yi xam nañ ko. déedéet Cheikh Ibra ba woo ko fi. kenn du moom. demal ci suñu Cheikh Fall Mboor demal suñu Fall Abdou Sakkoor demal suñu am ni Modou Mbenda. demal ki suñu Ablaye Fall Ndar. foo ci dugg ci njabootu Cheikh Ibra Fall gi la ñuy jëf ci ndog yi da nga yéemu ci yàlla. ah léegi ni daaw ndog yi maa def reportage bi de. na tàkk waaw waaw ah, yéen a. ba mm. daaru xëfoor tey boo demee fépp yéen def daaw. Mm-hmm. Ah, te loolu kat ñi koy def ñu fekk mbaa xam nga ne Cheikh Ibra boobu la ñu fekkee. xoolal sëñ Cheikh jëm mi tey. Mm-hmm. mooy Cheikh Ibra toog muy dox. Mm-hmm. maa maa ko wax fii Thierno toog muy dox. demul Mbàkke dégg nga ko Ndakaaru gii mas nga ko fee xoolal waa jàng yi kii lañ war a waxal fi la ko ah, maam bàyyi de eh, yàlla na fi yàgg loolu te wér moo tax ma bëgg waaw Euh, ndax denc ci la. waaw Cheikh Ibra daa am njaboot. waaw te nga dem. waaw sa njaboot nekk ci sa mbir wala ñu soppi ko. Mhm. moo mën a am. Mhm. man bëgguma sax ñu taxaw rek carrément ci jëmmi Cheikh Ibra Fall ji. Mhm. waaye ñu ngi ci juróom-ñaareelu xalifaam. waaw boobaak léegi. bi Cheikh Ibra demee trent ak léegi. ak njabootam ca lañ nekkoon. ca lam ne woon. ak wàqante koog sëñ Touba. ndax day ak bàmmeelam ba sax. waw ndax araf damé na ci digënté bobu ak légui déedéet waw gis nga lam waxanté waxante Seyd Touba. ñing ko koy samal ba tay ndax mas nako né mhm. dama bëgg di la liggéeyal bo fi jubé jugé mhm. sama bàmmeel di la tay ci do barabu Cheikh Ibra limi genn ci ay millions kenn xam lu tollu du jadd fenn ki fi nekkal Seyd Touba la jëm. kuy joxé addi ba teug sa bàmmeel di joxé addi Cheikh Ibra ko mas gis. ci ba tay nga xam lu fa jógee rek lu fa jógee ci ku tedd ki la jëm Cheikh Mouhamadou Mountakha ki fi nekkal sëñ Touba barabu Cheikh Ibra Fall hmm. moo ko ne woon danaa leen liggéeyal ba sama bàmbi di la danaa la jox addiye ba tëdd di jox addiye bi mu fi jógee Cheikh Moussa Fall ko wut hmm. kooku nag 57 yaa ngi ci orthodoxe bi hmm. ah 57 ans la dund moom 1893 1950 wóotu fi maam Cheikh Ibrahima Fall 30 ba 50 jàmbaar jaa ngi nii keroog ba mu génnee àddina sëñ Mourou Moustapha Fall mii mm-hmm. ba mu génnee àddina mm-hmm. sëñ Gunda Yaasin Dooki moo ma ne mm-hmm. sëñ Falloo ko fat ca ruq ba ca biir wanagu biiram jël ay bitéeli parfum di ko sotti di wër naan Moustapha Fall jàmbaar ji wàcc na Moustapha Fall ji wàcc na Moustapha Fall jàmbaar wàcc na gis naa journal boo xam ne ba tey journal baa ngi Paris Dakar ca jamono booba dañoo bind sëñ Mourou Moustapha Fall wàcc na liggéey tey sëñ Fallu jaaxle ci basangiré laa ilaaha illallaah Faal Cheikh Ibra Faal laa ilaaha illallaah sarawal jag yaale la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 moo ci topp. mais mi ngi woon sama waa ji mi ngi woon sëñ sama waa ji si Modou Moussa. waa ci sëñ Modou Moussa la ñu woon waaw. bàyyi Maba Samba Modou Moussa Fall. waaw 57 ans la dund moom. Mm. kii jàmbaar la de. Mm-hmm. Mm-hmm. kii góor yàlla la de. Mm. xam kan moo xam kii. ku ko xam. seex taawu seex yi. Mm-hmm. taawu seex yi. Mm. ñi mu jamonoon teel. waaw mën naa cee tudd rek. ayca. sëñ Modou Xaban moom sëñ Ahmadou Ndumbe. ci kanamam la sëñ Moussa Fall demee ca Touba Fall. kii. keroog ba sëñ Fallou ne miraas naa sama bopp def ci jumaa ji 1945. waaw ne ñëpp def ni man. Mhm. taawu seex yëpp toog sëñ Moudou Mamoun Mbacke mu maam Seex Anta. ne teg naa 500000 ci taabal ji. Mhm. à l'époque. maa la wax loolu téeméeri junni ca jamono jooju gars yi naa kii xanaa xamul 500000. waaye mhm. gars yi na ko de <laughs> sëñ Moudou Mamoun. bañ noppee ba sas yi bari ba ñëpp ñu sasoo. sëñ Moustapha Fall ub carnet bi. am ko ko joxoon ci seex yi ne ko yow yaa fi tebbi ay sas looy sasoo. sëñ Moussa Fall jël loxoom dóor ci taabal ne sasoo naa jumaa ji keeg jumaa ji du ma am dara suñ ko masaan a jox ndigal ceddo du leble du maye du saraxe mhm. feeg ndigal la ak te day ñëkk këram xam nga lim njëkk a def tay la nit ak noppam def ci jumaa ji nit ak noppam la tayle xam naa ko ci Touba Fall mën nañoo dem mën a la kii seen maam sëñ Moussa Fall la ko tayle def ci jumaa ji tayle ñu jox ko ca njëg maa la wax loolu mu dem def ci jumaa ji ne ku am ñaari oto jaayal benn bu ku am ñaari kër jaayal benn bi doomi sëñ doomi sëñ Tuubaa du soxla dara muy tardé sëñ Moussa Fall jël sëñ Cheikh Jëmmu Fall tey mooy Seera Fall def ci jumaa ji jël sëñ Cheikhouna mu sëriñ mu sëñ Mour kii def ci jumaa ji mm. jël seen Cheikh Fall Khady Gueye moo njëkk a woote guddi gi tey ca Kaolack ña ngi koy taxawal fee tey sëñ di dañuy bu noppee fii fa la jëm ca Mbàkke sëñ mm-hmm. Fallu Fall Feex mm-hmm. def ci jumaa ji ñuy jëwri ñu ñoo yor daaree jumaa ji sëñ Thierno Mbacke gelongal moo ma ne mm. mi ngi dund de yàlla na ko fi yàlla yàggal maa xamoon sëñ Cheikh jëmm ca démb xam ko tey moo tax lii jomb ko ca daaree jumaa ji laa ko xamoon booba bàyyi ma ngi xoolal waa jaa ngi kii Cheikh Rafal nag mu mat sëkk ah, te Cheikh Rafal na ko waxoon de mm-hmm. moo wax ne fii ma toog ba bis penc ku fi toog su diglee def leen doom su teree baleen su laajee jox leen su wootee wujj leen su xamul ma xamal ko mooy waa ji su mm. amul ma amal ko su mënu ma mën a ko may fay te du ma jeel moo tax mm-hmm. ñaarelu khalifa mam Cheikh ibrahim Fall moy Serigne Momar tala Fall. serigne touba ko yar nak ci loxol bopam boppam. Momar lako da woyé Momar tala Momar tala am lako da woyé wooyee. Cheikh Khadim ñakul mi ngi ñuy le premier mai fi ci stade Demba Diop. jambar la nak te woné mam Cheikh ibrahim Fall ci adina bi yëpp. Serigne Momar tala Fall. jambar la jo xamné ne. ci wanagu Serigne bi la nekkon serigne bi daana ko defal lépp. Serigne bi ci bopam da na tiim Cheikh Mortal di wacc karaw gi. bay mu dund ma ko wax. sëñ Momar Talla mooy ki sëñ Touba ne mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi ñëw di ma gane si moo tax jot si moo ci yéen mhm. waaye xasi dëgg jëli batu maraaxib gi nga tàmbali la diglu nee na nga wax li nga bëgg waaye nekkuk taalibe doom nekkuk keroog ba ma ñëwee Samba Cheikh Rafal ba jàq xibaar ko dam dama hé hé Momar ah sëñ Bamba dalaa bëgg lu du taalibe des kuy rek ki ah, ay taalibe borom da ko yóbbaale mhm. kooku mooy ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall moom moo toog 1950 ba 1953 ñetti at. Mhm. ba mu fi jógee Serigne Ablaye Fall Ndar. Mhm. toog 1953. Mhm. ba 1975 20 ans yu teg. Serigne Ablaye Fall Ndar nag. maam Fat Fall Wade ko meññ. Oh. te maam Fat Fall Wade yëriñ ba ñu Wade ko jur ak Asta Ndiaye Njare ca Gendar. korob ba maam Cheikh Ibrahima Fall demee ci ndigal ku tedd ki ndar ba mu wàccee. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm Serigne bi yebal ko ndar. ba mu demee ndar la fa am soxna suñuy wax Fat Fall Wade. mu dëkkoo ko taawloo ci Serigne Fadilou Fall. mooy taaw ba des ca géej ga. Mm. teg ci Serigne Ablaye Fall ndar teg ci son roqee Fall. Serigne Ablaye Fall ndar moo may nag. liggéeyal na ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim. liggéeyal na maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal na réewam. doon na si doon na toog na toog xalifa Cheikh Ibra Fall xam nga lan mooy liggéey réewam. Mm. moo solo soldat dem 14. 14 18 boobu 18 moom moo dem. Mm-hmm. ndax katos bàyyi ma fa des. sëñ Fallou sëñ Fallou Fall. waaw tey jii sëñ Cheikh Fall xarigéey ca Paris ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Mhm. le 8 mai xam nga. Mhm. gis nga bis bu mag ba muy def. Mhm. ca Champs-Élysées foofu mars bi ngir sargal Serigne Fallou Fall. taw maam Cheikh Ibrahima Fall bi des ca Paris. sëñ Ablaye Fall ndar nag mooy rakki Serigne Fallou Fall gis nga Thierno li lay xamal ne Cheikh rek kenn xamul lu mu doon. xam nga sëñ Fallou Fall dem faatu des fa. biñ dikkee wax ko Cheikh Fall daf nañu waaj Ablaye Fall ndar mu dem ñoom ñaar bokk ndey ak bay di eh, yow am nga ñeneen nga jël ñaar ñu bokk ndey ak bay tegale leen ci soldaar kee dem des fa nga ne ki ci des na dem. Mhm. yaay fat fal wadd. ndeysaan xaw koo jaaxal lool ba mu ñëwee mun a. Hmm? ah mu xaw koo yéem lool dafa yéem nag ndax dafa ñëw na ko waaw fal fallu fal dem na des fa Ablaye Fall mi bu demee des fa ma ñàkk. waaw ah. Cheikh na ko demal te doog te muñ Ablaye Fall dina dem ba dellusiwaat toog di man te yaay ñu àjjana wax ma ko. 1953 ah, sëñ Mor Talla Fall na kookee nag mooy jàmbaar joo xam ne seigne Ablaye Fall seigne sëñ mundom mundom seigne sëñ carrière carrière bi carrière bi ci jumaa ji xam na carrière bi xam na sëñ Ablaye Fall ndax am na at mu seigne Fallu ñëw carrière. am na forom njaxas boo gis seigne Fallu sol jaxas carrière la. bay seigne wadi ndjay mako wax. Mhm. nee maa ko gis man. ba mhm. sama bàyyi nee na ma ko rok sextal galo ko da xàllal. Mhm. def na fa ñaari fan sëngum ñaari ne la sëñ Ablaye def seigne Fallu dok ci ben dekk ci ben bi carrière. mom ñi ngi liggéey jumaa Hmm. tay taw bu baax ba domam ju baax ci seigne Mourou lay Fall bu yagul fi joge seigne Cheikh hmm. bintongi fi hmm. seigne Talla Ablaye ngi fi ken mun ngeen ci ndog yi ay jambar lañ waaye ñetteelu xalifa mam Cheikh Ibrahima Fall ba bi muri dina mooy Serif Assane Fall wala bok ñeenteelu khalifa mam Cheikh Ibrahima Fall ba bi dina Serif Assane Fall waaw koku nak la Cheikh Ibrahima Fall wax lu doy war maa la wax loolu de lu ko wax ah fi da dim penc nak waaw. <laughs> danañ penc loolu rek. bu ko laal de kon Serif ah. li day bari. Ah, waaw danañ penc de. bu ko laal fi na xam na li xew ci réew waaw kon kon. waaye ceddo ak des koy xumtoo. Eh. waaw waaye waaye fii danañ penc de. wuyu ma des koy xumtoo. nañ ko ah? ber rek deesu ko xumtoo. deesu koy xumtoo de. Hmm? waaw junjal rek ci naar kaw waaw xoolal. li nopp mën a dégg rek. waaw waaw. waaye ba tey ñaata at la yilif kër waaw. 75 ba 80 ba 80. waaw la fi wuutu maam bi mu mm, ndog yii. Mm-hmm. liggéey bu doy waar. Mm-hmm. bu àdduna bépp teg seen bët su yasan xir lool mën a joxe. Mm-hmm. sërif. jàmbaar lool. waaw. mook Cheikh bokk lépp. maam asu si laa leen meññ. jël leen lu la seen day dëkk. Serif Assane. tey mooy wajur si ñoom di xaji mii. di jàmbaar ah? lu tax ñu koy wax Serif. ah lu Serif Assane Cheikh Ibrahim Fall ko tudde ok na Cheikh Nar ko naari Kawsare Nar ko Kawsare Nar lañ ko tudde. Mo lo ko tudde Serif Nar naar Cheikh waaw. Tudde mo ko nar bu jaay ciogal la Serif Fall waxoon Tudde mo ko nar bu jaay xorom Hmm. Wa Cheikh Ibrahim ko wax de Serif di jàmbaar lool wuutu fu mam Cheikh Ibrahim Fall juróomi at koro bam genné adina. Hmm. sëñ Modou sëñ Ibra Xujam sëñ Modou Xabbaan moy khalifa mhm. sëñ Modou Mbay tey mhm. moo wax na ma mhm. fala mu jigi sa samaam Cheikh Ndaw Baye Cheikh ci xay gi ci armeel yi mhm. nee la bàyyi seex taxaw moo la mu wër ko ñu denc sëñ Asan bay génn mu tàllal loxoom nag ku am looy joxe ca ngaanuk sërif bi gaawal damay dem maa koy sédd la ji fan yu néew lañ rawante matul bis bu del si bàyyi seex ndaw waaw ngaanuk sërif asan nga ku am loo may jox jox ma maa koy sédd la ji te àjjana bàyyi seex mook sërif asan ba sëñ asan demee nag danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko mas nga koo dégg si Abdou Sakour Fall. doom yaay Demba Sarr ah, kenn du moom. ah ceddo yoo xam nga li xew de. Mm-hmm. ah ceddo mi xam nga li xew de dafa nelaw nelawul. Ah? danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko. Mm. si Abdou Sakour Fall. Mm. waaw kooku kay Baye Mbaye kenn xandi moo ne. te mm. Dóoru Fall lan la dama bëgg ngeen bàkk ma ñu ne ko ñu lay bàkk ma da nga naan ñay mënul ci Dakar dara lu mu gësam ba. ñay mënul ci Dakar dara. gësam gësam gësam ba. ñuy bàkk ñay mënul ci Dakar dara lu mu gësam gësam ba. mu génn sol benn garab bu na ma daan ne ku tee ma toog ci lorub Seera Fall bu ko mënee ne ko def Abdou Sakko doonu Seera Fall da koo doon. Mm-hmm. daan daan na wax ne sàkk leen gaaw balaa. waaw nee na sant Thiam indiwuma ci mbaar mi. Mm-hmm. Seera Fall ne ma sëñ Abdou Sakko ne man illi réew fi indi. Mm-hmm. yaay debbo Saare Ndayam. sàkk yaay debbo kooku ñeenti at la wutu maam Cheikh Ibrahima Fall Baal Mourideen sëñ sëñ Fallou Fall ngi nii doomi sëñ Abdou Sakko di jàmbaar lool te kenn du ko dégg ci dara. laa biir lool tabe lool ñëpp xam nañ ko. woyof toll. boo ko gisee sax doo ko xàmmee ci biir mbooloo mi. te sëñ Mourtala mi ngi fi. doo ko ah. dégg ci dara doomi sëñ Abdou Sakkour Fall la. Mm-hmm. Cheikh Moussa mu baax mi nag. Mm-hmm. sëñ Mortala ak sëñ Bada ñoom ñëpp ci njaboot gi lañ bokk. te mm-hmm. kenn du leen dégg ci dara. te sëñ Abdou Sakkour lañ fees waaye ba sëñ Abdou Sakkour jógee nag 84. sunu jàmbaar ja sëñ Modou Minta Fall. Mm. nangu ndigal. <laughs> doomi sëñ Modou Moussa Fall joojee nga xam ne. 1918 la la la gane jamono ca ca Daaru Fall. sëñ Touba ko dalal Alxuraan ci njëriñ. mook Cheikh Anta la bàyyi ya daan def maam di ko def sët ko doon tey jàmbaar jaa ngi nii Cheikh Modou Fallou Ngom waaw kii mooy sëñ Modou Aminta Fall xamoon nga ne Ceddo mook Cheikh Anta Diop mii mm. ak sëñ Cheikh Fall Baye Góor bokk benn bis bi leen sëñ Tuubaa daan lay alxuraan ci njëriñ mm. cey bis dalee kii wax eh. mm-hmm. mook Cheikh Anta Diop sax mm-hmm. Cheikh Anta Diop waaw ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Modou Aminta mm-hmm. ak sëñ Cheikh Fall ñoo bokk benn bis bu leen sëñ Tuubaa dalee alxuraan ci njëriñ cey njëriñ xam nga Cheikh Anta Cheikh yoroon na ndeyam Cheikh Anta. Diop waaw. waaw ah. waaw Cheikh na ndeyam. Mhm. sëñ Cheikh Fall Ngom xoolal moom bàyyam nee na wàllu yu ma ko wax nee na sëñ Moussa Fall ma ko wax moo mën a Cheikh Fall wàllu la. ko wax waaw. a ngi nii. moom 1918 la moom itam fii la ganee jamono ci Ndakaaru. Mm. Mm. fii ci Ndakaaru la ganee jamono 1918 Baye Mourou Mbaye Issa nee na ba ñuy dem soldar. 14 18 18 bi ñuy dem mm. la am ku ñu dab fii ci Ndakaaru avant ñuy embarqué nañu sëñ Mourou Moussa Fall ma yónni fi yéen nee na soxna Xadi Lo am na tub tànk mooy sëñ Cheikh Fall Baye Góor mm-hmm. Cheikh Fall na bëri na Baye Góor ñu doon mën lañ ko tudde <laughs> Baye Góor mën lañ ko tudde waaw mm-hmm. sëñ Cheikh Fall gi kii mooy bàyyi sëñ Cheikh Fall ndigal donc mm. koy ziyaare bu baax <laughs> eh, waaw a waa ser waa ser nu jox nañ la 22 naka 22 formes jus naturel mm. waaw ñoo ko def addiya seen fa alhamdulilah rabbil alamin ci loolu di siyaare sëñ Moussa bu soñaan waaw loolu tey fàttaliku loolu ca kumte yee la jëm bu soobee sax sëñ Cheikh Fall ndigal a ngi nii xoolal mhm. xool ko fees del nag mhm. del <laughs> barke borom Tuubaa waa ji mu ngi nii de waa jaa ngi nii waaw kii moom kii moom kii moom yoonu murid yëpp xam nañ ko. kii moom bay fan kii moom àddina yëpp <laughs> xam nañ ko. Serigne ah? fajar jumaa jaa ngi ni fajar gi jumaa jot fajar gi. ci jumaa fajar gi jumaa gi. waaw fajar gi day ñëw bokkatu fenn rek. bu buñ jullee ba noppi tuba ilimaan e-, yi buñ jullee ba noppi. Mhm. mu mhm. di ba di di tàmbali. Mhm. par par par par tàkk par lim par lim par lim ba pare génn dem yoonam fajar gu jot Tuuba. Oh, jumaay oh, Tuuba oh, lay lay lay fajar gi. Ibra Gueye mii jàng kay nee na ma fajar gu jot. fajar yëpp la de. ah fajar gu jot kay boo bëggee mos dara. Mhm. demal xaar sëñ Cheikh. man mii fajar la ma mosal dara fajar. yow mii ah, barki Cheikhul Khadim. fajar HLM këram HLM. waaw fii waaw. suñ ñoo dend kër HLM suñu kër ñoo jëlloo. may génn ma jëy sàll. waaw ma kii tab gi na ci moom. dajeeg moom boo ah. jaxasoo wuute moom sa doog xam. kii lu mu am joxe ko barki borom Tuubaa. musu maa nga lu ma Hmm? Hmm? ci seen ndigal kii lu am joxe ko kii du denc dara. damay damay xam nga réew mi daana xari waaw benn yoon laa ko jox loxo. waaw. mu jox ma xaalis. waaw. ndax dafa am ku ma am lu ma nettali. Hmm? nu dem booba ndeysaan yàlla na ko yàlla doole yërëm. soxna eh, Jobbe Fall. dencam. mu sëñ Cheikh Fall. waaw. ndeysaan eh, soxna Jobbe mu sëñ Mbacke Fall soxna Jobbe Fall mu sëñ Mbacke Fall. mu sëñ Mbacke Fall wajur sëñ Manel Fall. waaw Manel. Mhm. Mhm. ñuy nuyu Manel bu ndaw boobu it. waaw mi ngi koy nuyu Cheikh Digal mhm. jox ko addiya ba noppi mu wëlbati joxaat ma xaalis. ma ngëb xaalis bi nii. ànd ak ku ñuy wax Ibrahima Cissé ñu dem kër sëñ Saliou xaalis boobu si loxo sëñ Saliou la mujj. barke Serigne Touba. mu dëggal lool la ma kooka doon wax nag waaye du lu ñu. mën a wax ci jotaay waaw kay waaye. Euh, dafa am koo xam ne moom damaa bëgg. ñu denc ko. Hmm. ndax mbiram dafa duggante ak mbiri Serigne Saliou. Hmm. Hmm. te damaa bëgg nag. bu ñu demee ba toll ci waxtaanee Serigne Saliou. ñu dugal ko fa ndax fa la xaj. waaw sëriñ moo Modou Aminta Fall. dañ ciy dellu si. dañ ciy dellu si waaw Aminta dañoo jamonante lu ku ñuy déedéet. lu ku ñuy romb nii rek di def ko nangu sax ndax man. Mm-hmm. oh Baye Galas. waaw maa ngi lay ziyaare bu baax. <laughs> dugal dugal sëñ Galas. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant Serigne Saliou bu baax. waaw góore waay. ah Cheikh Ibra day lañ doon waxtaane waaw te Serigne Saliou dane woon sëñ Cheikh Khadim Fall. Mm-hmm. saa bu ma jógee booba la ko andil doomam yooyu. ñuy dem daara si am di xadi sëñ sëñ xadi Seex Xadim Fall waaw waaw sëriñ bi xam naa leen Fall ak sëñ sëñ Mortala Fall ngi seetaan jotaay bi de mu ne ko saa bu ma di liggéeyal sëriñ Touba gis lu bok ci 100 bàyyi Seex Ibra damay xam ne liggéey dox moo ma xam buñ tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ko waxtaane am buñ fa tolloo di nga mën a am loo wax nuyoog jàmm ñi ci jëmmi Serigne Saliou kii Cheikh Saliou Mbacke Xaadimu Rasul jërëjëf ak dikkam rafal yëpp moo leen jàngal alxuraan sëñ yi ñëw sëñ moo tax mbir mi jub tey galas jaxaraa ngi ni yéen li ngeen def xam ngeen bi sëñ Thierno Mbacke ngi nuyuwaat réew mépp ñëpp a ngi lay fay di nuyu kilifa jota jota kilifa barab bi nag sëñ Alaaji Njaay ndax ku la may temps nga mën a waxtaane Serigne Touba. Mhm. te bu ma nee Serigne Touba mooy Serigne Fall. Mhm. bu ma nee Serigne Fall mooy Serigne Saliou. mooy ñëpp. Mhm. amu ak payam. ndax jàllale message dafa dafa yombul. waaw waaw. kon ñu ngi ñaan këram gi. ak fu kawe. ak mboolem ñu fi liggéeyee ñëpp. amiin Serigne Saliou dafa bëggoon maam Cheikh Ibrahima Fall. te bëgg gi. Mhm. moo moo moo law ci doomi Serigne Touba yëpp. Mhm. ndax dañ koo xam. Mhm. Mm. ndax ñoom nit yàlla lañu. te nit yàlla day day day euh, bëgg nitu yàlla. damaa waxuma ni mu defoon seen baay de. waaw dañ koo bëggee ci ni mu àndewoon ak seen baay. te mooy yàlla ji mu àndewoon ak moom. tey te Serigne Saliou. mel ci maam Cheikh Ibrahima Fall noo xam ne. adduna bépp seere nañ ko mm, ndax bàyyi ji ñëpp doon wax moom la doon wax mm-hmm. sëriñ Moodu Aminta mm-hmm. daa ñëw xam nga sëriñ Moodu Aminta mu masaana ñëw mm-hmm. da daan yóbbi sax sëriñ Saaliwu ab coona ci toogaay bi ndax bu sëggee sëñ bi day sëgg bu ñu amoon image bi ko génnee da ngeen xam li ma wax sëñ bi sëñ bi dafa rusoon sëñ bi sëñ bi rus ko oh. ndax li taxoon mu rus ko sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa bu taxee ñu rus la da ngaa rus koo ngir sëñ Tuubaa sëñ Mourou Aminta du yëkkati benn baat. déedéet. xam nga ku daan yëkkati baat yi sëñ Abdourahim Fall. moo daan wax ci turam. dal mm-hmm. na ko yàlla yërëm. sëriñ bi jékki-jékki sëgg nii. loolu ko leeral. sëñ Mourou Aminta ne ko yaa ñu delloowaat ca buum ca boy boy ba. Mm-hmm. Mm-hmm. waxloo ko sëñ Abdourahim. mu ne ko sëriñ bi nee joxe baax na lool waaye yaa ñu delloowaat ca la ñuy wax liggéeyal sëriñ Tuubaa. ndax yaa ñu delloo xel comme ñuy gor. ak di radu xel kom googee ba fa si ba fa si mun amit faal nekkee di fa liggéey ba liggéey bi dem ba am nu mu demee ba ba muy bëgg a taw sëriñ bi yebal bàyyi jow ne ko boo demee ne ko yeew yi naa ko ndax ñi mu àndal ay liggéeykat lañu mu ne ko kër Cheikh Rafal sas mun ta mun sa jógee kër Sëñ Tuubaa jóge fi booy may man du tàmbalee ci man de <laughs> waaw ñaareelu yoon moom ba mu demee. bàyyi ñëw daa gis ñu ñàkk buntu kër keesu sëñ Modou Aminta Fall. Mhm. mu jàll xel ko wax ko mu ne ko bàyyi ñëw waa ji boo demee neel sëñ bi la ko waxoon rek. du booy bi bàyyi ñëw ñëwee ne bi dafa ñàkk këram sëñ bi dafa daanu. ne ko waa loolu kon pexe amatu ji kon da bàyyi ñu bàyyi ko. bis bi bis bi sëñ Modou Aminta Fall xëyee. Mhm. daraan def bu xëyee bay dem tool dañ koy tegal campagne bi. Mhm. mu gisee ak magi taalib yi doo ko jàll waaye ci naaju la ko teglu dal na daal dama dama dama tayale sama bu biir mooy xob bi hmm. ñett fan lañ def liggey bi ag xel koom googu ci mu dem Aminta Fall waxee genn ak ni ku fi fanan bi hmm. da tapal nañ la garatu mur Sadio fala fanaan lolu man mi fala fanaan barke Cheikh okay Take. لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ مودو فال فال yàlla daal faal nga yëngoo faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Cheikh Moodu Fallu Laay la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Cheikh Moodu Fallu Laay la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah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 rasulullahi laa ilaha illallah jaaraama Cheikh Ibrahima Fall Abou Rijal jërëjëf Sëriñ Saliou balay sa balay sa bëggoon na maam Seera Fall mbëggeel goo xam ni mm-hmm. yebaloon na leen xel ko ndox mi am jafe-jafe mm-hmm. mooy forage ni muy def mm-hmm. machine yi yàpp ndox mi ndox mi am na mu deme lool mu di ko métti la fu toll di wax ne njabootug Seera Fall gii ma yóbbu ci tool yi <laughs> amuñ ndox moom naan de mett mett na ma lool mm. gis na ci man lool mm-hmm. di ko di ko tiis moom ba ñëpp xam mm-hmm. nga xam ne sëriñ bi mm-hmm. sëñ Buudu Aminta bi bi mu dajeeg sëñ bi dañ doon doxee doxin woowee woowee Cheikh Ibrahima Fall doon dox ak sëñ Touba ñoom moom lañ doon dox ñoom ñaar ñu def ba jëmmi jamono sëñ Moustapha Sarr bi ma àndal. ñu jógee Touba xam na li may wax. ndax maa moom ñoo ko bokk lu dund fee ci Ngéejaan. sëñ di xëy yor ay doomam ñu tollu ci ñaar fukk ak juróom nga xam ne bu fekkee am na ñu ci ñu doon doomam ñett lañ wala ñeent. waaye mhm. xale yu ndaw lañ. Mhm. ndeke dana woon ñi damaa bëgg ñu liggéeyal sëñ Touba. Mhm. di leen leema joxe di leen leema joxe ba Serigne Saliou ñëw. mu jox leen Serigne Saliou. bi yebal leen jurul. bi mu leen yebalee njur ñu def fan yu néew sëñ Amdi Xadi sëñ Amdi Xadi Fall mi nga xam ni bu maam Seera Fall ne woon cëpp du ne boog boog la sëñ Fall la waxoon ci sëriñ Mbàkke Madina ne bu sëñ Tuubaa ñëwoon du ne boog boog sëñ Abdu Laat ne bu sëñ Tuubaa ñëwoon sëñ du bu maam Seera Fall ñëwaatoon du soppi ab toogaay du ne boog boog fi mu nekk dana ñeme maam Seex Rafal fekk ko fa. mu jël doom ñu jébbal ko sëñ Sali. ñu yóbbu leen njurul. maam Seex. mi nga xam ne doom yi sëñ Sërif Asan la. xam na li may wax. moom la sëñ bi yebal na ko demal jëli leen ca daara ja yóbbul ma leen ngay jàng. maam Seex Xadi Fay waaw. boo demee. da nga fi fekk Moustapha Sarr ak Galas Jatara nga jël ko tegal ma leen seen loxo. te boo demee ne ko maa ngi maa ngi nee maa ngi ñaan yàlla. Mm. ñëw waa kër Cheikh Ibrahima Fall gii ci daara ji. Mm-hmm. di seen pajum aajo di pajum aajo ñoom ñu fekk ñun ñëpp. li ma lay wax nii. Mm-hmm. sëñ bi xam nga daa bañoon ku dóor gone Serigne Sall. Mm-hmm. yërmande ñi mooy moo doy war. man nag mën naa am du ma jéggaat ji ndax li ko waral mooy. dama damaa fekkee. Mhm. waaw dama li ma ci fekkee doy na nag. ndax benn boo ci fekkee rek mën naa defar àdduna sëñ Tuubaa sëñ Saaliw. Mhm. lennam loo fekkee mën naa defar àdduna. Mhm. xam nga sëñ Daawuda ko dóor. jàngalekat yi amoon na ay baafal. ak ñun ñii ñu rax ñu doon mbooloo. léegi du duma gi ñuy duma gone yi. gone yi sax léeg-léeg dañuy dem di boole ci dara du xew. waaye mu métti sëñ bi loolu nag. Cheikh Saaliw wéetal nga noonu. sa dem gi daawaal jaaxal na nooy mbàkke mm. yow la nu xam nga dem ba noo fu nuy jëlee ti xel mu dal sëriñ saaliw bu yëglu woon du fi des walaay kon ñu dem mu des ndax nañu moom kat ba ñu des ci ñun ku nuy dëfal sëriñ saaliw naalam yi tax na ñépp gëm yàggam fii ak wéeru cëram bam tàmbalee nu gën a gëm mu daa di dem te àggagul demam gi nag daa di nun ma wax li tax mu di si nun danoo bëggoon mu des fi ñun ñu am ngërëm ba am alal su ko defee nu ami doom yëkkati yóbbu fa moom mu defari baay defari doom lil me ba ngi àggul waaye alhamdulillahi ndegam ñun ñi la mujjee ci ay loxoom noo mujjitam jaam xelam walaay lii doy na nga na yàlla buur fayal nu ko li gën ci moom te teeru ko jëfam ci nun matal na ko dellu na moom xaadimu rasuul jazaaw ربنا الكريم على خليفة الخديم صالحنا ابن الخديم قد كان يكمل الأمل مدام توبا mu ne waa galas gone yi dañ leen ni wal bañ mel ni sunguf ah di bu baax a baax daal parce que la ñu doon wal gone yi mel ni sunguf rek yi taxul ma nag gone teel yar loolu waa ji ma ne ko am mbàkke ñoo ngi jéggulu mu mu ne ma waa kër sëñ Abdou Khadi yooyu ne ko waaw am nañ ci ñuy jàngale ñu tolloo mhm. mu ne ma ñoom da kon dóor yi bokkuñ ci ndax waa kër Serafal luñ def loolu loolu du ñoom de du ko nee de mm-hmm. Mm-hmm. ma nga dem seen maam mm-hmm. ndax war ma jooju la séq ak ñoom ndax Seera Fall ni mu def sëñ Touba. Mhm. ndeysaan. sëñ sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na. koor mhm. bi mhm. waaxu Moussa Siri bi sëñ bi tëb. wa daxalal xadiimu yowmal jumaa. safinatil bahri bi maa xat jamaa. nee na bisub àjjuma la sëñ bi tàbbi ci bato bi ak lim boole lim yor lépp. bi maa xat jamaa. mu dajale ci ay gaal. war koo yóbbaal te amul ko dimbali. bis boobu la dugg ci gaat bato bi. fanan ci ba bisub gaaw la dogo a départ mhm. nee ñi fa ñëwoon di joy Cheikh Rafa lañ ci biir mom képp na tek te xam ne waa ji day dem delsi waaye serigne bi nak mo waxal bopam ñepp fa di fa ak ñoo bari tuddu ci genn mhm. dane wa khadim yawm al mhm. jumaa al bahri bima qad jamaa wa al murida wajaahu fi fulkihi al masuni muriduhu ay fatan mam xoon yi dégg nga wax ji de gaal ga gaal bu fees ga mm. dell xam nga kan moo ko fa ñëwal mm-hmm. muritam ba mm-hmm. Cheikh Ibrahima Sëriñ Tuubaa moom ku mu jël ne sama murit nga mm-hmm. yow dem nga sa yoon mm. muriduhu te murid yi fa newoon bari lool mu ne ah. muriduhu daal ne ay fatan ay fatan ñun ne la kaay du firi lépp lu ñuy jël ci waaju baax di ko def ci moom nee na mi ngi ci mam serafal sëñ bi ko wax di ay fatan daal ne mam xoon yi Sëriñ Tuubaa nee na mi ngi mel dañoo jël or euh, lakk ko ba mu mel ni mu war a mel ba génne ko Cheikh Fall noonu la mel. Mhm. nee na examen naa ko ba mu ba mu jàll point yëpp. <laughs> dëggal lii rek. daal ne woowaat demal Mourida Sëriñ Tuubaa nee na ma tàggoo Mourid ba waa léegi Mourid Thiès nag. tey moom li xam lu ko may loolu. Mhm. comprendre bi mu comprendre li nar a xew. Mhm. waaw woowaat demal bi xal bi nu wàññeeku nee na waaye nag xol baa ngay metti ci biir ndax man rek la bëgg. tey tey. ilal jëliirati mu dem ci dund ba. Mm-hmm. nee na maam Cheikh Fall dellu ci dund ba mm-hmm. mooy il bi nii nee waaye nag xol bu métti la yóbbaale maam Cheikh Fall moom lu tax lu tax ngeen inspiré wu boole ko Serigne Saliou loolu lu ma jaaxal la jaaxal na ñëpp kay dañ loolu moo mën a nekk lu doy waaw waaw xam nga sëñ bi da di da di Baye Fall mm-hmm. Serigne Saliou doxinu doxinu Baye Fall neex ko neexit woo xam ne doy na waar mhm. Mhm. xam nga sëñ bi daana nettali ni mhm. murid yi doon dox ci biir ko sëñ Tuubaa nee na dëngal dëngal ji daan def di yëngal suuf si nee na am murid bu am positif noonu lay doxee nee na nee na sëñ bi bu masaana wax nañ man lañ ci jublu ak sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Chouaïbou ak sëñ sëñ sëñ Abdoulaye Diakhaté nee na bu sëñ masaana wax fere yi rek ñun la jublu sëñ bi nee na sëñ bi ba mu nu wooloo boole noog sunu nijaay yi mhm. muy nijaay ci ñoom di bàyyi ci kii mu mhm. siif laay jaxate mhm. wal yu sëriñ tuwaawu mag wa bokk soxna fat jaxate nday ak bàyyi karaan di xool jumaa ji ba mu yàgg mun a xaraat tubaa gépp dañoo gëmmee dañoo gumba ñaari ñeenti weñ yu mag yi jógee ci jaww ji téye jumaay sëriñ tubaa ji lu tax ñu duñ teen di ko xool man loolu jàqal na ma wala nit ñi bi ñuy dox di sëgg rek man xanaa dañoo gisul lii koo koy nijaay sëriñ kooku la Serigne Touba bind jox ko. Mm-hmm. ne ko téye ko fere bi fere bi ba mu màgg nga jox ko ko. mu mm-hmm. Serigne Saliou. Mm-hmm. mu bind ci ndayam bind ci moom. lan bind ci soxna Fatou Diakhaté bi ko jox suñ ko ko la lan bind ci moom nag mu ngi téye nit tegu ci bët. te Serigne Touba mu bind ci ndayam bind ci moom. Serigne Saliou Mbacké. li tax ngeen boole ko guddi. Mm. ak maam Cheikh Rafal lu doy waar la. <laughs> maanaam lu yéeme la lu loo xam ne àdduna war nañ cee bàyyiwaat xel. Mm. bu ma bu ma nee dafa bàyyi faale. sëriñ bi ni mu doon seetloo ci tout tànk ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa ci ci doxalinu positif. Mm-hmm. te doxalinu positif boo gis maam Cheikh Rafal ci la aju. Mm-hmm. nee na biñ toogee ci wetu sëñ bi nee na li gone di def mooy nelaw def nañ nee na nee na gone nelaw la baaxoo. gudd xawee guddi. nee na sëñ bi jékki-jékki ne nañ tëral fere yi. sëñ bi nee na ki ma ki ma yanoo man borom positif la. daf maa aj ca kaw. nee na bi ma ajee ci kaw jëm jëm ci xadd bi. nar maa soññ ci xadd bi. mais gone gone damay nelaw. nee na Serigne Touba ne ko da nga koy gaaña Serigne Sall neen da nga koy gaaña Serigne Touba ñu muy mel tey ci man. nee na bu la sëñ bi yónnee ndab ñu war ko indi mm. nee bu ñu baaxoo bu ñu nee ko déj foo toll dégg déj yi mm. nee na murid doon noonu lañu daan def bu ñu ub bunt da ngay dégg mën a laweet mm-hmm. ndax pësté bu bari mm. te loolu lépp ma ngi cay gendiku mm-hmm. te sëriñ Saliou kat ci déggee mu nettali ni mm-hmm. sëñ Moussa Alima Gueye waaw ba ko sëñ Touba nee damaa bëgg mbind mii nga sotti ko te bu ko xool mas ngaa dégg loolu déedéet te sëñ Touba ne ci waxtaanee guñ ko ba tey kenn du ko wax de mën mii lañ ko sotti te bu ko xool. Mhm. waaye loolu kat bu ko ko waxee am na lu ko jiitu woon mu xaddimaat la bind di ko ko won mhm. ne ko waaye dama koy suul dama koy denc ndax mu xaddimaat bii sama borom defal na ma ci. Mhm. buñ ko dee jàng fu nopp ba mujj ñëpp seen yaram araamal na sawara. sëñ Moussa Aliou bi génne ko mokkal naa ko de fukki bunt ak juróom mu ne ko de Moussa kañ ko mokkal mu ko léegi mu ko tari mu tari ko ba kon nag wees na ci. sëñ Moussa Aliou Mbëggey moomee. la sëriñ Saliou nii da ko sotti lu mu bind bu ko xool sëñ Moussa dem sotti ko te xoolu ko ñëw na ko jàpp sëriñ bi fekk maam Serafal toog maam Serafal ne ko Moussa yaa yaa mbind moo gisul mu ne ko ah, yow mii ku la gën a muus yow mi ko fekkiwul waaw mën ku la gën a muus mm-hmm. moom la sëriñ Sall daan nettali waaw ci diggante ci diggante maam Serafal. Mm-hmm. wax na ne it. li muy doon doon tout tànk su ma sànni ñëw njaarim mm-hmm. day day am ay jaasibiyaat nee na nee na xol bi day xëccu di dem kër seex. Mm-hmm. nee na benn bis nee na dama dama mel ni ku rëcc. ñëw di ko seet nee na bi ma ñëwee ñu ne ma yaay man leen saalihu ibnu Seyxul Xadim. nee na am mag mu ne ah. mooy gone yi ñëw fii rek naan Sëñ Tuubaa leen jur ndeka loolu daana xew. ñi ñi mbubb woon sama bàyyi. deket deket jamono yi. yàgg na yàgg na dañ ci daan a nax Cheikh Ibra Fall. mu mu di ko naxoo. waaw nañ ci nax sax. mu di ko ci nax bari na de. Cheikh Ibra Fall ku tudd Sëñ Tuubaa ak ak loo mën loo ko mën a tuddee. dana ci ak yow. mag ñi ne dañ ko rek ignoré. am Cheikh bi. tank yi balaw mu na wax doomi sëñ Bamba jangi. Mm-hmm. te gis na a kay. Serigne Saliou daal ne. poids wala xam. xool na ma ba mu yàgg mu ne mu ne ma sa sa su ndaw sii. secret yi góor yàlla yëpp ci la daje. Mm-hmm. daal na waaye nag loolu na loolu na ci yeneen wax yoo xam ne du ma ko wax kenn. Mm-hmm. waaye loolu moom sama bàyyi Seera Fall wax na ma ko. te cofeel gu mu amoon ci moom. ci digganteem ak ni mu demoo woon ak ak ni mu ko defoon. ak xam gi mu xam ne ni tax ñu jot Serigne Touba maam Seera Fall. maam Seera Fall moom ba mu ne bërët. Fek seigne touba ni hmm kuma liggéeyal yalla defal na la hmm waye malaka ci mo xam ngay malaka wala ngay jinné wala ngay nit ba tax bu wahab hab liman khadamani ihsan hmm malaka naw mastura naw insana nit a gën a yées xam mo nit rek ay sikki sak seigne touba mhm. nit a xam mhm. malaka yi mo xam na seigne touba Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Basir. Ah. maa ko fekk fële. du nga góor yàlla. tiib tiibu nafsi. Sëñ Abdou Karim Mbacke mu Serigne Fall yónni ma fa puus puus yooyu ma doon dajale. ngir ñu yotti ko mu ne ma boo demee ne ko yotu ko wàllam dama ko won ci liggéey bi. ma ñëw fekk ku mu toog maa ak sëñ Mbacke ñang jarbaatam la la boole. ma fekk mu toog ci fauteuil bi nii. Mhm. ma ne ko sa dàll woo dem ba mel na ni soxlootoo koo sol. Mhm. moo ëpp xam-xam ci àdduna nañ moytu say wax. Mhm. xam nga da waxoon ni. da waxoon ni. sëriñ bi. malaaka yëbu ko ab yonent yëbu ko. kenn boromam mu mel ni coow li daa bëri bëri lool. mu ne ma waaw ma ne ko waaye li nga wax da koo bind. sëñ mu sëñ Muntaxa dama jéggal ci wax ji waaye dafa dafa dafa dafa mel ni ku def bay wàcc fauteuil bi di ma déglu ma ne ko sëñ bi dane farra lil kitaabu wal islam al quran daw na wut si ma l'islam daw na wut si ma nee na maay cinq ans révisé nee na fekkoon ay révisé ñu dàq la man mii lañ fat dal ne wa indi jundillahi la ulaa xam nga lu ko waral ñu naa am mu ne soldat yàlla yebuñ ma di ma yedd ba di ma ko xañ في منتقى دابا ولا في خلاتي كوتنا ما نقول سيدي بوخ رك لا لا يوخ فر للكتاب والاسلام وان جند الله لا اولام خم نقول ورا لول يا الله بم بيندي ادم ما نكو واتال تي كوسوف ملائكه دانيو باج سيدي توبا ني من ادم مو تي لا بوكل بن ما يد نزعني من الورى الباقي القديم علمهم بانني العبد القديم يا الله مو نوتي تي بير ميدي تك ما نري نما خمال غاي نيرن خمالنا لن لا ياي ليغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكو نيوم اور kon sëñ Thierno bala maa xaabaabal. waaw. naa naa ko tënk foofu. de xam naa nag dañuy dañuy des na sax des na parce que il faut ñu ñu xusaat tuuti temps bi bu kiiwee rek ñu daal di duggaat nii. Mm-hmm. parce que il faut que ñu ñëw. Mm-hmm. ci Serigne Touba ci ci Serigne Saliou ci boppam ak ndaw ñi ak yar wi. parce que xam nga ba muy ñëw dafa ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom. Mm-hmm. la Serigne Touba daan def ci mag ñi donte yelloo ma ko ma barkeloo. coow nar a bëri mu ne donte yelloo ma ko. waaw ma barkeloo ko. nga Serigne Saliou xam na ne am na ñoo xam ne man nañ koo dégg defe nii li muy wax wala tax muy wax lii mhm. waaye te xamul ne Serigne Touba mooy wekk di def nit lu mm. ko soob mhm. dafa wax ne ci mujj gi ko mësaan a jox sa doom mhm. dalay wax ne awuma jotug yar kenn ah. dama nga damal nga yar ko te jàngal ko daal ne may maa ngi woote loolu sama daara yi ma sañ ci xel ko cey xel ko ma xëy rek neex waaye ñi fekk woon kër kër maa jóob ak ñi fekk woon got mhm. Serigne Saliou Touré may dégg waaw fa jàngale fanweeri at kooku de xam ne na daara bi dina neex lool mhm. neex na de xam nga Serigne Saliou bi muy woote xel kom xam nga lu mu wootee mhm. njàng ma fanaan def lu ak liggéey bi ak yar bi dana xàttiye yow si lu muridu tarbiya lisil jilaali wa muridu tarxiya Saliou woo garaaw daf na mbindum sëñ Tuubaa nee na day àggale murit buy tërbiyee day àggale murit bi ngi tërxiye daal ne kon bu ngay demee da lay jàng xasida daal ne ilaa tawaalif yi yaqudullaahu asraar laa ilaha illa allah daal ne Sëriñ Tuubaa wax na ne sama taalif yi secret yi secret yi mas ngaa dégg loolu laa ilaha illa allah te mooy lépp lu dul yàlla amul lu yàlla amul na ngeen ne ci biir xasida yi ilaa tawaalif yaquudullaahu asraara laa la illaahu néewul yàlla da da néewul moom la da ne dama liggéey ba yàlla wombal ko defal ma ko ci xam nga sëñ bi gars yi ñii firee waxam ji mhm. waxewu ko noonu de mhm. Mhm. samay taalif la yàlla wommat secret laa ilaha illa def ko def ko ci biir yow nit ki ko xamul mën a la séeréloowu ma la ko yàlla it ñemewuma ko ba di ko waxal lu mu waxut waaye wala wala ma naqul wakil xanaa xamul sëñ Tuubaa daa daa daa daa beru nee sëñ Tuubaa mbiram da cee beru nee. lijjantiwul ñi koy seere fii. ndax yàlla moo waxoon bu yàgg ni. nit mënut a seere. ndax nit pour mu seere doon jay jafe. waaw léegi sama maam Bursin Kumba Ndoofeen. Mhm. bi muy seere sëñ Tuubaa jànkat nekkuñ fi. ah kay waaye gis nga yàlla ni mu fi bàyyee jànkat yi dem seeti ab ceddo. Mhm. boo xam ne ceddoon ci li ko neex la nekkoon. te mhm. jamono yooyu à l'époque ba mu gisagut sëñ oh. mu def ci mu xelam mu dem seere ko. te jekku la ko neex lool. Ah, te nekk jekku la ko neex lool waaye yàlla dafa bëgg a wane. daf na yéen doomi soxna yi ginnaaw xam ngeen ne ahlu ahmadu bi maa ko tax a jóg nangu wuleen koo mm-hmm. na koo xam ne defe woon ngeen ne xamut loolu ma def ko ci xolom. Mm-hmm. ak lam ko jaral. nga xam ne fañ doon daje sax ba tuumaal fa Serigne Touba. mantoom la summi ak suufu siin boobu doomi boobu doomi soxna jotiwu. mantoom la summi teg taabu ak suufu siin. sëñ Ba sin ko mën doo fekk. ndax bu fekkee li may wax du dëgg nañ ma rey. mantoom ak suufu siin maa ngi nuyu di nuyu sëñ Bass Xaadim Awa ba sama xarit. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye sëñ Baara. Mm-hmm. sëñ Baara maa gis mu bind ci lu doy waar. xanaa xamoon ne sëñ Baara gis naa mu ne. moom Touba feeñ feeñee xam. waaw moom képp. moom képp feeñee Touba. ci doom yu góor yi. te ba muy dem ba muy dem Jolof suñ di ko yóbbaale Jolof. nee na boobu juróomi at laa am wala lu ko yées. nee kenn ci wa kër gi dima togn tooñ mhm. ne ma boobu ni boobu ñu ngi wajjal jël bi mhm. ne ma sëñ baara ma ne ko sa bay bu tukki da ngay and ak mom sëñ bar ne manako sa bay fu muy tukki mu soxna dal daal jëlale ndax xamni ñu fi yaa bëgg critique mu mhm. jëlale sëñ bar ne bi muy jëlale man xam man baara mbàkke xam na ni sëriñ bi dana dem te bi sangam lay dem te bi sangam lay ñibbi te boobu dalagul baax <laughs> ci diggante bërsine moomu gis naa mu bind nii. bërsine ma nga bàyyi gars yi mbind na sabax. xam nga bërsine ba léegi moom wàggee ñoo ànd. waa kañ la ñëw wax ak sëñ bañ war a gaw kër gi. sëñ baara neen daa bàyyi gars yi mbind na sabax ba ñu demee ba war a fanaan. yendal fanaan fanaan fanaanal. mu ne mu ne mu ne dagam it fanaan leen man damay dem daaru mën naan lu mu gën a gaawee. waaye bu gën bu leen ko wax kenn de. bursin ñëw na sëñ bi ñi ngi waaj ñëw ci yow mhm. waaye dama fee bëgg a bàyyi ñi ñu gaw kër gi ndax li ma leen wax dëgg la waaye mën nañ fee dugal ngànnaay mhm. yàlla na dafay bàyyi ñi jàngoon am xam-xam doon ay crack mhm. xam yàlla ci liñ ko mën a xamee waaye xamuñ fi sëñ Tuubaa jëm yàlla boole ko ko ceddo def ci mu xolam ceddo boobee nga xam ne su ma saan a jógee jaxaaw ànd ak téeméeri dànn xisa bu nekk si Abdou Karim mm-hmm. Mm-hmm. saa yu euh, boo fa ñëwoon tey yow ceddo mm-hmm. dana bëgg ma nettali ko ak téeméeri téeméeri daan na kenn mooy mu ñu jiitu junj ñu topp ko mu sol mbaxana mu xonq footal di ko séen mu leru ko saas jaar ci raay bi ñëw jàkkaarloog sëñ Tuubaa neuf mètres supp dindi jaaj yi bam set wicc tekki jaar yu tekki lépp ba set wicc boo woyatu de ko mbaggee sëñ bi muuñ xam nga daa ko rawoon ñoon Mbakke mm-hmm. sëñ bi muuñ daan na ko juuf mm-hmm. muy arrière solaati ay jaajam arrière jël mbaxanam roof yéeg ci dëggalam gaa yi topp ci mu wuti mu leer waat Gosaas wuy waat wuti waat noonu mm-hmm. kooku la sëñ kooku la yàlla booleeg sëñ Tuubaa ngi ko sere kon sëriñ Tuubaa ak sëriñ Saaliw ak yar ak ndaw ñi Mhm. daf lay jox leen man ndaw ñi muy ma def ci ñoom la Sëñ Tuubaa daan def ci mag ñi mhm. Moustapha Sarr ak may dégg mu ngi nii toog daf nañu woon mhm. na ngeen jàng tey dem ci tool yi tey jàng xasida daal na nag tërbiye gii ma leen di tërbiye képp ku defe nii woyefal ci lii bàyyi lii fekk loolu mën naa doon tërbiye gi daal ne xanaa xamu boo amee bërigoy café téeméeri bërigoy café ak su ndox ak téeméeri bërigoy suukar te ndox mii nga xeeb mu toog ba da bi ni tëjee doo am café da ngaa war bala ngaa wuri wuti café wala ngay wuti suukar nga dem wuti ndox xaw ko loolu kenn mosu koo gis xam nga sëñ Souhaïbou ba muy ba jox sëñ sëñ Saliou quatre-vingt-dix personnes ya mhm. dana leen man ku ànd ak man imaam lay doon waaye ku ànd ak sëriñ Sall da doon imaam ak leneen mhm. ma joxe ci misaal maa ngi Moustapha Sarr mi ñaari tracteur lañu sëñ Saliou joxoon. Mhm. man daanaa dawal tracteur bu wàcc di tëral. dem ci tool yi ba ñëw di tëral. Mhm. loolu du imaam ak leneen. Mhm. sëriñ bi ne dee leen fonk liggéey bi ak njàng bi. sëñ Mamoun wax nga ko léegi. daara yee sëñ bi waxoon ñu bàyyi ko ndax mbirum yàlla bi teew. li ñuy wax préliminaire la daan def. daraan jékki-jékki ne. àll euh, yi may topp day li muy baax baax. Mhm. malaaka yi di wax ci pays yàlla yi ngeen di ko dégg moo gën. Mhm. wala wala wala bu xalima ngay bind ngeen dégg kéej kii yi. xëy na leen nag xëy na leen nag dem naa ci tookar bi yonent bi feeñu ma ne mu saafahatan saafaandi. Mhm. saafaha mooy mu tuñante. tuñante. na ma rabbi asxaabaka bil xidmati. wala turabbihim bi darsi. dañ ci bolé faxat waaye mën na sëñ Mouhamadou Lamine Diop àggul ca faxat mu len leen yaré ci njang tërbiyee len ci xal ndax boko ko ci njang mi kat ñu ya-, nit yag na jang ak siwul ci man dé yow ko ag nga ko wara agalé nga kon aj nañ ci yow ak si len wa man taallaqa bi wasilin wasal wa man taallaqa bi aksin fasal waye nak bi lolu amé mune wa man arada ma aradna fal yasir bi say bi sayrina ku namm li ma namm na dox sama doxin wi wala yàqum bi amrina ku ko munut nag la dem ci kër baayam sëñ daaru asan jaan boo gisee mu yeewu moom daa tadabbur daa setantal te setantal baax na de sëñ tubaa wax na ci masaalik nii ngëm goo xam ne daa jore ko li muy baax baax ngëm guñ setantal ko gën ndax tey ci misaal bu ñuy kurus gi téeméer la nga gëm ko ñu ne ma la ma wàññi ko maay mën a waat waaye a sëñ Daara Ousseyn jaar rek toog na ba takku sax. Mhm. muy a man sama bàyyi jàng ma doon def loolu. sëñ naa Abdourahmane loo jógee jógee Mbakol ndax sëñ bi ko yónni mhm. mu ñëw mu ne ko yónnante bi wutu na la mu ne ko lu mu wax mu ne ngeen jox ma seen bopp sëñ naa Abdourahmane na ko nuñ koy defee. Mhm. <laughs> sëñ bi sakku ko. mu ne ko waaye sëñ Daara Ousseyn Diagne mu ci biir néeg boobu xam naa day xalaat takku sax mu ne mël na ko mu ne mël ndeke xalaat na ni ah, man de ko taxaw sëñ bi ni ko xamee ak ak maaxam hmm. bu taxawee ne man nañu yóbbu ci yàlla kon mën na ko ah, daal ñuy jëm hmm, hmm, moo tax ñoo gën a nite ci yoonu murit te ba nitee ba noppi ñoo dàq jëf ci keneen ku dul ñoom ndax nite dafa am solo ci biir sëñ bi loolu la woon dong yi leen ci tërbiyee boo gisee sëñ Sall Ndiaye euh, ñu di ko sëñ Sall Ndiaye li ko indi mooy daa doonu sël benn dong ci biir Touba te sëñ bëgg ñëpp jariñu ci Moustapha Sarr ngi nii sëñ bi daa xëy ne ko euh, liggéey bi may liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. séeréer si gisaguma leen ci ci gox bii ma dëkk di ngay jàll mhm. wëral ma leen mhm. nga sëñ Moustapha Sarr dem wër ko daanaka fanweer ak nangam la am sëñ bi ne kon li ma li ma wax dégguñu ko ci la ma jëlee maag fukki maag téeméeri gone ak fukki juróom ñu ñëw fekk si ñoom Moustapha Sarr léegi ñu dem ba mu yàgg ñu dem ñu dem ñu dem Bambey séeréer ne leen Serigne Saliou daa soxla ay séeréer ñu ñëw man maa dem Touba ñu war a mën ñaar téeméer ba ak si ay ñeenti téeméer. Mm-hmm. ay joolaa mujj ci bokk. Mm-hmm. ñu ñoo yoroon daaree joolaay maag moom mais. Mm-hmm. ma dem sëñ bi sëñ bi ne ma sëñ Saliou ne ma. man du man la nee na ma de. sëñ bi nee na laa lay wax. ndax li ma wax. danaa ci bari lool ndax man la ko waxal. xanaa xamoon nii jamono demee di am ay takk-takk maa ngi Moustapha Samé la ko wax. tabaski gii la gim làqu gi ci toog mhm. dañoo toog maak moom mais di waxtaan ak moom ak gone yu néew am ci gone gu ne ko mbàkke damaa bëgg nga may ma xaram tabaski mhm. tabaski ñu ne suba la tabaski gi mhm. ndax sama bàyyi daa sonn sëñ bi na makk makk na waa ñi seen bàyyi sonn ñëpp di mën bëgg a jox tabaski comme mu koy jëlee di ko tooñ waaye jàpp na ko jox waaye bi mu ko waxee yërëm la waaye mi ngi koy mokkee sëñ bi toog ba mu yàgg ñu wax ak moom li ñuy wax ak moom toog ba mu toog dallu noonu sóonu bi daal ne ji doom yëg naan day waaj naqar te la tok de kee ma seere waaw la nga xon ci jamono joy bang ko waxe ba ndëgën nag gisugumul ci meji man lu ci lu ci lu ci tourner lu toll ni tartas dañ biñ déparé maa moom laa ne ko bu sa saa nas yëngal fiñ ko wax hmm bang ko waxee tëbaski gu ba tëbaski del si la la dama lañu mo muntu na muntu la neex mom booba booba neex mom muntu la am booba ni muy waxe mi ngi junj ak ak ak dem gi rek léegi nag euh, daanee lu guma ma de mhm. mu ne ma bambay séré séeréer soo fa jëlé hmm Eh, dama dul dama dul kaajee ay gone man. xalaa mhm. man nag kenn du ma kaajee yéen. Mhm. dama leen di delloo de. Mhm. ma ne ko ah mu ne ma waaw. ma ne ko delloo mu ne ma waaw. mu ne ma mu ne ma mu ne ma Moustapha moom laa waxoon mu wëral ma ca tund wa moo dégg naa fanweeri gone ak teg yu teg la am waaye nag dañoo dem ci ñeene leen siñ sall da soxla ay séeréer man kenn du ma kaaj yéen ay gone fekk man ma yëg ni gone yi tàmbali nañoo firi ji am ñuy tàmbalee sori am nga xam sen sen dal yi ñaan sol. Mhm. ñaan ko ak mbalka mhm. donc tër bi xamnañ xam nañ ko. Mm. ndeysaan mujj na sax solatuñ ko. Mhm. <laughs> tambalé solo mu jékki-jékki ne ma dama leen del delloo. Mm. ba mu yàgg mu ne ma waye xana dang ci amul xalat dem ko de. mané mm. ko mbaka ah Mbacke yow yaay jël kaaje e dongo di ndax ku bëgg ag ci yalla ci yow la ñëw di. kon jar nga dem di kaaje yi. mu ñu ñi kon da bayina ko. te lu ma ci wax sax maa ngi koy tuwal Serigne Touba. lool Serigne Saliou yow ko. kon biisu. damay bañ a xaabaabal xam naa. <laughs> waaw nga ni muy déyante gone gi gis nga. waaw. ci déwante bi amoon nga jotaay yu bari yoo xamante ne daan nga ko am ak moom. Mm-hmm. waaw yàlla dogal na waaw loolu bokkoon na ci la gars yi doon ñëwee sax ci li nga xamante ne daan ngeen beru ci waxtaan yu nu mel. yàlla dogal na ci xóot la daan wax ci jëmmam. yàlla dogal na sëñ bi dafa am stratégie su tërbiya. Mm-hmm. Euh, ceddu murid mi day am ci moom paar ma am ko ci keneen am ko ci. ñu bari mm-hmm. lool. mu bëgg a fanaan ak ñun ñi kenn ci ñun te te du te du bëgg a béccigal kenn mm-hmm. Mm-hmm. day jékki-jékki ba mu yàgg mën naa jóg romb dàll yi mm-hmm. sëñ bi ak a xereñ sëriñ Saliou bu rombee dàll yi sëñ Mamoun Ndoye jox ma dàll jox jëlal dàll yi te dafa war a solkat nga jël ko topp ci ginnaawam soo duggee mun la gaawal tëj bunti ba la la kenn fekk yéey <laughs> su ko defee daal yónni ñëpp tariwu suba lol la ko waral moy bëgg na liggéey mhm. lu ci jëm ji lu melni bëss bés mhm. def na ko ba tay mhm. waaw dama ngi lay yëgal leen am na bis wax na bëss na ko 4 heures de temps montre bu sonné ñent ñeenti yoon señ Mbàkke Mbàkke mi ngi may dégg mu ne ma señ salaaw señ Mbàkke Mbàkke bi day nelaw rek yee ko waji ko waa ji mu xëccan balal mu ne moko tay de <laughs> salaaw xam na ne dama ko bëgg bëss bés rek de mu bañ te waji bu ma yee mu bañ mu ne ma baax xam naa maa koy tooñaale waaye. Mhm. lu koy neex. Mhm. ndeysaan. Mhm. day fanaanee tari xasida ba bët set. am na ñaari turi yàlla yoo xam daana ko dégg ci daal du ko wax ci télé. damay bañ ko ci roy. ndax ndax kat roy koo tollooli mbag. koo waaye day tari alquran ak xasida ba bët set yor kurusam. loolu méthode tarbiya la. sëriñ bi bëggut a gaañ kenn. am na ñaari ñoo xam ne jàppante na ko. mu xam ni kee tooñ de waaye ki mu tërbiyee moom la yan yi fii. dal ci koom lool sax. ne tuuti mu gis ko mu yenu ci baga bool yi di dem ak a dikk. mu woo ko ñëw mu ne ko alhamdulilah rabbil ndax li ma def ci yow mat na kat. ndax kat xam naa ne moo la tooñ. waaye bi ma la yenee li ma la yen gisaan la ci liggéey bi laa xam li ma doon def ci yow mat ndax xol bu laab mm-hmm. bu bu munta jàpp dara ci ci ci ci ay métit métit mm-hmm. loolu lañ soxla ci am nit ku ñu defar te yow mi ngi ceew yow bu bu ma bëgg a xam dara lu mu bëgg a xam day gon xool gone gu yeew mm-hmm. mu mu fexe ba fanaan ak moom laaj ko li ñu ko bëgg laaj lépp loolu mbirum nit la xanaa xamoon Sëriñ Sall daana wax ne bëri na lu may def ñu defee ne baatin mhm. fekk yàgg ci jamono ak yàgg fekk daal ne daal ne baatin daray jar daray àdduna jërul ma génne ko daray àdduna la wax mhm. jërul ma génne ko mhm. ndeke fi ne li doon niru baati jiw ak ni muy réy réy expérience la te baatu tajribe tajriba lu mu fonkoon la xam nga sëriñ Saliou baatu tajriba suñ sëriñ Saliou langue arabe ko won na ko noo xam ne man dama cee xam dara de. ndax ndax dama ko daan seq ak moom. dama cee xam dara lépp fa la dama ko dama cee xam dara. lépp fa la ko fekk. maa jekku gim jekkoon làmmiñu arab. jéggi na dayoo. xanaa xamoo ne bu ñu ma sant di wax nit mën naa jàng. te fekk gis na ay wayam. danaan way yi ma jox tegtaliwu ko. léeg-léeg nga jox ko ay way. mu xool ko benn yoon dugal ci poos bi. Mm-hmm. fi ne ko laajee ba tari dafa mag ñi dañoo waxoon ni. Mhm. soo bëggee jàng xam-xam da ngay yor wayu sëñ bay jaxate ak mën a déggu sëriñ Saliou. Mhm. sëñ bay jaxate ak a wayoon. sëñ bay mhm. daana fekk koy jàngal ci ab dëj. mu tëralal ko. daana ko fekk ci ngénte mu tëralal ko. sëñ bay jaxate way googu la yàlla defal ci moom. sëriñ Saliou lu ma sa dégg du jàll. dugg na ci xol bi. dama ko ma sa romb ci lagan. boobu laay doog a doon lagan. sëriñ Saliou si la maa ngi koy nuyu bu baax. moo ma doon jàngal xam-xam. Mm-hmm. ci njëlbeen gi. Mm-hmm. jàngal na ma tuuti rek waaye ginnaaw bi sëñ Mëndooy Saar. Mm-hmm. ginnaaw bi sëñ Xalil moom àggale. sëñ Xalil sëtub sëriñ Saliou la. ma romb ko yor yor yoru nax ju xadaayal bi jàngale yoonu murit ak tërbiyee ak ak nit ay teggin. mu ne ma nii. ma ñëw mu ne ma lii nga yor lu mu. ma ne ko ab téere la mooy mañ moomu sëriñ tubaab bi nax ju la. mu xool ko ne ma. fii nga toll mo a am yow di jàng góor dara maa <laughs> ko moom fetax seigne Sall noonu lay tribuer non la yare mm-hmm. way way ngir ma fonkat alcorane xam nga lu ma ci tegal mm-hmm. dana ma li ma daj ci xam-xam su may go ci alcorane la koy daj mm-hmm. mas nga deg lo ak seigne Sall mi nga xamne photo boko ko gisee day mu tim man mi di wax ak yow nek na ak mom ci mbar mi muy jang alcorane bay ba aksi ci qaalat inni auzu birrahmani minka in kunta taqiyan xam nga lu mu ci yëg daanu ba kaan wadd man maa ko for su nuyoog nit ñi ñetti minute tëj ko jàng ñetti isib dooga ubbi ne man nag ni ma daj ci xam-xam su ma yëgoon ci alxuraan laa koy daj kon nit ñi war man daal foofu daa am loo xam ne. dama yëg na daal ki moom mi est-ce que. waaw li sëñ Sadio doon wax naan. defar naa leen ba noppi defaree tax ma téelin bi ndax mu bokk ci woon. loola moom def na ko ci daara ji a tey. waaw moom mii di waxtaan kii defaree tax sax mu nekkoon diwlin Ngéjaan. loolu ko doon jox àllarba. waaw. multimilliardaire lay nekk moom mii. waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatu. ahlan wa sahlan. waaleykum salaam wa kenn du mën a wax ci sunu sang boobu nag te duñu ñëw. waaw ah, rawatina ngeen ñëw sunu kër gi ñu dalal leen. ameel nga ma cinquante euros. <laughs> wax kii moom. daanaka ki ngeen di waxtaanee waa mooy waajuróomu góor. ñeneen ñi ku ci nekk xame naa la ci nga wax ci yow moom xasida yi rey na ma gaañ nga ma. fa ma toogoon. ñëpp a ngay daanu. yow moom déedéet bu jóg de damay toog ak alalu Serigne Sallou gi ah, ndax da di wax xantaane koo xam ni. ñëpp la defar. ndax ku xool ci ñun li ñu yëngu. def naa méngoo na ak Serigne Sallou liggéeyam. ndax ba mu toogee lu mu njëkk a wax. lan la njëkk a wax. jox leen ma ndaw ñi déedéet. ci mbirum diine lu mu ci wax. lu dul lislaam aw ma ci defar kon yaakaar naa ne kooku xamul ñu doon ay mhm. di yëngu ci jamono mhm. waaye ci yërmandeem ak ci baaxam mhm. dafa nangu ñëpp dem naa ba ni su ma toogee ni ko mbàkke mënuma jàlloo yow bi may xamante yow def ak ma xam ko muy tahu soxna aswalo. ngeen di wax nag ci góor goo xam ni boo leen koy wax fii ba fajar doo leen pare de. moo la defar moo ma defar. <laughs> ba tax na dañuy sàkku ci ci barkeem. ci barkeem xasida yi sëñ tubaay yi. ñun amuñu lu dul sëriñ Tuubaa. amuñu lu dul xasidaam yi amuñu lu dul njabootam gi. ngeen ñaanal ñu sunu kër gi jàmm rek fi am. toujours ma jooytu naan fii ab waxkatu murit daf fi war a am. Mm. chaque jour ma jooy ko. Mm. ndax nag ñun ay murit lan mhm. te nag am duñu complexé déedéet man balaa maa gën a kontaan toog ñëpp di ma seetaan ma ne jërëjëfi Sëriñ Saaliw mhm. awma ci complexe ndax damaa xam foo ma jógee la mu def ci man mhm. sama askan amul murit dama koy wax nag ci kaw ñëpp ak may dégg sama ndey xam naan fan ko denc ñun ay jamono boo nuyu woon Baay Faal wala murit dan lay wax demal nga jàppiwaat barke Seydina Muhammad demal nga jàppiwaat. Mhm. ma nekk ci ay tolof tolof. Mhm. jóge Europe ni aslamtu nafsi illa laa ci Serigne Saliou. Mhm. boobu ba léegi. barke borom Tuubaa wàccu ma. lu ma bëgg a faj maa ngi koy faj. dem naa ba ci sama waajuru jigéen bu ma bëggee sax. Mm. neexal daf ne ma ba dimbali ma nga defal ma ko ndax barke Serigne Saliou. ñu bëri ci réew mi. ndeysaan maa leen womat ba ci kan mu jëmm jooju. di leen mbàkkee kii mooy diw. kii mooy diw kii mooy diw mm-hmm. sëriñ Saliou jooy naa ko joowo yu xol yu foor mm-hmm. <coughs> sëriñ Saliou jooy naa ko jooy xol yu foor man ñàkk naa moom moo tax mu muur leerug bi diw yi yow xamal sëriñ saaliw sun cëri weet na xol yi weet daara yi na kër yi weet tey jii yëgal ni fépp weet weet kuy wet leeti amatul sëriñ saaliw dongo yi tey jii ñépp a ko jooy murid yi tam ko jooy yëgal ni kii ñëpp ko jooy ku mel ne moom taxawatul jërëjëf maa ngi leen di ziar maa ngi jéggalu ndax dagg naa leen dama toog ak Abdou Samad ak Pape Mbaye ñu may tooñ naan ma waaw ba ngay jóg jébbalu sabar nga yoroon ti laa romb man ko waaw dama gis waaw tey la tey tey moom tey vingtième jour koon waaw su kay na Fall ak Lamine fay man ko aslamtu nafsi illallah doon Baye Fall ma takkoon ci moom laxasaay ginnaaw gi laa jébul ci Serigne Saliou tey ma yeesal ci doomam jooju naan Cheikh Moustapha Salih yàlla na fi yàgg te wér maa ngi lay ñaan nga ziyaara ma sëñ Abdou Karim mm. baatin dama ñu defal danoo dem ca kër ga di def émission mm. ñu dem ba taal làmp yeeg lépp taw ba ñëw mm-hmm. ca ëllëg sa ñuy defaat émission bi même heure mu ngelawaat def na mu def mm-hmm. mu woo ko mun ko waaw moom day xanaa du taw de noonu la téye taw ba. bay monsieur bi jeex loolu nag sëtu sëñ Tuubaa rek ku ma. Mhm. jërë ngeen jëf axlan wa saxlan jërë ngeen jëf. merci jërëjëf mukk sëriñ nga lu rafet ma ngi kontaan bu baax salaam ci sa teewaay. macha allah waaw Fall di nuyu taalibe sëriñ Saliou yëpp yi nga xamante ne ñu ngi toog di seetaan wax dëgg yàlla man ma koy jiital rek Mm-hmm. ci euh, euh, wax dëgg yàlla Amadou Gueye 50. Mm-hmm. waaw moom borom tapis vert ñu koy gërëm bu baax. comme ni mu tàmm di ko waxee rek. Mm-hmm. <laughs> nee na attestation de bonne exécution. de prestation de restauration. nee naa ko yow yëpp ko jël yow jëlal yëpp. macha allah waaw ñu koy nuyu bu baax moom taalibe Serigne Saliou bi. wax dëgg yàlla ñoom ñëpp bég nañ fi ñu nekk. ñuy gërëm Soukayna Fall aussi ak Lamine. ah euh, borom këram wax dëgg yàlla ñoom it xam nga ne bu ñuy waxtaanee Chéré Fall ñoom ñëpp dinañ jug waaw mm-hmm. ah, sama sang bi waaw Seydina bu Serigne Saliou Seydina bu Cheikh Béthio waaw ah, moom it xam nga waaw te xam nga nag ba tey ci élève sëñ Galas la rek xam nga moom mooy suñu sëriñ waaye sëñ Galas mooy euh, kii sëñ Saliou ndigal xalifa Cheikh Béthio sëñ Abo ndeysaan mm-hmm. woote na sànq doon soññe sax di laajte ndax émission bi tàmbali ban heure la ñuy commencé ban heure la ñuy commencé ñu koy ziar bu baax moom it waaye euh, buñ tolloo fii nag mm-hmm. Euh, defe naa Serigne Cheikh Saliou lañ war a jiital ci suñu nuyu. Mm. ñaanal ko mu yàgg fi te wér. suñu sang bu tedd boobu nga mm-hmm. xam ne. Mm-hmm. buñ duggee ci moom day sori. Mm-hmm. Euh, nuyu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Bachir. Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Mourtada. ak seen jigéen. Sayyidatna Waalo. Mhm, soxna Waalo soxna Momi. soxna Momi soxna Ami yàlla na ko yàlla dolli leer. amiin amiin soxna Fatick soxna so mhm. ak njaboot gi yëpp nag. Mhm. taalibe yeeg njabootu sëñ Góoratin. sëñ Xaadim njabootu sëñ Saliou juuf boofu Mbaalim sëñ Modou. ñooñu ñëpp ñi may tudd. ñooy ñooy waa kër sëñ Saliou Mbacke. Saliou Diouf boofu. Euh, Fall. Fall yaram. xel comme ça buñ ko waxee. murit seen xel dana dem ci sëriñ Saliou. danañu yéem liggéey ba lool. waaye nag. bu nu fàtte ka ko gor. xëy na murid yëpp a ci teewoon. waaye man taxawaayu Cheikh Modou Falilou Fall ci xel kom. 91 laa bëgg nga duggaat ci. xam nga. ceddo. Hmm? Hmm. Euh, hmm. euh, diggante sëñ Saliou ak Cheikh Ibrahima Fall. waaw yow am nga ci seede. ndax njabootu Cheikh Ibrahima gi nga xam ne jox nañ leen sëñ Saliou mu ko sa loxo. kenn ku ne nga jàngal ko am na ci ñoom tey seen xalifa bàyyi lañ fi ñu ne. dëgg maam Cheikh a ngi fi mu sëñ Abdou ñoom ñëpp ci say loxo lañ jaar. jàngal na leen téere yu bari de. ma ngoog. xam nga jëmm jii di Cheikh Saliou. Mhm. boo gisee xel koom jooju ngay tudd Cheikh Ibrahima da koo yàgg xam na. Mhm. li ma lay wax nii nag daa jiitu lépp. keroog bi sëñ Saliou ñëwee jamono. Cheikh Ibra def na ay waay ñay dajeeg moom jamono. daan na ñeewu ku njëkk ñeewu ma ku mujj. Mhm. ñu ne ko faal koo ñee mun nañu jamono teg Serigne Saliou laa ñee. Cheikh Ibra na jamono ju sëñ Saliou nekk ku ca nekk. Mhm. ku njëkk dan la ñee ku mujj dan la ñee. waaye xoolal ñi jamono teg Serigne Saliou. Mhm. xoolal ñi nga xam ne ci jamonoy sëñ Saliou. ci la leen àddina déggee ci lañ leen xame ci la seenum yëngu gën a yëngoo xoolal ci jamono ji dëgg la amul ku ci nëbbu ci kaw suuf amul ñëpp a feeñ nga xam ne jamonoy sëñ Saaliw ci lañ jóge laa la wax ci lañ jóge xoolal ba xam doo ci dégg kenn koo xamante ni bi tey danga naan mbiram daa deltu gannaaw salaam wax na ko fii léegi dégg mm-hmm. yow mii am seede na ci yow gëmu xamu ko du sëñ Saaliw xam te te ceddo moom kenn ku ceddo bu réeroon ku gaaw a feeñ lay doon. njurul lañ may yóbbu. <laughs> direct dañ may dem joxi sëñ Bass rek. ma ma ko bu ma defoon nit fa lañ may fajee jëf. <laughs> na tàkk kon loolu kon la Seex Ibra Faal waxoon ne ñeewu ku njëkk. Mhm. ñeewu ma ku mujj ñi jamono Serigne Saliou Laañe. Mhm. loolu feeñ na bi ci des mhm. naa di jamonoon teg nit. waaw muy faatu dem jeex na tàkk. te euh, xam naa ko. Mhm. Nena, Mamam, mhm. dafa dafa dafa dafa Jel jël ay teranga mhm. Nako ko mako seigne ko nena ma indi ko. sëriñ bi ci bopam di defar bolu ci loxom bu tedd ba. jox mako nama demal kewlu ya diw male nena nee na bi ma nee bi muna a lu ngeen beug nañ ko ci fas. ta xamna lu ngeen ci beug da ngeen dajeeg moom. waa ji nee na ma wàññeekuwaat ba tim ko nako man de mbacke len kep la ragal. muna ma de dem sawara. muna ma demal te lek te xewlu yowmal xiyaam nit waaxu jëm safara mhm. ñu ne kee mook sëñ Saliou nekkoon nañ ci jamono boo ma rus daam njëgeen ci Thiès. waaw surtout alaaj alaaj Amadou Baro ko dalal maam Cheikh Ibrahima nettali na ko ba kaay jeex na léegi nag kon mhm. kon da ci xam ne sëñ Saliou la Cheikh Ibrahima waxoon mhm. ne ki ma ñee mooy ki jamono teg Serigne Saliou te it Serigne Saliou daa jug fii maam Cheikh Ibrahima Fall am na ci yoon woo xam ne sax nee na ci palanteer ba la jaaree <laughs> mooy palanteer ba Cheikh Ibrahima daa ubbi di jàkko ko Serigne Bour Fall benn nee booba tuut tànk la Mhm. nee ma jóge ci daara ji ma doon jànge dem ba mhm. ma Nenjawan mhm. xammi ma dafa wax ñu jëli ma ma jaare ci biir kër gi ne gi ma teg samay tànk mu talal suuf may xalaat sama xel ña ka may jàngal ndax su yégee ni génn naa te bi may génn nee na damaa jekki-jekki rek waxuma dara dem nee bi may xalaat sama xel Cheikh rafal tont ma ci lama ñam xanaa da ngay bañ ko la gunge ma ne ko mu bu la mag ñu gunge fere yu gunge la nee mm-hmm. bi may dem sëñ Saliou nee na sama poche yi Cheikh Ibra da koo duy addi ba mu fees dell boole maag nag mi ponkal ku ne yanu dara ay addi ñuy sekkar topp ma ci mm-hmm. ku bañ ñu yëg la xoolal koo xam ne ngay génn da bañ ko la yëg <laughs> waaye nee na bi may egsee sëñ Saliou nee ka may jàngal mm-hmm. waxuma dara ndax indil naa ko koom moo xam ren ba dee mën na ci dund moom noonu la meloon nag maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi dina moo tax sëñ Saliou boo xëy boo xoolee fi ne moo ñoo bokk defaree xoolal ñi sëñ Saliou yàq xoolal ñi sëñ Saliou yar mm. ci loxol boppam mm. ñoo koo ci gis nag ab Baye Fall la xoolal góor a ji ñi ngi koy siyaar bu baax a baax ndeysaan soxnaam moo ma ne mm-hmm. góor de sooy waxtaane Cheikh Ibra day tàggu sagam day jooy rek mm-hmm. góor a jëy góor ba mm-hmm. ma dem bi seeti ko mu ne ma ah. lii ma lay wax maa ko dund ak sëñ Saliou mu naa mu ne mujj yi bokk naa ci ñu daan wàcce karawam ñu ko daa wat mu ne ma gis nga at mu mujj bi ni karaw gi mel na saalañ defe naa wane woon nañ photo bi léegi karaw gi ni mel def baram def def njañ naa mu ne ma danaa wax la ca xew góoraa ma wax nee daa am bis ku tedd ki sëñ Saliou ci mu jëm na ma góor a kaay wat ma. nee na ma dem jël resuwaal wa waajal ba tiim karaw ba tooyal ba tiim di war a wàcc karaw bi. mu ne ma xanaa góor a karaw gi xaw naa saaliñ. nee ma ne ko mbàkki waaw fi ne nii nag moom da nee ma bëgg lu ko neex ne ko nag mbàkki fi ne da ngaa bàyyi faale nag. moom karaw gi moom daa bàyyi faale mu ne ma sàllaaw kon watee fi nañ ko bàyyi ba déwén ma barke sama bay Cheikh Ibra. ak moom sëñ a na ma ca déwén sa watee fa ma ko wat moom la ñu bala jana. ci mu ma lay wax. ci exemple rek xanaa xanaa Cheikh Béthio war naa doy exemple. ci Cheikh waaw xam nga. te dégg naa ci làmmiñu Cheikh Béthio mu ne. Mhm. Serigne Saliou moo leen ne. Mhm. fu ngeen doxee ba fekk ñuy waxtaane Cheikh Ibra Fall ne mel ci yéen Serigne Touba la ñuy mhm. waxtaane. kon Serigne Saliou wooy Cheikh Ibra Fall moo tax sëñ Manoumbe Mbeek Cheikh Ibra Fall ñoom miin Serigne Saliou. xam nañ ne Serigne Saliou mënu woon a muñ ñaari ñaari jëmm yooyu. moom boo ko tuddee ci kanamam. nga gis ro xéewal yi sotti ko. sëñ Manoumbe Mbeek Cheikh Ibra Fall lii ngay nettali léegi Euh, ca ca ca ca ca ca kaamil boobu ca mbind moomee mu doon sottiloo euh, sëñ Moussa Alima sëñ Moussa Alima sëñ Moustapha Mbar moo ma ne mhm. moom sëñ mu Raminta Fall mhm. barki borom Touba moo ma wax mhm. na ma lii ma lay wax ba ko sëñ Saliou nettali booba sëñ Abdou Guèye mii sëñ Mour doomu sëñ Moussa Ali ngi toog maa ngi ñoo ma toog maa leen ñetteel keroog mm-hmm. mu ne ma sëñ Abdou mm-hmm. mm-hmm. sa góor a euh, Modou ma keroog ma ne ko Fall mu ne man mii di wax ak daa maruk sëñ sëñ Moustapha ci jotaay bi mu la koy nettalee mu a ma keroog dañu ko sëñ Saliou di nettali. Mm. sëñ Abdou Guèye mi siyaar si. sëñ Saliou ne sëñ Modou Aminta. a gënu koo wér. Ah? déedéet nettali na ko ay yoon yoon gënu koo wér. waaw mu nee na sëñ Modou Aminta daal sëñ Saliou ne sëñ Modou Aminta. Mm-hmm. nuyoo ak sëriñ Abdou Guèye mii. Mm-hmm. ngeen fasante kóllëre fii ndax mm-hmm. waxtu wi ngeen daje fii. seen ñaari kilifa yi daje nañ ko sëñ Touba ci njëriñ. te la sëñ Saliou nettali xista bi suba sëñ Moussa ma ko wax. doomi sëñ laa ilaha illallah. ca Cheikh Ibrahima. laa ilaha illallah. maam Seera Faal. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. laa ilaaha illallaah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 illa allah xam nga da koo teg ci basang gi ca commencement ba la ko noonu bu ko teg ci basang gi ndax ku ko xam xam ne xam na moom day sikkar moom waaw moom ca kaw ca kaw la ko waaye ci waxtu wi la jóge Touba ndax mooy sikkar bu ndogi seera faal yi tegee ci kanam sëñ Seex jëm moom mooy tudd yàlla ba noppi bañ tudd yàlla ba sunu yaram tàng ñu doon a yanu ndog yóbbul sañ Touba mooy sikkar ba sikkaree pare la takk jóg Mhm. ay guddi lexi fi mak mom moom ñoo bokk waxtane Cheikh Ibrahima bi mhm. ba jatt ba beut set mhm. mu wat ci fajar bi kari wat ndog yeex legi la ñewat fi te fi may waxe yow ni defana suma joomul wa juumul yeglu moy parti yëglu mooy bu ñu wara yobbu dañuy dem kumte ji dañuy dem kumte dañuy yobbu ji dogu legi ci fajar bi toba Ila toba li yelu fi bax Cheikh Rafal motax xamna ni naa ci moom coono bo xamni fi may waxe yow ni xamna ni mom moom ñi day masla ni way sikkarul mom ko xam ki xamna ne sikkarugul te nak te nag Modou même boo même bu fi doon yam sax tey nag faaw nga xotteeku ba ca kaw bi. <laughs> waaw Fall fii waaw Fall waaw. Euh, dafa wax ne sëñ Mamour waay. <laughs> ñi jamonoon teg Serigne Saliou rek la ñëwee. waaw. wax ju rëy a ngi noonu. waaw. boo tàmbalee ci sëti Serigne Touba waaw. ndax doomi sëriñ tubaay yi. Mhm. ñii dañu ko mag ñii mu mag leen. Mhm. ku ci ne. Mhm. lëggéeyal na la ba am sa gërëm. ku ci ne. Mm-hmm. liggéeyal na la ba am sa gërëm ci lu mm-hmm. wir mm-hmm. euh, maa ngi moom cëb bi mu moomagul Touba lu mu liggéey ki moom tubaa la ko jox bi mu demee ba moom Touba lu mu liggéey Cheikh Mourtada soxna may jumaa ji xel kom ba mu ko jëkkee bay loolu la wax bi mu dajalee waa kër gi yëpp da leen ni ñetti xaaj laa ko def xel kom ñetti xaaj laa ko def Serigne Mourtada soxna may jumaa ji waaye sëti sëriñ Touba yi mm. tàmbale ko ci ñëkk ñi njëkk a moom Touba mm. sëriñ Alaaji Baara mm-hmm. dawalal na sëriñ Saaliw ay at mm. tuddee na ko ñaari doom mm-hmm. waaw kam ko njëkk tuddee mu dem mm-hmm. ki ci topp sëriñ Saaliw moo ñëw uuf ko tudd ko tuddee ko boppam sëriñ Saaliw yaa Xadi Njaay ma xam ko bi mu ko tuddee ba noppi te yëgoowul ak sëñ alaaj sëñ alaaj dana ko barke sëriñ Fàllu yow laa ko bëggoon a tuddee maa ko xam Cheikh Sidil Mokhtar mi ci topp mhm. Mhm. bi mu doonee xalifa sëriñ Baara la bind ab kaamil jébbal ko sëriñ Saaliw sëñ Sidi Mokhtar mooy kuñ masta woone ko kaay wuyu sëñ Saaliw mu jóg ne nañ ma jot li nangam ma sol ko noonu lay buuboo rek dikk addiya ji da koy dab day ñëw ba toog ci kanamu sëñ Saaliw di xalaat fu mu denc xaalis ci kër gi balaa faa jóg daanaka lu mu denc këram danañ ko yur indi ko mhm. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi wet gi mm-hmm. doom la ci moom wet gi rakk la ci moom waaw mm-hmm. te sëñ bi dem na ba ni ko seexale naa la ak sama jëmm ji moom mm-hmm. oh. ko na xam na seen takkoo waaw boo duggee kër Cheikh Rafal waaw sëriñ Modou Aminta Fall sëriñ Saliou moo ko wax ci xel koom ni ko fii nga indi yoonu Baye Fall bu fi sama Baye Cheikh Ibra ne woon ba nëgë ni mënu koo weesu kon lu Cheikh Ibra Fall manee sëñ Modou Aminta moo yëm ñëpp de. waaw kay bàyyi te kat danaa la wax leen ceeb waaw te foofee. te 91. bañ tàmbali gor ba. waaw. ba xel koom ju mujj ci sëñ Modou Aminta. waaw am na murit yoo xam ne. sëñ Modou Aminta ay ñaañu xarit leen tudde woon. waaw xel koom jàmbaar lañ ci woon lool. xoolal dar ko ñu may seetaan ñooñu mën nañoo seede ci ne xel koom. Mm-hmm. ga sëñ Saliou doon waxee nu ko fanaan am na garaatu mu saarix mm-hmm. ba ñu fa taw ba fekkee. Mm-hmm. dugub jaag dund baag yëpp doon doon doon tasaaroo ci ndox mi. ñu daw lu bari ñu rawale ko ca magasin ba mooy ca seko ba mhm. mi ngi ma mel ne tey ji waaw mu metti lool xel koom joo xam ne tàng jër ñu xëy waaw ay camion mhm. yu bàyyi ko woon que suñu am di xadi jëm ca tool ya mhm. def soog ci àll bi am ñu ca wàcc liggéey jàllo picaas taalibe sëñ bàcc ngàcc la kii xam na ko ak ñoo xam ne mag lañ ci man sax wala wayjur lañ ci man ci lañ des daara sëñ moo demin tëjë mhm. booba daara cinq defe naa lañ dal de mhm. daara ji xëy xëy xëy tàkk lakk jur mhm. gak lépp lu ne bàyyi faali daj ko xel koom sëñ moo demin të ne liggéey bi rek te bu masaan di dem ba nga xam ne liggéey bi jeex na day laaj sëñ bi na ko ndax dañuy toog nawet tabaskee nañ fa ba tay ba tay boo fekkoon tabaski bàyyi faal yi xel koom. doo xam ne tey la tabaski. dañuy dem ba 6 heures ci ngoon dañuy wàcc. lu ne waaw tabaski korite ne. xam nga xam nga fi ne xel koom. waaw. nit ñi ci kaw tali rek la ñuy daw. Mm. waaye gor nañ ko ngor moo xam ne bu la yàlla xiiroon ci wàcc tali bi rek fetal. Mm-hmm. foo jaar doo dajeeg tëkk. maanaam xel koom mooy suuf soo xam ne. dëgg la mm-hmm. wërsëg ki bàyyi faal yi xel ko a ko yokk. sëñ Abdou Sakkoor bi mu fiy jóge mm-hmm. addiyee Cheikh Ibra Fall bi fanweeri million la ak ñeent waaw Serigne Modou Aminta Fall jox na Serigne Saliou 600 millions waaw addiyee mhm. keroog bi mu ko joxee samedi boobu Cheikh Béthio moo togg ay tufe mm. Mm. andi ko kër sëñ Saliou booba samedi bu jot na koy togg mm-hmm. sëñ Saliou na ko nañ ko yóbbu kër sëñ Modou Aminta mu barkeeloo ko mm-hmm. loola it lu ma fekkee la mm-hmm. sëñ Modou Aminta Fall kenn la képp koo xam ne li mu xam ci Serigne Saliou. Mhm. kenn xamu ku ko masaana ñëw indil ndigal ci xel ko waaw na ko sëñ Saliou nee na nga ñëw dem xel koom. waaw sab neexal tege na. ñag kër gi. ñag ba it. xel koom neexal la taxas ga nga ko daan ñage. xel koom lañ ko daan ñage. yaru yaru kër sëñ Modou Minta. waaw sëñ Modou Minta. waaw ab yaru këram. waaw sëñ Modou Minta Fall laa gis Serigne Saliou dugg këram boot loxo yi di dox kër gi ñëpp tëdd. ku dul sëñ Modou Amine tamit toog di wax ak sëñ bi keroog ci suuf. sëgg kër gi ñëpp a tëdd. toogul waxuma toog de dañoo tëdd. teggin yooyoo tax. ba ba sëñ góoratin ne sëñ Saliou sama kër gii ma sañ damaa bëgg nga ñëwaat fi dana ko teggi sëñ Modou Amine laa xamul nu mu fay nu ma koy defee fi mu ne. sëñ góor a di ma ko wax ma ne ko leer na ma ni bu duggee kër sëñ Modou Amine te bii yoon lu lëf dana fa xew ndax dugg kër jàmbur ñëpp tëdd damaa xamul boo fa delloo nu ñuy mel ma ñëw waaw ñëwul kenn kooku waaw day koo xam ne sëriñ tubaa dafa seexal baayam seexal maamam muy Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Moussa waaye sëriñ Saaliwu Mbàkke dafa seexal sëriñ Modou Minta Fall joom taalibab sëñ Béthio la xel comme 91 mhm. la gént sëriñ Saaliwu ne ko Cheikh Modou Minta Fall dama koo seexal mu nettali ko sëñ Béthio mu ne ko ak ma ko gëm te xam ko ndax xam naa ne fa ñu ma xamalee ne sëriñ Saliou mooy sëriñ Touba moom rek laa fa gis ak sëriñ Abdoul Ahad lu yéeme la loo xam ma ne su ko nettali ci mbooloo sëriñ naar jenn ko xam na li xew kooku ñeewul kenn naar yaa sooda ci biir képp ku sant jenn te moom melokan la ci moko melal nit ñi ñi mel nonu ci Serigne saliw Serigne basirou sar jaamu Serigne Touba ci Serigne mustapha saliw neena na yéex naa xam ne Serigne saliw bokku nu wayjur ndax set takko Serigne mod ñang julit sa wayjuru juru xarit ba Serigne Abdou Lahad manewon taru woon Daaru di xel kom Serigne saliw si mu Serigne malik Bassine si damay lim rek ay quelques personnes yo xamne seenu ceex ci sëriñ saaliw hmm. lañu ñu am wayjur wu seexee ci sëriñ tubaa tax mu melul nit jant waaye kër yooyu boo fa duggee ba léegi tudd tur yooyu dañ leen di yéem ñooñu seeni baay ak seeni maam dañoo toppoon sëriñ tubaa sëriñ cerno kan xawsu daana ma wax ne eh. sama baay damaa ragal ne ma ci sëriñ saaliw laa doylee sëkk ci sàkku dara ci nit moo ma duy ba ma fees sëriñ cerno kan waaw ah, boo jógee foofu hmm. jàmburub yàlla boo xam ne rek daa dajeeg moom nii ñu bokk jamono muy bokk ci askanu ngéwél muy Cheikh Béthio Thioune ab seex bu mu sosal boppam mhm. melal ko noo xam ni mhm. fii mhm. yeew junni nag ci màggalu sëriñ Touba. tabax jumaa ju taxaw ni léng nga xam ni mi ngi nii ci jànnatu maxwaa tey doomi sëriñ Saliou moo koy jiite mbooloo moo xam ni intellectuel bu ne nga ca topp la wax lii te kenn xamul sa bàmmeelu bàyyi mu def ci moom ak ceex ne ko lii ma def ci yow na nga jàppee sa bopp ak man ni ñaari ndabi ndox nga yor wattu ndaa di tànk ci lii di sotti ci lii mënoo cee xam lu dul lu tuutee ni doq yi wadd ci diggante ñaari ndabi ndax li ma def ci yow ku dul yàlla sama borom xamul di nga gént di nga dégg ak sa nopp di nga gis ak say gët waaye loo dégg loo gént loo gis lu mu rëy rëy rëy tuuteewul lu dul ne doxte ndax liy wat yow ci eh, diggante bi <laughs> ku la gis dama jana ku la xam dama jana <laughs> ak may yoo xam ne ba defal ko dawaamu sukri mm-hmm. ñu ne foofu lay yem xëy na mu indi koo xam ni mm-hmm. ku ko man ci lasraar diggante Touba ak Mbàkke ci jamono kenn xamu ko mm. muy sëriñ Góoratin waaw mu xëy yebal fa sëriñ Moustapha mm-hmm. ne ko boo demee ci marché Mbàkke bi am na fu ku ñuy wax Góoratin boo demee ne ko maa ko booleeg Moustapha Jaw mii ne na ma ko fajal xisa bu gudd la keroog faj na sëriñ Moustapha Jaw ba mu wér te gisantewuñ ñoom ñaar gisantewul sëñ Saaliw sëñ Góoratin keroog ba mu koy woolu muy dóor a ñëw di ko wuy si mm-hmm. gannaaw bi bàyyi jaw wéree la ñuy door a bokk jataay sëñ Saaliw sëñ góor a ñeent la ko wax ndax da da koo jox xaalis bu bari ni ma sëñ Modou Aminta mi joxe xaalis mu delloo ko ko ne ko waaye nag duma la may de dama lay fayee ko mu ne ko loo may fayee ko mu ne ko fii ma toog ak yow lu ma la wax lu dul dëgg sama cër yi weddi ko te nga di ko dégg te duma ko dégg yaa ngi fii yàgg feneen yaa ngi may toog ma ne yaa ngi gis leneen te sama bët bii jàllul peru sàkket bi <laughs> fii ma toog di wax ak yow ku ne mbàkke di ma jëw du ma dégg li muy wax. waaye moom dina ko dégg. waaye yow koy mhm. loola nag mooy sama sens interdit mooy foo xam ne. Mhm. amewu ma fa bor ragal faa dellu. Mhm. waaye damaa xam lii xawma lii te maa bëgg a xam lépp. mu tibb suuf soosu mu daa joxe. daal ne kun. kun daal ne dane suuf. sëriñ tubaa damaa tàggatal suuf ba lépp lu ma wax suuf suuf def ko sëriñ góorati nag sëriñ saaliw képp ci nit bi man mii la ko nettali ak doomam ñu ngi may dégg lépp lu ma wax suuf suuf def ko mu ne ko waaw mu ne ko lii mooy kun fa yëkkoon mhm. mu ne ko jox ma ko mun ne ko dama laa bëgg a misaalal li ma lay defal kooka dem na ba bu sëriñ saaliw nee nit boole naa la ak sëñ góorati mu yónni xaadim ne ko demal jëlali ma diw buntu kër sëñ saaliw boo ñëwee mun na yow yaay diw ma mun na sama papa nee na nga yéeg ci oto bi da indi ba noppi jarul wax bi sëñ bi di wax ak yow maa ngi dégg ba fa sëñ Béthio demee dane ko sëriñ bi jëkk na la fay yebal nga lànk mm-hmm. booba maa ngi leen di dégg yéen ñaar bi yoon nag nag dalaa wax ni nang fi dikk ci ndigalam bu wóor a wóor ndax boo fi ñëwee moom mii nga fay fekk kooku du jëmmi sëriñ Saaliw Cheikh Béthio mii ne may sëriñ Saaliw ñëpp di ko dégg Mhm. Serigne Saliou Diouf. Diouf El Hadj Cheikh Serigne Saliou Diouf. Mhm. ab séréer la. Mhm. dëkk boof Mbalim. doonoon chef de mission katolik ba. doonoon ab sëriñu bu mag ci wàllu sunguf ak reen daa ñëw jaale si Abdou Cissé sëriñ Mor Mbay mu sëñ Mor Mbay Cissé sëriñ Abdou Xaadir mu wàcc liggéey sëñ Bas ne ko Abdou Cissé néewu fi waaye ma nga Tuubaa ndax ka ka fay xalifa léegi moo ko wóolu mm. waaye moo ko wutal oto mu dem kër gu mag kër kër mag moom la fekk sëñ Saaliw mm. ñu wool ko Abdou Cissé mu génn mu ne ko waa kaay nuyu ak sëriñ bi ndax man nga doon jaale si def nga lu baax mm. mu ñëw nuyu sëñ Saaliw sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko Jean Marie mu ne ko ndax man ngaa bàyyi sa tur wi jël sama tur wi mu ne ko waa mën naa ko kër soxna Xadi la def ñetti fan sëriñ Saaliw ah, mook ay taalibe eh, maanaam keroog ba ko sëriñ Saaliw di delloo boofu mbaaleem dane ko su ma fa delloo coow li dana mel ni lu kenn xamut ndax dama fa dul ko tuuti waaye bu ñu fa demee damaa bëgg nga ñaanal ma mu ne ko àndal ak Cerno Faal mi way juru sëñ Alaaji Faal ci ah, parcelle mu ne ko boo demee mhm. ku bëgg a tuub baati seere yi na ko ko wax Cerno dégg nga mu ne ko waaw mu ne ku bëgg a na jébbalu ci moom mii ñu ñëw su préfet moo leen gunge ba ca dëkk ba juróom-ñaari boof ñoo am mu taxaw ci digg dëkk bi ne leen Serigne Saliou laa tudd. kii la ma sëñ Saliou booleel. ku bëgg a ju tuub kii moo lay wax ni ñuy tuubee moom xamul ciif yi dara maanaa sëriñ Saliou da ko jox aw turam. julli loo ko tisbaar bi ñu noddee. ci ginnaaw sëriñ Saliou la jullee ku tuub ñëw sukk fi kanamam jébbalu ay soxnaam ay doomam ñoom ñëpp ku ci ne sa turu catholique fi ne xam nañu ko. lu gën a yéeme loolu. waaye ak ñoo xam ne. loolu doy na waar xam bi waaw administrateur civil. administra ah? sëñ Béthio administrateur civil. de classe exceptionnelle hiérarchie A. Mm. ay nit ah, jàngal alquran ak xam-xam ba mokkal ko topp ko. li muy fexee ku ku naru dara mu fexe ba nga nar ko. waaw fekk ku dara mu fexe ba nga nar ak yambar yi nga xam ne mooy sama classe. yi nga xam ne muy chef mu seexal bu dul woon ñoom duñ tekki dara. Mm-hmm. mu fexe ba ñu man a wax lu jub man mm-hmm. a wax lu baax mm-hmm. fexe ba ñu liggéey ba bëgg a dee mm-hmm. am ngërëm ngërëmul yàlla ndax hôpitalu xel kom bee rek laay jël seere man saa moo ko xoolee sama xel day dal noo ko liggéey ba mu àgg faj na faj nañ ma fa ba tey keroog bi ñuy joxe caabi yi Serigne Saliou daa woolu ministre boobu ñuy wax Assane juuf bu Assane xaw ma lante ne woon ministre de la santé Assane euh, sëñ bi daal ne sàllaaw bo demee day na nga len wax ne len ñom day sant na len waaye gërëm na len cyant gi nak cyant gu reuy la ndax lolé ñuma défal dama ko yitté won lool. ñi ay défaru sëriñ bi lañu. waaye kenn du sëriñ Cheikh mbacké ab ba sëriñ Touba di jox sëriñ ak sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Abdou Samad ak sëriñ Soy bu sëriñ satou jaxaté le sëriñ Saliou ne ci xélam suma amé ab taaw. dinaa ko tuddee sëriñ bii jox ko sëriñ bii loolu moo tax sëriñ saaliwu ba sëriñ Cheikh matee dal mu jébbal ko sëriñ satu Jaxate sëriñ Amsatu Jaxate mi yar sëriñ saaliw moo yar sëriñ Cheikh Mbàkke kon sëriñ Cheikh Mbàkke jaar-jaaru sëriñ saaliw la am ci njëlbeen mm. waaye ab xalifa mm. bu sàmmee la bàyyam wàcc wàcc wàcc na de mm-hmm. bu ko sàmmee rek wàcc na mm-hmm. fu sëriñ saaliw defoon ab sàkket sëriñ Cheikh tabax na ko mm-hmm. dolli na juróomi forage xel ko dolli na fay daara lim ba sëriñ saaliw yoroon ciy dongo weesu na ko yor na ñu yor bu rafet ak loo xam ne boo toogoon fii di ko détail nit ñi dañuy foog ne c'est le seul sénégalais autosuffisant sëriñ Cheikh du jënd ceeb du jënd diw du jëndi légume du jëndi tracteur mhm. di di du luyee oto mhm. lépp loo xam ne yitte woon ko jënd ko ren wala luye ko ren bu déwénee mu jënd ko mhm. lépp lu mu yitte woo ren luye ko bu déwénee mu jënd ko programme ku mu liggéeyloo te bokkoo ci njabootam mu defal kenn ci njabootam formation nga man loolu réew mi bu ñu royoon ci Serigne Cheikh Mbacke ba tey kenn waxatu te doonul daara yëpp ah, waaw waaye gis nga Cheikh Moustapha ci xam-xam bu bari bi ci leer gi ci melo wi sëriñ bi mm-hmm. cheikh Mouhamadoul Bachir dama koy romb du ma ko tudd mm-hmm. Mm-hmm. cheikh Abdoul Khadir ak nu mu nuroog sëriñ bi ak ni mu maandoog ni mu yaroo ak ni mu baaxe moom soxna Safiyetu moom soxna Safiyetu Fall ak cheikh mii nga xam ne daa mel ni jant fi ne nii ñii la fi bàyyi ñëpp mel melokaan woo xam ne du lu ñu mën a leeral kenn du xam ci ne exemple nga ci li nga nekk. Baye Galas. Mhm. xam nga sëñ Ceddo. Mhm. ñu ngi nuyu Serigne Cheikh bu baax. Mhm. képp koo xam ne Serigne Saliou mooy sa yaakaar. sagal na la. sag bu rëy rëy rëy. damaa mas a jumaay mbuur ji. di ko yéem ki ma àndal ne ma xanaa dangaa ngaa fàtt na Serigne Saliou mooy bàyyam. loolu di wax ju gàtt ju maanaaw. ñu ngi nuyu rakkam yi topp ci moom ñëpp. Mhm. sëriñ Moustapha. Mhm. sëriñ basiiru mhm. sëriñ Djili. Serigne Mourtada. ñu caatum Serigne bi. Ah. ak soxna yëpp ñiital soxna Waalo. ñu ngi bëgg ci ñoom lool. ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon àndaloon. ci wanagam. ña jiitu ak ñi fi nekk ñëpp. soxna soxna xam nga da lim. dañ ceddoo mhm. da ngaa lim ay nit ñu mu àndaloon mhm. waaye ndax xam nga ne ci mujj gi formé na ñeneen ci jëf mhm. loolu damaa bëgg ñu ko waxtaane de am na jëmm juñ naan Moustapha Yacine Guèye waaw waaw donc yëpp war nañ koo seere kooku juróom ñett fukki million ak nangam la daan génn teg ci taabal ji ñeenti weer yu ne defal na ko sëñ sëñ Saliou deux ans sëñ bi doo ko làqu loolu calculer ko. Mhm. muy jàmbaar. Mhm. joo xam ne Serigne Saliou ko sax loolu. Mm. lu jëm ci dongo yi rek Serigne bi da ko daan saytu. comme kum dem ba nangu la koo defal. Mhm. def loo war ngaa yàlla bu baax a baax. gis nga dàll yi nga xam ne moom la dongo yi daan jëfandikoo boo ko ma a jox. caabi ji ci biir poosam lay génne. jox ko laat gay ne ko demal dencal ma lii li jëm ci dogg yi da ko daan da ko daan fonk fi boo ko joxoon ay millions ñu jox ko tame ay tame yu ñuy yu ñuy layee sunguf ne ko ci daara jëm da mu may yitte tame yi ndax liggéey sëñ sëñ tubaab bi la la yemale wut ak dara tàggat ay jëm yu mel noonu ci biir këram xoolal sëñ Ablaye Tage bu bu bu soxna moomi bu soxna moomi kebe waaw dama lay wax de man damaa fekke de mm-hmm. kooku mosaan jox sëñ bi àddee sëñ bi du attan xaalis mm-hmm. sama ma sama may bu ko yëkkatee ba teg ko ci loxoom sëñ bi da koy bàyyi ci kees bi mun a bëpp sëñ bi daal fonkoon alali sëñ tubaa ji fonkeel boo xam ne day wax ne bu ci jëlee ñaar téeméer mm-hmm. dañoo war a dagg loxoom ndax atte ku sàcc la yore <laughs> ndax daan daana wax ne sëriñ tubaa dana wax ne sàcc ma dana waral gàttu fan ñàkk barke dee dem sawara daal ne may sàcc ma noonu la demee kon alal jooju ku ko daan jox mu daan ko nungul kon jàmbaar ga demoon na ba moom moom Ablaye Tege moom sëñ bi defoon ko ci boppam ba yu bëri sëñ bi dëbbatugu ko dégg waaw soxna moom mi moom mi moom doomi sëriñ bi la waaw te moom lañ ko dénk waaw moom lañ ko dénk mm. waaye nag laata ñu koy dégg tey aka am jaaruwaay. Ah, waaw. tërbiyu lu Serigne Sall tërbiyu boo xam ne soxna. jaaruwaay boobu dañ ciy ñëw rek ma tax di wax. ndax mm-hmm. ko dama ko fekkee. Mm-hmm. nii muy doxe nii nii muy doxee nii Serigne Sall woo ko sax ne ba mu fiy doog a ñëw xamut loolu de. Mm-hmm. waaye nag fekk na amoon na deret ji nag. sëñ Babacar Diop Kébé ku yor ah, deretam da nga liggéey Serigne Touba. waaw force. waaw li si Ablaye Tege te Serigne Cheikh nuyoo leen ñoom ñaar ci xel ko. xamante wuñ de. nuyoo leen ndax yéen ñaari seen passé bi daal niroo fa lañ jaaree ba doon benn. sëriñ Sall dafa garaaw. Mm. te li ci gën a doy mooy sëñ bi bu ma sànni wàññilu xaalis bi. Mm-hmm. xam bi xaalis bi ko daan wàññi dañ koy paqueté. di ko ber fii ak matul fanweeri million. Mm-hmm. dañ ko yóbbu banque. Mm-hmm. ndax fonk xaalis bi. bu ñu wàññee ñu ne ñu ñu ne lii de fukki million ak juróom la yu teg yu teg ñetti junni wala juróomi junni ñu ne mu ne juróomi junni bu ñu ko ci boole. mu matul million bu ñu ko ci boole Ablaye Tegel fekk joxe na àddina nii danaan bu réetaat leen dolli ko ci mu mat million waaye lu ñetti junni kenn du ko ber hmm. du ko fekkee hmm. loolu ay at la ko def hmm. jëmm yooyu la sëñ Saliou formé woon taf leen ci boppam ñu di ko liggéeyal xam nga Moustapha Sy liggéey bi mu liggéeyal sëñ bi xam fa la solo sëñ bi daa woote liggéeyu tëli yi. 10 milliards yim yim dajale woon ci xaalis nit ñi. dafa xëy dama ko bëgg a tëli dëkk bi. ku ciy dawal sa oto yëg na sa ñaar téeméer yow mu joxoon ci nga koy dawal. sëñ Saliou moom maanu. xëy rek woote ko daal fukki millions yëpp mooy mooy tëli. ñaar téeméeri mètre ñaar téeméeri kilomètres yoo xam nattoon na ko. ci goxi Touba yi. Mm-hmm. léegi bi muy def loolu. Mm-hmm. di woote xaalis bi. Mm-hmm. ñi di ko indi. Mhm. mënut a am lu mu dundee. ndax mhm. sëñ boo ko sëñ bi ñaar téeméer ne ko sëñ moom dootu ko laal. Mhm. dongo yi Moustapha Sarr mi ngi nga ne toog di ma déglu. booba da ngay dañuy indil daara ji fukki saako ceeb. indil jee juróom te loolu ak loolu ñett fan ñu lekk ko bu jeex. affaire yi nan xarank ñii am ñetti saako sukar ñii am juróomi saako sukar sëñ bi bu sëñ bi sëñ aatu bu ñëwee yàlla na ko yàlla dolli yërmande amiin te te taxawu njabootam gi mu fi bàyyi te taxawu sëñ Yuusu Jóob moom àggal liggéey fu bu ñëwee sëñ bi ne ko xaalis bu ma joxe de yoraguma ko Moustapha Yacine Gueye ba mu ne toq ci am ndox dana sëñ aatu lu sëñ bi wax mhm. wax ko loolu mhm. mu ne ko lu mu la jot jox mu ne ko ñaar fukki million mhm. sëñ sëñ Moustapha Yacine Gueye jël ñaar fukki millions yi delloo ko sëñ bi ñu évaluer ko dund bi ba am ci 83 mu tàmbali ko juróom-ñetti fukki millions ñett moo tax ba moo tax bam bam bam ba ci wurso gi daf dañ ne ko coppite fi indiwaat ko mu continuer ab liggéeyam. Mhm. accident boobu. Mhm. kàmb lañ jub. Mhm. mu ne mu ne mu ne Lamine Diop. taalibe sëñ sëñ Amdi Xadi. ne ko daaneel oto bi. moo gën ñu dugg ci kàmb gi. bi mu rétrogradé oto bi daanu. moom fee la taxaw. liggéeyal sëñ Tuubaa moo demee noonu. waaw moo tax taalibe sëñ Tuubaa yaa ngi kontaan bi daan noppigul ci moom. xam nga xam nga xam nga léegi. Eh, da ngaa tudd alaaj juga kebe man damaa mhm. ah, ah, damay faral di gis ci ndog yi mhm. ndog yi kawsara yi alxames ji mhm. alxames ji guddi yi nga xam ne ñun dañ fay ne ndax ci la suñu di xarit di commencé defar nay ndax dama murit bu ñu wax sëñ Moustapha Kebe dama ko fay gis Moustapha bu ñuy defar nag yi daanaka boo ko boo xoolee da ngay defe ne ci ñuy fees nag yi la bokk bu ñuy xëyee di muur ndab yi ci ñuy muur ndab yi la bokk moom daanaka tënim lay indaale xam naa nag Moustapha moom Cheikh Ibrahima ñoroon na ko loolu waaw ndax damay gis muy wër damay gis bu ñuy def ndog yi bés bu set nag falaa koy nuyoo falaa koy xamee ci Baay Faal yi mu jaxasoo togg gi ñu ne ci waañu te saxaaru su ndog yooyu su ndog yi day dindi ak rànk suñ ma doon laay moo nañu buñ ci ba ci fi saxaar suy toog mu toog fa saxaar suy dugg ci ci la ñëw na ko bàyyi moytu saxaar si ndax baaxul ci yaram mu ne ko xanaa xamoon ne saxaaru su ndog yi sëñ Bamba yi day dindi ak rànk xanaa xamoon saxaaru su ndogi sëñ bamba yi day dindi ak ñàkk xanaa xamoon saxaaru su ndogi sëñ bamba yi ah fekk coo da koy saafara moo da moo tudd man Moustapha nag dama ko nuyu foofee nag mhm. mhm. mhm. de ba bañ tàgg ba ma ne man la Moustapha Kébé ma xam ne woon jëmm ji nag ci jotaay yi rek waaye ma gis ko nag saxaar si ni muy demee moo tax bi tuddee léegi ma xam ne nag loolu lépp dama day wone ne man fi ne ku ma fekk kër Cheikh Ibra Fall ku ma fa fekk ba nuyu la ci Cheikh Ibra dugg sax ah, faa nga duggaat nag puusaat yow ñu daal di nga gëppeel waat ak gasa galas. xam naa nag Moussa moom. ah di moom moom moom Moussa. waaw dugal ci ko rek. waaw dama ne ndogu ah. kañ lañ ko togg ah. hmm, ji. nag ci diggante. Aminta Fall xam nga dugg ci digganteem ak Serigne Saliou. Hmm. parce que sànq dafa dog faaw ngeen foofu faaw ngeen dugg ci. mënut a ñàkk waaw waaw euh, euh, borom tapis vert. Hmm. Amadou Gueye fifty. mu Serigne Saliou moom moom nee naa ko yow sa tur faaw ñu ciy toftal Serigne Saliou ndax Serigne Saliou nga rear Mhm. waaw daal leen def reer ñoom pour ñoom ñii. macha allah waaw mhm. mhm. ah, waaw waaw. fifty def na def na def na lu mu tàmm def léegi bijou Fall dinaa ah, damay wax ci kii sama ah, xarit bi Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ne moom moom moom seetlu gannaaw ba bi mu ko defalee Serigne Mamour. dina daf koy defaral ki nga xamante ne ni moom mooy sëñ galas waaw noonu la koy defaree ndax bis borom seetlu cent pour cent naturel ci la société bi am at tey ci ñaar fukki fan yi ci la société bi am mu bëgg ngeen ñaanal ko ci nag bu baax a baax a baax bu déwénee bu nuy ñëw mu ñëw ci yeneen anam incha allah. Ah, moom it moom it moom it Amadou nañ ko ñaanal. waaw 50 parce que gis nga li nga gis ci koor gi. Mm-hmm. day séddale ay berde. Mm-hmm. gratuitement. waaw 50 li muy def ci social. Mm-hmm. daanaka moom boo ko bëggee nax sax 50 moom nax ko ci Serigne Saliou rek. dëgg la am ko dëgg man nag damaa gis euh, ci ci téléphone yi. mbiram. waaw ma ne kii ndax berde yi. nampiwu Serigne Saliou ki ma toogal. ne ma kenn mësul gis lu mel nii te day jooy nii nii leer na ne mi jooy. yàlla xam na ni sëñ tubaa rek ma tax di wax. Serigne Saliou rek Serigne Saliou rek ko ñor. bi biñ ma ko waxee dama ne bernde moom li Serigne Touba ne woon Serigne Saliou dina ma ko defal ndax aljanna am na ci bunt buñ tijjeegul. te bernde fa lay jaare te man man naa ci ndax liggéey bi ma doon liggéey mënu ma ko. Mhm. sëñ bi romb ko di daw. Mhm. mu ne moom mais dana ma ko defal. <laughs> moo tax képp ku ñuy tudd di la tudd. Mhm. faaw loolu di dina doon sa biir. waaw kon moom moom loolu dafay mbiram naturellement moom euh, euh, joxe day mbiram. fifty day joxe ba di la saraxu sax pour jox la. waaw nee naa ko yow da ngay jéng rek doo laal suuf. barke Cheikhul Khadim Sëriñ Saliou rek tey tey thème bii ngay waxtaanee. dafa dafa dafa am solo. ci Sénégal. dafa am solo ci ndawu Sénégal. parce que ñaar ñi ñuy waxtaanee dafa am fu ñu coïncider wu. dafa am ñoom ñaar fu ñu daje. sëñ maam sëñ moom Mamour mi ngi wax léegi ni maam Cheikh Ibra bi muy jug di wuti yàlla. bi muy jug di wuti Serigne Touba boobu 27 ans la am. 27 ans ndaw jug ci. di dem wuti yàlla. ni xool suñu jamonoy tey xale yi am 27 ans sama classe gi. est-ce que ñu ngi wuti yàlla. Serigne Saliou bi mu ñëwee. Mhm. lan ñan la woo ndaw ñi la woo. Mhm. mu mel ni ñoom ñaar dafa am. fu seeni mbir dajoo dajé mm-hmm. dajé mm-hmm. muy lo xamante ne lu am solo la te waxtan wi mm-hmm. yegg na ci niveau bo xamante seigne sëñ pour ñu dog la sax. du du du ay teg way du bàyyi la rek nga wëyale. waaw xam nga yalla dafa dogal. xam nga Cheikh Ibra kenn da xamul lu mu doon ndax gis nga fi ko ya, ni fim mu newoon. teewul sëñ gis nga euh, réew mi. dañu wara di waxtaane mam Cheikh Ibrahima Fall ci plateau yu melni parce que seigne tiado dafa xat sax. waaye gis nga Cheikh Ibra Fall te mhm. démb mhm. wallaay lazim ne mhm. mboolem kum séqaloon l'islam ji joxoon nga ko waruma te am na loo séqoon ak moom maa nettali ci benn bi mu nekkee ndar Baye Ibrahima Thiam 1880 la feeñ jamono 1890 bi mu amee fukki at la ko bàyyam jébbal maam Cheikh Ibrahima Fall nee na bi Cheikh Ibra wàccee la ma sa tàqali koog moom Baye Ibrahima Thiam Mm. te nee bi ñu nekkee ndar ñoom ñu doon ay tuut tànk mm-hmm. nee bi ñu a magal dugal leen néegub góor mm-hmm. daf na leen dem leen ci maam Alaaji leen mu léemu leen bala dugg néegub góor Baye Ibrahima Thiam nee na seerafa la nu boole ñun maag diw na boole ñu kenn ci jëwriñ yi mu yóbbu ñu loo dax mm-hmm. kër maam Alaaji Maalik maam Alaaji Maalik toof li kenn ku ne mu jox la ñett dërëmi nguru ñu ñëw Seex Faal door leen a magal ba ñu ne ko kon kon nekk te maam Alaaji Maalik ak Seex jaxasoo woon nag mu ne léegi takkusaan sax daanaka ñëw kër Cheikh Ibra Fall waxtu julli jot maam maam Cheikh ne Ibrahima Sogg noddal mu nodd mun a wa mun a fere yi jóg leen taxaw mu amam alaaji mari jiite leen julli ngeen barkeli ci julli ba Ibrahima Thiam ko dund moo ko fekkee loolu gars dañ ko waxtaane te dañoo war di ko waxtaane ndax démb rafetoon na lool te démb rafetoon na lool tey nag coow li daa bëri moom tey Cheikh Ibra mas nañ koo indil koo xam ne dafa wéradi mu ne ko xol di ko bam yag ku jigen la mhm. mu ne kenn ci fere yi jogal mu jog mu ne ko ngabal ci loxo mu ngab mu ne ko demal ci limaamu ne ko Ibra Fall ne nga ñaanal ko sayyidina mhm. Limaamu lay mhm. mu indi ko ci sayyidina Limaamu mu ne ko ne ko Ibra Fall ne nga ñaanal ko lolou dañ ko war diko waxtani waxtaani waaw loolu buñ ko ci mooyoon ma wax ne ci lu bare bare bare ci xon ak ñom te démb kon dafa dafa doon lo xamne mat nay waxtaani mais xuus ci tuti rek xuus ci tuti rek parce que parce que dañu dañu taxaso won tey alaaj Ahmed Ndiaye ma xoolal bi mu ñëwee ndar moom Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba yabal ko ngir mu ñëw dëkk si ndar mm. ngir soppi aw liggéey bi mu ko wàccee mm-hmm. daf ko yabal ndar nag pour mu soppi aw liggéey mm-hmm. Cheikh bi dugg ci wàllu commerce gis nga bi muy ñëw mm-hmm. maam Ndiakha Cissé la fa fekk sëñ Mor Massamba Jéeri Jeng maam As Camara alaaji Ahmed Ndiaye Mabey sëñ mu sax mbay alaaji Amin Mbay Njaay maa lañ joxoon assur bi de xanaa waaw mu mu xaddam bu baax la mm-hmm. Mm-hmm. bi sëñ bi sëñ tubaa ñëwee ndar mm-hmm. moom magi ndar yi dajaloo nañ ñëw ci sëñ tubaa waxtaan ak moom ngir ñaanal ko intervention ci tubaab bi waaye sëñ bi moo leen ne matu ko danaa dem te danaa des jël assur jox na ko yaamee seede nañ ne sarne dese boobu la ko bind ñu wax loolu de ku baax waaye alaaji Amin Njaay maa bi moom dafa jaxasoo woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall moom alaaj sëñ mu saxir mbay ma ak maam El Hadj Malick Sy nga xam ne jaxa maanaam niñ meloon ak Cheikh Ibra Fall dafa jéggi dayoo. dañoo jaxasoo woon lool. ak Seydina Seydina Limamou bi Cheikh Ibra Fall ñëppam ñëpp ay ay ay nitam lañ woon ay wëllëram lañ woon. jë naan na ñoom lu ne. ba ci maam bu Kunta waa kër Ndiassane yi tey xam nga ne sëñ Cheikh Ami Kunta. sëñ Mourou Moustapha Fall la ko beñi te ñooy ay maamam. waaw ak yeneen ak yeneen ak yoon ñu wax seen diggante yoo xam ni Cheikh Ibrahima daan na ko def gis nga bi mu ñëwee ndar maam as camara mm-hmm. mu xaddam bu mag la woon moom la Cheikh Rafal dalal ci génn këram mm-hmm. dëkk ba ba ni mu amee kër mm-hmm. tey Cheikh Abdoulaye Camara ngi may dégg fii ci Géejawaay maam as camara la maam Cheikh Ibrahima Fall dalal sindoo di sëñ Mamoun yonent bi la ne inna allaha tayibun laa yaqbalu dafa tey te bëggu dudul tey maam Cheikh Rafal catu tànkam ba ci kaw bopp lépp ngërëmal sëñ Tuubaa la lépp Cheikh Ibra maam sëñ Tuubaa ni mu gërëmee Cheikh Rafal mosuñ ko gërëmee nit déedéet mhm. àggoon na ci bu sëñ bi wax ak moom cër yëpp ay dégg mhm. Mhm. ñiy ni ñiy wax ni du li muy wax xamuñ li ñuy wax day di ko baamu mu ciy tax mu ciy tax waaye <laughs> dégg na ko de moo tax ahlu fuqaha yi dañuy dañuy wax ñenn ñi sax nee nañ demee waa am ñu ne jege ñu gilim gileem dafa neex ba boo koy lekk neexit woo mën naa yóbbu toj sa jàpp. am na ñu ne du ko toj. ñeent bu dee ci benn wax bi nga jël. seera seera maam Cheikh Ibrahima Fall nee na Serigne Touba nee na ci nopp góor mën naa toj jàpp. waaw loolu la wax. moo dàq bànneex yi toj jàpp. waaw moo tax bu ko ibni woosi waaw waaw bu ko ibni woosi. day jàpp ba yàgg. <laughs> waaw. ibnu nga ne lan mu ne ko sëñ Tuubaa ne nga wuyu si ko <laughs> mun a jox leen ma setale nga ma jàpp. waaw. jàppaat ba sell. waaw xool boobu cofeel. foofu mu tagg woon ci yàlla. ku fa àggut ci yàlla na nga noppi. Seera Fall fam tag bi gone jotiwu fa. waaw sëñ Fall sëñ Fall sëñ sëñ Fall xoolal. sëñ Ibnu Amar nee na sëñ Tuubaa ci boppam. xoolal seetal gaa nga ne Baye Modou Fall ña nga àttatoo ba ko yor. indil ma image bi bu baax a baax ma wax la ma wax la ñii ci foto bi ñooy ñan. Mhm. indil ma image bi ma wax la xoolal. kii mooy sëñ Mbayloo. Mhm. kii mooy sëñ Moduloo mooy taawu sëñ Mam Mbayloo. wagee sumeel. moo féete Seera Fall wetu wetu càmmoñ. càmmoñ mooy sëñ Moduloo kii nii baayam. mu xaddam bu mag la woon ca gànjul 1890 la jébbalu ci maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. bi mu amee ñaari at Cheikh mhm. Fall gàddaay loo ko mhm. bi mu ñëwee Thiès maam Ahmadou Baro njegéñ njëkk a daggal Cheikh Fall kër foofee wax loolu sëñ Mbayloo ci Thiès a xam nañ Cheikh Ibrahima Fall bu baax a baax a baax kee di feeñ ca bopp ba nga xam ne moo ne ca biir bopp bay feeñ moo njëkk a jox Cheikh Rafal daamar sëñ Modou Mbodj la tudd Cheikh Rafal daana wax ne yoonu su doon nub kaamil la bu la jee këram lañ koy lijjantee ji mhm. daana wax ne hé hé Modou Mbodj bu ñëwee sama kër ba dem danaa bég njaboot gi bég te dana fa bàyyi dépasse weer moo nekk ne boobu bay feeñ kee mel na waaw ok kañ ngay zoom tey zoom tey la am place zoomé kee ñu naan daa nuru sëñ baara sëñ baara mhm. am na ku ñu naan daa nuru sëñ sax nit laaj ma ma ndax photo Serap Fall bi sëñ baara Mbàkke da cee di du mhm. moom mhm. kee Moussa Fall Mbar la boobu te xaw boo xoolee photo bi am na ku ci nuru Cheikh ki def kaala gi waaw ki def jërëjëf la tudd Moussa Fall Mbar mii moo ku ñu wax ndonga Fall Mbaar ak Soxna Fall Mbaar. ñoom ñëpp Mbaar Diour Siga ca njukkee lañu. sëñ sëñ Mamoun. waaw sëñ Mamoun waaw. muriidoon mooy lan ñi ak ñi namu yàlla. waaw. waa ki doon seet buntu nag. ku bëgg àgg ci yàlla ci moom ngay jaar. takat ba ko ba ko njëkk a dégg ci njëriñ. ñaar ñii Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina. ay yow ñaar ñii. Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina mm. mu samp mbooloo kenn nit nu daf ne kaay wax bu dugg yéene kenn Cheikh Ibra Fall ne Sëñ Touba nee na Ibrahima Fall loolu rek kay gor nag yaa ngi dégg moom mu gis lu toll ni sëñ Touba. waaw sëñ bi da ko woowee ñeent. Mhm. ayyuhal muridu saadiqu. Mhm. al muhibbu. Mhm. an naasihu. yow sama murid bi nga xam da ngaa dëggal. tey laa leen di leeral siddiqu. ak ak siddiqiya. bokkuñu de. siddiqiya boo ko doonee mën ngaa bàyyi. boo ci booliwut saadiq. moo tax Aboubacarine Siddiqu soo sidqi mhm. Aboubacar dafa nekk Siddiq ab dëgg laa kon waaye Sadiq la. danaa mhm. mhm. ko moom suñu borom nee na Sadiq rek laa bëgg a fay. pour Sadiq bëgguma laa fay. dëgg man ngaa am man ngaa gagné man ngaa perte. minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantasir waaye ma baddaloo tabdila li yajziya allahu sadiqina bi sidqihim sunu borom nee na am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne dëggal nañ seen wóllëre sama digg ak moom wóllëre yàlla ku mën a dëggal. Hmm. na sa bàyyi ne écrasé yu jógee fi tax duñ yàqule parce que dëggal lañ ba noppi. Hmm. waaye nee na am na ñoom ñi xaar maam Cheikh Fall ñi xaar ci la bokk. Hmm. tey loolu. nee na du sensé lam seqoon ak Sëriñ Tuubaa mooy moo ma badaloo tabdila. yàlla nee kooku dafa koy fay. waaw Sëriñ Tuubaa woo ko ci daal na ko yaa ma sopp mm-hmm. Mm-hmm. te sopp muy diine mm-hmm. diine hubbullaahi ma ubbil ladina ida xama sama diine mooy sopp yàlla ak sopp yonente bi alayhi salaatu salaam an naasixu yaay laa biire nit loolu ñeenti na ko sëñ daam Abdourahmane Lo mi ko dégg nag te dégg serafal moo taxoon mun a dem leen te sëñ daam Abdourahmane Lo ne nekkoon dama wutal suusal Tapi tukki tukki bu yàgg te dara hmm. ci yàgg. Hmm. sëñ daam Abdourahman Lo tàmbalee jàng kaamil yi moom xam nga ku ñuy wax suuf sax ngay jàng kaamil. Hmm. gaa gone yi nañ noppi. jàng benn téere bëgg a weddi mag ñii. noppi. waa xoolal seen affaire suusal la wax suusal. sëñ daam Abdourahman tàmbalee waaw. bi mu demee ba ci téeméeri ba fa lañ ko fekk ne ko Seera fall dem na mu ne kamil yi ma doon jàngaloo muy suusal bi téeméeri bi mo toll ci juróom-ñaari rahman moo ci des juróom-ñaari isib bàyyil ma àggale ko ñu dem ma àggale ko tafli ko ci suuf suuf suuf lañ gegne gën fall Seera wax loolu de gone lañ ñoppi way illa la faal ok la ilaha illa la tey may daanu leer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 ñim yar defal leen mën nañoo defal adduna. kan sañ sëñ Dame Abdourahmane Lo sëñ Dame Abdourahmane Lo dañoo daje ca Mbàkke Kajoor sañ bi di laaj tukki bi moom mu beru na de. moom galango. ñii na ko bul dem. te convocation bi. ñii na ko bul dem ñii na ko ah tubaab bi dafa doy war. Hmm. ñii na ko boo boo wootee geer ñu ànd ko yow. Hmm. te sëñ tubaab woote woon violence non violence la woote. Hmm. bi ci xanii naa leen jinaan mas ngeen a dégg sëriñ mel noonu. ku ne man dafa fee sax. ba aljanna doylu naa wala fi xeex tukki buy teere ji aljanna ma siñ ci war a ba si dégg maa la wax lii bii xali naa leen jinan an xaswatin du ma xeex wa an hawaan jëf ju doy doo gis sama kër bii la naa xari naa lil jinaan عن غزوة وعن خوان به لنا تب زمان ما خبو للخدم لما لغي ñu nangu ko sëñ mas ki dégg lu ma liggéey ñu nangu déedéet daan toog fee beru sëñ bi jékki-jékki na ko sëñ daam mu ne ko Mbàkke mu ne ko da yow kan bokkoo ci waxtaan wi mu ne ko Mbàkke tey ngaa def li la yàlla digal nga digal ñu dem defe ko moo gën lii gaa yi wax de. Mm-hmm. na moo kenn waxati benn am baat. daal di takk ndigam na ko yonent bi defee woon. sëriñ Touba ne ca suufu Daaru Salaam ne ca suufu Touba takk leen ci ndigam ngir tërbiyee leen. Mm-hmm. gaa yi foofu ngir suuf dañu ko tërbiyee Touba. <laughs> waaw Touba sëñ bi ko tërbiyee. waaw waaw juróom-ñetti at yi am ci géej yëpp suuf saa ci digg lii. ñu bëri xamuñu ko di. Mm-hmm. xam nga ko waral nee na daa bu tab jaa suuf defal li mu bëgg ci am muritam bu yóbbu nit Touba rek fekk baraw mu ngi koy bernde mhm. ba gisul na murit bi dem na suuf ci def li mo wara def lolou borom la lolou borom la de sëñ ndaam ne ko demal nga def li la yalla wax te digal ñu dem def ko mu ne ko kon demal yow ci ndam nga tok fa tay jangal alcorane fere yi mhm. oh. seigne ndam jóg moom bu ay kagam te nga nga fa tok nak bama fekk la seigne bi dem ci geej gi ba ñibbisi mhm. di wër di wër di wër di wër di wër di wër ba ak si man naan fi mu toog daal di waxtaan bu yàgg mu ne ah sëñ daam Abdourahmane loolu xanaa daf maa namul làkkum mina diini lañ àppoon dundam gi fi ñun waaw Cheikh Bamba fab ko jébbal Abdourahmane a Sëriñ Touba 90 ans la waroon dund dagg ko def 75 ans jox ko sëñ daam Abdourahmane la Cheikh wax ne sëñ Moussa Ka wax Cheikh Ibrahima wax ne hmm. Cheikh Ibra Fall nee na man ab doomu day abadan maay làmp mooy mees bambay takk asmaana. <laughs> moo leen di ñëw bu xàccoon Abdou taxaw. <laughs> <laughs> taxaw. du ñu am jërëjëf kon Abdourahmane. jërëjëf. Fallou Gueye dañ nuyu naa la yaa ngi mm-hmm. Mm-hmm. bi nag xanaa damaa namut am ko xam nga sëñ nam da nga maa da nga maa namut sëñ Tuubaa Mm-hmm. faaw ñu yëg teel la ko yëgal. Mm-hmm. fekk muy bindal sëñ Basiiru sëñ Basiiru mi nga xam ne moom la fi sëriñ Muntaxa toogee. tey sëñ Tubaa. Mm-hmm. waaw xaritub sëriñ Fàllu ba. ndeysaan. sëñ Moustapha Fall Mbar Njaay ca Mbàkke. sëñ sëñ sëñ ba ñuy denc soxna Amina Gueye mu sëñ mu Alaaji Baar. waaw yàlla ko yàlla dolli yërmande. yaay sëñ Gas Amina. Mhm. ak ak ak sëñ Cheikh Oumy. Mhm. ak Muslim Mbacké. Mhm. ñu ñu toog sama buntu la toog ma nuyu ko mu ne ma kooku la ma ne ko Galas Jatara boobu la ma njëkk a gis mu ne ma ana Basiiru nag ma ne ko ah kii topp sama ginnaaw de Basiiru la tudd mu ne ma ah daanaa am de foo gisee sëñ Fallou gis <laughs> si. moom daa xam li xew dégg nga loolu. sëñ Fallou mu xam naa ne dinañ ci laal bu baax. waaw ah, waaw. guddi gi guddi si ginnaaw suba yi moom sëñ Fallou la. ma ne. Mm-hmm. boutique boutique sëñ Tuubaa. Mm-hmm. sëñ ndaam ba muy bind la xadraat mm-hmm. la xadraat dee yooyu ci lay xuus yooyu sëñ Musaa Ka wax. sëñ bu siiw boobu la xadraat dee lay xuus bi sëñ Tuubaa di ñëw mooy ngërëm li wàcc ngërëm li xam nga sëñ Tuubaa dana lu dul ngërëmul yàlla mucc naa ci. waaw xal lay taxu. an si wa ridwaani xablu kama xal lay taxu bi ma yàlla rekk ni ma ci lu dul ngërëmam sëñ Tuubaa ne lu dul yàlla wóoru ma lépp luy alkande sori na ma. Tenda daam Abdourahmane Lo mu ne tawit ci loxop señ basirou nako nañ muy gis sa baye bu baax mhm. gis nga anil momini na waagi bang gi ba nga koy aj mhm. ko mhm. te bobu da koy da koy bindal mu ñew señ bi nako xana señ sëñ nak ma namul mu ne ah, la nga ne mo won togal nit ma señ bi nako kon dellu ndaam danaa la fek bu timis ne fa la julé ci timis mu del tambalé defar kër gi di def ay tapi yi defaraat jàkk ji waat señ bi ak ci ci waxtu timis fek ñu mu nako ana jakk ji mu nako ana julli sëñ bi yónnee gaal ñu indi mën a dugg yi ba genn gaal ñëw sëñ bi ubbi ko daal di génn kurus. Hmm. ne ko bi ma nekkee ci géej gi turu yàlla moo fi tudd kurus gi laa ko tuddee bisimilah. sëñ daam def ci poosam. Hmm. na pat. Hmm. bi génne peere. ne ko lu aw ñam. mas naa koo jëfandikoo. ci peere bi laa ko doon jëfandikoo bisimilah sëñ jël bokk. mu génne dara ju rafet. ne ko bama nekké lambarana lillahi khad wasaltu inda galwa sëñ bi tuddu ay lambarana du tudd lambarana galwa lay wax rek wala baafali lillahi khad wasaltu inda galwa wasaani ni amaa balwa mm-hmm. ne nak ci galwa la ag yalla ci yalla ci sirek mu ne ko mu ko ba julli tuba bi dima ma tay ngay delu senegal mm-hmm. mi la sol may sama di yag yoy ñu way ñu tok di ma Bamane as, Bamane ak ba mu ne nii gees loolu mu doon ñu ne ma dara du dara kay mu gis xam nga tubaab yi duñ ma ñëw si daal du wax ñu du dara kay waaw dafa ne ak ba ci kaw tund yu di ma gis ñu am lu may duñ may tere mhm. nit ñi mhm. gitu di gis nit ma koy tere ma di ko wax ñu ànd yéeg tund yu ba surxal gisatuñu ñu àndaat yéeg lañ ma doon tere ma di ko wax ñoom ñu noppi loolu la cheikh tubaab la ilaha illallah déggal lii rek mu ne ko jëlal mu ne ko mi loolu moom sëñ mu sëñ mu laay bu sëñu ko nettali moom mhm. nee nee na waxtu tàkkusaan la mhm. nee na waxtu tàkkusaan li li naan jàmpu sóor sax la def mhm. tosbaar laa dem ba def ñaari ràkk mook ti mook la dañoo duggante mu mu wàññi leen salaatul xasri julli tàkkusaan eh, tosbaar ñaari ràkk julli tàkkusaan ci biir ndox mi nag ñaari ràkk mu ne ko julli mbeex bi nag déggoon nga ko mu ne ko waaw waaw naa ko de mu ne ko ba ma tubaab di koji sen bato bi ngir bañ julli ci der bi la julli ci la sañu bismillah mu ne ko lii ma la jox sëri ci bi xam nga lu waral ma jox lako ko mm. sëñ daam ne ko déedéet ko sa wax ci ci mbàkki ka jox ndax bu doon toon yow duma dem te bu demutoon dara du ko jar der ba ngi ndam motax nak xam nga ne <laughs> mak mu toll der ba nga ndam ma nga ndam kay mak mu toll ni mam Cheikh ibrahim Fall mm. am na naan defal ma sousal sousal mom liñ ci xam moy wuti cere mm-hmm. tay ko def ci sukar Bakar Feer waaye nekk suusal kaay la bokk <laughs> téeméer la te bis bi muy àgg des juróom-ñaari isib ci la maam Cheikh Rafal dem ci suusal la waaw sëñ Fall mas ngaa dégg ci àdduna ko naan bëggatumaa yokk wàññi ko laa bëgg mas <laughs> nga ko dégg Cheikh Ibra ko fa gébb mhm. Baye Mor Ndiaye dànk nee na mhm. Cheikh Ibra ñëw ci daara ji mhm. yónnee toogukaay ga ca mbedd ma jëwriñ yi ne ah, doom daara ku ci dugg yokk mu defal bëggatul yokk wàññi ko bëgg ku bëgg a plafonné waa ji ngay waxal wax leen ak man doom la waxoon maay suuf wax leen ak man Cheikh Ibra Fall lu waay bu xëpp sama kaw lu waay gës ba mu def ci sama biir waaye doom lu yàgg ci man ma def ko muy suuf mas nga nekk ku sopp suuf muy leneen ñu ne déedéet mun a wax leen ak man doom daane waaw ma laaj leen posé naa question mhm. baykat suy ñaan ku muy ñaan yàlla mhm. maam Cheikh na fu muy dékki loxoom asamaan boobu ana yaakaaram mhm. ci suuf oh. nee na waaw lu tax baykat jël yaakaaram def ci suuf ba pare dëkkee loxoom asamaan waaye maam Cheikh ne yàlla ko ëpp ful la ndax boo ko yàllay jox ndox daf koy tooyal waaye suuf la ko yónnee su ko defee suuf ëmb ndox mi génne ko ñeneen na wax leen nag man doom maa la wax loolu danañ wax ak moom tey wagee wagee tey borom bis bi defar na indi na xëdd sax borom bis bi indi na xëdd xëdd yaa ngi fi borom bis bi indi na xëdd tey loolu yàlla ndogal ndoko wagee jëlal sa temps Moustapha Mbacké moom moom alxalifatul am al awal xalifa bu njëkk bi jumaa ji hmm. doxutoon ak moom hmm. ndigal la nax saay premier xalifa si saxaar gi doxutoon ak moom du ngeen am ab raay waaw loolu dëgg la moom bi ko maam Cheikh Fall dëgg ay loxo hmm. wax ne maa wax loolu de bi demee moom njaareem la toog dalal gaañ fii sëñ Modou mat Sëñ Tuubaa sëkk mat ko sëkk wax sëñ Basiiru ne ko demal la yóbbu sa baay bu baax bi te ne ko alaaji Mamadou Fadil yëg de yóbbu fan Touba bi sëñ bi demee waaw moo jëli Seera Faal itam sëñ Basiiru waaw moo jëli ñëpp moo ne leen sëñ mu ne ko mu ne mu ne ko sëñ bi daa am lu mu santaane woon mm-hmm. dana ne ko sëñ Mbàkke bu sa taxawu mm-hmm. ne ko sëriñ Fàllu Mbàkke ñaanal sëñ Mbàkke mm-hmm. sëñ Fàllu Mbàkke rëy da nga ko jëlee ji ndindi Mm-hmm. jëli jëli maam Thierno Birahim mu ñëw. Mm-hmm. sëñ Mamadou Lamine Dagana mooy nettali de. Mm-hmm. sëñ Abdou Lahad moom ci saayir tout tànk la. moom sëñ Abdoulaye Jaxate ñoo bokk benn néeg fanaan. sëñ Abdoulaye Jaxate toog ba mu yàgg sëñ Fall sëñ Abdoulaye da ko fëkk fëkk da ko sëñ sëñ Abdoulaye mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ Tuubaa ngi ñëw ñëw ñëw Tuubaa. xaaral ma ñëw fekk ci denc ba. mu ne ko waaye sëñ mu ne mi ngi ñëw de. sëñ Abdoulaye toog ba mu yàgg mu ne ko agsi na sax. bañ xëyee lañ gis barab bi. dëggal loolu. sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na bi bi nekkee ci yëf yi. Mhm. ba def ba defar ba noppi. ba ñuy ba ñuy dem ci toll ci war a jege ne lañ dégg ak noddu ca Gede. ndax sëñ bi dana woon. Mhm. samay tànk na jublu Gede sama bopp na jublu kër ñang cey boo demee kër sëñ sëñ sëñ Modou Faye Jama ñang ba gis soror bi ñi nga xam sëñ tubaab mbiram kenn tawul lu mu mhm. ñu dem ba jigéenal des si mhm. ñu nodd ci gédé suñ bàkk bu sën nañ ko bàyyi te julli ci ñëw àggale nañ defoon rasulullah yi guddi àllar àllarba la woon di mhm. àllarba la woon fële àllarba la woon fii ci boppam sëñ Mouhamadou Lamine Diop dagal nee na bañ génnee mhm. sëñ Mourou Moustapha ngi biir Touba biir njaari moom dalal murid de leen xamal ne maa ngi nii ñëw leen sëñ ba ak taar beeg bég mi dam taxawuñ sëñ bi ndax dal googu moo ko yor. Hmm. ndax ndax demuk sëñ bi moo ci feeñ. Hmm. ñu xam ne mbégte rek a nar a xew. Hmm. ci kaw suuf. sëñ Mouhamadou Lamine Diop nag dama génn nee na gis ku jugee Touba di doxantu xam naa daa julli fajar pare doxantu. nee na mu ne ma ah xanaa kii du sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana. ma ne ko waaw waaw mu ne ma yow de biig gént naa nga naan wa ma muhammadun illa rasul xam nga loolu mooy lan mhm. muhammad jóge na fi sëñ Mouhamadou Lamine Diop dagan nee na ma ne ko tàbbil ci baraag bi boo tàbbee gis ne loolu xew na de nee na daf na kii rek gis jal bi laa ilaha illallah nga xam ne loolu ma nga xew te àllarba ja waxtaane maam Cheikh Ibra Fall la te duggoo ci sëñ Fallou mun ta ne sëñ Fallou pili Cheikh Ibra kay égal yoonu murid waaw mun ta ah? ne sëñ Fallou pili Cheikh Ibra égal yoonu murid xam nga tax mun ta ne li gën a kawe ci yoonu murid muy soroon bi waaw ma hmm? Saliha Saliha communication. man ñoo ñoo ñoo nga ne waxtaan ci. ma ne sëñ Fallou pili Seex Ibra égal égal yoonu Mouride. égal yoonu Mouride dafa daanu. ne ma joxal ma ko téléphone bi fii ci bu ma dee Saliha communication moo koy nuyu Babaram Kàtte xam naa nag dina leen fa woo moom. waaw waaw faaw yow li ngay waxtaanee ci Serigne Touba. Saliha communication ñoo la ko fi nga toog ci sa ruq bi sa point bi. non da nga fa war a génn. dafa jot. dafa bi bi xaaral lu jot rek yàlla dogal ko. Saliha communication. ñoo ko jox lii faa benn defal na la coffret tamit box parfum maa la wax lii pour moom. mi ngi nii. waaw balaa ngay dugg Sëñ Fallou dafa ah. faa ma dugg. addiya Cheikh Ibrahima sa sa ah, coffret ah, parfum ak sa téléphone yow it. te ñoom ay éléments Serigne Saliou lan. sa téléphone sëñ Galas. laal ko ñoo ko jaajëf. sëñ Galas. waaw jërëjëf ñii ay taalibe Serigne Saliou lan. noo ko Cheikh Ibrahima Foum. Saliha communication. na yaatu lool. bëgg nga ñaanal leen. ñu ngi nekk en face Masalikul Jinaan. sama xarit nga ndaw saa nee ne aram fa ko borom du ko maa. waaw kay yàggal loolu. Serigne Saliou yi tax ñu di ko joxe gis na ko mhm. mais mais mais mën nga kii waale gars yi de nga xam ne dañuy dugg foofu rek. waaw waaw coffre yi Baye Fall bi. ma coffre sa waaye sëñ Galas ñoo la jox loolu. ah. ak sëñ Galas ak sëñ sëñ Mamadou. ak ah, sëñ Galas ah, waaw. bisimilah waaw ba tey. waaw waaw. yii nag moom fi mu ne nii moom yii moom xam naa ne moom. yii moom. daal di xam nga waa waa kii yii waa kii la. waaw macha allah. kër ay jullikaay la. yi moom pour soxna yi la. soxna ñoom ñaar. Hmm. ndeysaan. waaw ñi dencul mën nañoo tax. waaw macha allah kàr bii moom HBK moo ko moom. mën nañu bi bi Abdoulaye Bichri. te albamba jox na leen ku nekk kaamil personnalisé yu mel nii xam naa bu excès rek. day daal di ñëw directement. kon tegaamaay bi. borom tapis vert am na 250 jox na leen 1 million. waaw kay pour ñoom ñeent ñi ah. pour ma ne ma ne ku yor ñaari soxna nag. ah yow ñaar nga. ah jox ko ñaar. kan laa war a faral nga jox ah, ñaar ah, ah, ku yor ñaar euh, toogal fee. ku yor ñaar daal du mën moom. ku yor ñaar bàyyi ñoom ñaar ñoom ñaar ñi. waaw sëñ Gallas nag kii moom sama xarit bee ko moom. Euh, euh, bii moom. bii moom bii moom Xadisa laa bëgg. bu neexee yàlla waaw bii moom Xadisa laa ko jox. ndax xam nga bu sa bos ñëwee. day da ngeen daal di nduróole. yow bu mel nii nga am moom la la albamba jox. yor ñaar daal da nga jox kii benn bi. jox gërëm bu baax albamba. yow nag euh, Modou Mbaye. ah ah, ah, ah kii Modou Mbaye kii pour âge bu ci dara bu ci dara jóg. waaw yow santoo tuddoo âge békaay. kii pour âge békaay sama bos kenn lañu sama kaan albam ñu ñuy dégg te xam naa ne defaral na sëñ galas jafara defaral na sëñ maam daaw daaw waaw waaw ah, basu basu basu tedd moom xam naa ne mooy njëkk a pare lamp dama ko jox ma jox ko soxna si lamp papi waaw waaw waaw waaw lamp euh, euh, amul soxna may ko zum bi may ko zum bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf Albamba Touré ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax dama ni kontaan nañ ci Asalea communication ah Asaliha communication kenn du ñoom Asaliha communication dafa am ak ñoom benn marché. man mii ah, sax am naa ñoom marché loolu. sama marché ci laa lay dimbalee ci marché boobu marché ñoom réussir na li nga ma doon dimbali bàyyi ko. Asaliha dana la jox jox ma. Asaliha ah. man maa ngi nii. jox nañ a jërëjëf jërëjëf ah, xool loolu. sëñ Tuba nee na ah ah ah man jërëjëf. jërëjëf loolu yëpp addi Sëriñ Tuubaa man sànni naa sama téléphone. dama toog dama toog dama toog Modou Mbaye bu bu bu dajee fi géwél dama toog. <coughs> léegi euh, bisu. waaw bii Modou foog naa bii sa bos la. waaw ah, boo paree rek da ngay jël da jël sa sachet waaye tamit euh, xam nga waxtaan bi dafa neex hmm. waaw waxtaan bi li muy neex lépp lépp lépp wax dëgg yàlla seetlu seetloo ngi nii de waaw seetlu moo fi génn Bamba ah, ah wax dëgg yàlla xam nga man sax damay égéri wu nuuru laa jus waaye nuuru laa ku ne xaj na ci biiram parce que dafa yemul ci jus kase déedéet waaw day def lépp luy jëm ci traitage traiteur Ah, ah da koy def caa jox na leen ku ci nekk jour yi nga xamante ne moom ngeen war a korité ak yu ni mel donc dañ leen ni sant bu baax ci ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ñu waa Firdawsi Barakisi Barakisi séddale ko gars yi bu mag bi ceeb ko moom murit saadex euh, ku si gën a ceeb doo moom boobu man man ceeb nga jox sëñ ah. galas sama waaw sëñ galas nga jox sëñ Maam ah, bi waaw waaw boobu boobu ceeb la euh, waroon ma bu mag rek ah sëñ Maama bi bi sëñ Maama bu mag bi bi bi mag na. ceddo tegaat na ci toftalaat na ci yeneen dàll yoo xamante ne comme façon yi nga xamante ne moom la sëñ Garas sol. ay Hermès ak yu ne la ñuy def ci marque dàll. donc comme barakis yi xamuñu woon exactement mesure gars yi donc dañu joxe rek yi nga xamante ne moom mooy kii. ñoom lu ñu joxe day baax. waaw waaw waaw <laughs> teraanga Firdaws. ay taalibe Serigne Saliou muy sëñ Massamba ak ki nga xamante ne moom mooy sëñ Youssou. ñu leen di gërëm bu baax a baax baax bëgg Serigne Touba ba mu jeex takk wax dëgg yàlla ñu ay ndaw yoo xamante ne dañuy nekk tout tànk di door a door ñu leen di ñaanal bu baax wax dëgg yàlla hmm. kële nga xamante ne ceddo <laughs> mooy ameti Abdoulaye waaw ndaw la moom mi màggal gu jot découpage fruit yi ngay gis Touba li muy rëy rëy rëy rëy hmm. fu ci nekk dana fa dem def découpage fruit yi xale moom mii xale boo am oh. jom hmm. mooy ki nga xamante ne waaye moom it muy muy muy ñu ñu dippee ko Serigne Saliou bis bi di bis Serigne muy jaaykatu fruit ma waxal la ko. est-ce que xam nga jaaykatu fruit la dañu bëgg rek. te Serigne Touba tax. loolu de kéemaan la bëgguñu kase te Serigne Touba tax. Mhm. mu ne joxe lii yëpp ci ay fruits. Mhm. moom mu découpé ko. Eh defar ko ba mu baax confrontation. waaw moom moom moom team confrontation la bokk. kii team confrontation la bokk. waaye Saliou mi nga xamante ne mooy jaay fruits yi ñu koy gërëm. waaye du ñu jóg ci gërëm ci nga xamante ne moom mooy borom tapis vert Amadou Gueye 50. 50 waaw 50 mi nga xamante ne xaritu moo xaritu moo taxaw ci 50. ah ma taxaw ci fifty ci a bisu fifty faaw nga taxaw ci ndax jàmbaar la. waaw ñun fi ñu toll nii tembe. Mhm. dañoo ne ci ndigalu sëriñ bi. Mhm. te nekk gi ci nekk dafa am loo bëree bëri luñ ci war. Mhm. ndax kon ku nga xam ne Baye Fall li war ci diggante ak sëriñ bi rawatina weeru koor gi. muy joxe ñaqam joxe wala. te lu waay jox rek. lépp mu di ko def gratuitement. kon na xam ne moom def na addiyaam ci liggéey sëriñ bi. surtout awa muy déplacé wu chaque fois personnel bi. dañuy sonn. waaw mënoon leen ko wax rek ñu daal di lu sëñ Galas. parce que ñoom acte bi ñuy def. dafa dafa dafa dëgg la waaw Souleymane ñoom ñëpp ñoom ña ah. ñëpp ku lim. xam nga mhm. Mhm. Mhm. a may nga mën koo joxe. Serigne Saliou ku mu dëbbu kattan jox la ay xéwal. Mhm. da lay may nga mën koo joxe. loolu moom ku ko xamewut ni ma ko xamee man xamee naa ko noonu. ndeysaan. nit ku Serigne Sall la da joxe rek li moom. dama dégg ko. da nga jëlee rek man sëy moo ma ko woon. sëfooru sëñ bi kay moo ma ko woon ci téléphone am. Mhm. waaw. ma ne ko waa kii mooy kan mu ne ma taalib Serigne Saliou la. taalib Serigne Saliou la te bëgg ko lool. baax te bëgg ko waa kii fu nekkoon ba xaw ko. ndax man na ko bëggee Serigne Sall ni war naa laa xam mhm. waaye ñu ngi koy sant nag ci xéewal yi bu baax waaw ak ñi ngi fii lim ñëpp nag mhm. ñi indi ay xéewal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax jërëjëf Serigne Touba rek tax ñu a sol nii parce que seexal bi waaw bu ñuy wax sëñ Massamba Loum mhm. Serigne Thierno Kane Gassar moo ko moo defal na bi mu yëgee émission bi la jël lii jox ma ko ne ma toog sol ko tudd yàlla waaw ah, waaw waaw tey jii dama ñëw naa def xaalis bëri. Mhm. kon bu ma ñëwee ba fii te te tëntuma ko. waaw ah. mhm. da nga koy tudd da ku la neex ndax yéen Serigne Touba moo leen yëkkati. waaw waxu leen lu dul ci Serigne Touba. xanaa xamoon ne daaw daaw ki ma ki ma joxoon li ma sol. Mhm. daaw muy sëñ Mouhamed Diop Mouride. waaw Mouride sëñ Mouride Binta Fall moo ma ko joxaat tey. ah waaw kama solaloon daaw te xam naa ne bu déwénee moom mooy solo incha allah yow da ngay ñëwaat yow pare woo de yéen du ngeen pare de yéen da ñëwaat yow yow sëñ boobu. moom murid la waaye nag xam nga day waaru biir moo a waaye ci biir waaw moo ma jox yére bi. ah. kan Soxna Fat Bintu. bu sëñ Abdou Karim papaam moo ma jox yére bi waaye juróom bu góor moo ko jox yére bi. waaw Abdoulahat Mbaw bu baax. te imaam la imaam di nuyu soxna Ami Mbacke maam Ami mhm. ak soxna Lika Mbengue ñi nga xam ñoo ne ci biir kër Sëñ Abdou Karim. mais sëñ sëñ Galas dama bëgg nga soxna bi joxe bi waaw dama bëgg def benn témoignage rek ci Cheikh Bass Gueye Saliou Saliou Saliou yónnee na la ndax 20 000 addiya euh, Cheikh Bass Gueye Serigne Saliou borom xam-xam bu mag boobu di jàmbaar lool Cheikh Bass Serigne Saliou dafa waxoon loolu dégg naa sëñ sëñ dafa waxoon nee def ci ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ñi barkeeloo ñu ko indiloon bi mu waxee mm. mu defar leen ñim defaraat te indiwuñ te indiwuñ ko ci moom moo ëpp kenn xamul man nag sama dégg laay waxee dafa am ñum defar directement am ñum defar indirectement man mii ci laa bokk loolu bu fekkente ne mën nga maa may man xaa may ma ma eggale rek man mii ci ñim defar te te yóbbuwuñ leen xel kom ci laa bokk loolu am na ndax man tubaab laa jàng hmm. alxuraan xasaay gi may jàng nii hmm. jàngiwu kenn jàngaluma alxuraan barki xaadim rasul nee na tubaab nga jàng bala nga laay jàngi xasaay ma ne ah. loolu nga moo am mm-hmm. xoolal njabootu seex Béthio gi mm-hmm. waaw ñetti téeméeri góor rek a ci dem xel ko ñi des mm-hmm. ñëpp fil leen Cheikh bi jël sol leen Serigne Saliou moom rek la ñuy doxee ak ak ak ak maam defarug ñoom nii xam nga bi nga ci duggee ceddo man duggaguma ci woon waaye dama ci dugg de émission bi daa jeex képp kuy dongob Serigne Saliou képp kuy dongob Serigne Saliou war ngaa seere loolu waaw cofeel gi mu amoon ci Serigne Saliou mhm. ak bëgg gi mu amoon ci Serigne Saliou mhm. loolu mu sëñ bi sax moo nekkoon cofeel gi am ci man ak bëgg gi nga am ci man mhm. picc yi sax xam nañu ko moo ko ko de cey Serigne ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk cey leeram gën a yokk amiin amiin jàngaloo leen xasaay suñu tuwaay ba ñu mokkal ko sas wi. cay la ilaha illallah. biisu ci la. Mm-hmm. dëgg la waaw ah mine de laa bokk sax de. bëgg bëgg bëgg mm-hmm. bëgg sëñ sëñ sëñ Tuubaa. Mm-hmm. maa ngi nii ak bëgg mu jaaree ko ci sëriñ eh, sax jaar Modou Mbaye gi ruubee la. waaye nag am na Modou Mbaye rek maa fàtte. ñoo yam waaw ah macha allah. jàmbaari sëriñ Saliou jooju yi. yal na ko yàlla gën a wéral. bu doy waar taxaw. dañ ko dimbali. ngeen may mayit maa ngi sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax. borom ma Karim dañu am jour. non galas yow il faut ñu jàppaat bés. sa su sëñ sëñ Abdou Karim sëñ Fallou. Uh-huh. ah sañ nañoo koor ba koor gi jeex te ñu waxtaanee sëñ Fallou. jeex na ah, ah loolu xel xalaat ko ak borom Daaru Muxti. ah, ah kooku war nañ ko waxtaanee de. loolu c'est ah, galas jox ñu sa jot rek fi koor gi di dem waaw galas fexeel jox ñu sa jot. nga liggéeyal Serigne Touba. ci mhm. li des ci koor gi waaw parce que tamit. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. bu ñu demee ba. Euh, donte sax wax dëgg yàlla euh, xam nga koor gi plateau télé moo demee noonu. Mhm. waaye sëñ Tuubaa du lu ñuy utal app ñun sañuñu ko. waaye dafa am temps d'antenne am heure am fu muy yem. Euh, dañuy rafetal rek. ci ci yooyu yëpp waaye ku ne xam na ne suñuy tawxit sax may ñu ñuy am ñu koy wutal am waaye yow sëñ Galas danga bokk ci jëmm yi nga xamante ne dañoo war di génn di wax dëgg la parce que maa fekkee ak dégg naa ak dañ ma nettali duñ benn. Mhm. waaw wax ñi ko war a wax dañ ko war a wax génn di wax. bu bu waxuñu pour far wala waxuñu pour. def benn parparloo. ndax wax dëgg yàlla mbiru Serigne Serigne Touba ay mbiram yàlla njëkk parparloo ci ay mbiram. waaw loolu moom. nañu arrêté waaw nañu fexe arrêté rek ñu rafetal bisu bës naa rafetal gi yëpp Serigne Saliou quatre heures de temps waaw donc rek doy na waaw euh, galas faaw nga ñu lay teg ci plateau télé yi li tax may koy wax noonu mhm. mooy moom Ceddo euh, euh, dafa dafa dafa baaxoowul di dem ci plateau télé yi te moom dafa war a wax mhm. dëgg la waaw da ngaa war a wax kon mi ngi seen loxo non mais ndax nii rek mën a demee waaw waaw ndax waaw galas day ñëwaat ndax waxuma la nag ñëwaat yeneen ñëwaat yi de yi ngay ñëwaat loolu ñeneen yi di ñëw moom dama ne day ñëwaat mhm. parce que moom Serigne Touba da koy waxtaanee ci loo xamante ne amu ci benn arrière pensée te amu ci euh, euh, leneen lu mu ciy teg waaw du xam nga fi may waxee mhm. waaw ñiy teg dafa metti moom mii da koy def te Serigne Touba tax <laughs> donc lu mu ci am rek da koo mérité ngir jëmmi Serigne Touba jërëjëf mhm. jërëjëf sëñ Mamor <laughs> ñu ngi lay jaajëfal ndax ku ne xam na ne xat na temps bi dafa xat te euh, wax dëgg yàlla Euh, yéen dafa am ci ndigal lu ngeen nekk. koor gi mmh. Mmh. kuy Baay Faal xam na ne amoo jot. dëgg la kuy Baay Faal xam nañ ne amu leen jot ci koor gi. dëgg la yàlla dafa dogal daaw. Mmh. ci koor gi nga xamante ne moom la Pape encore bii Pape Sidi doon def ñoom lamp ñi ñoo ma yabaloon man maa demoon fële ñu demoon ndogu ya jëlee ma genre format boobu lañ doon def rek muy lu rafet da ngay xëy ñu yee la sa kër doo xam fu ñu la yóbbu dëgg la ñu yóbbu ma directement ca ndogu yow daanaka ma am tawféex boobu bokk naa ci yéen waaw waaw saxaar si dugguma dem ca togg ya dem ca jaabante ba an ah, waaw waaw yooyu yëpp li feeñ ci man bari na Sëriñ Tuubaa daf ma beral loxo ma xam loolu la ah, ah sëñ Galas lépp lu mel xam naa la bu ah. la ndeysaan oh, oh, yow day tey nag ci yoon waaw yaa ngi bañ ne bañ ne jotaayu Cheikh Fall bi la la annoncé yow na na nga ñëw yow waaw yow yow yow ku mu mës a bëgg nga sa liggéey teg ko ci yoon mm-hmm. confrontation mm-hmm. émission boobu amul fenn ci àdduna. déedéet. yaa ngi toog bi ma sëñ bi daan bu ko arrêté. sëñ Abdou Karim Mbacke neen la bu ko arrêté. maa wax lii la ma wax ndax moom wax wax da koo xam. xam nga xam wax dafa am solo. te mu mm. dafa xam wax. Mm. tey lii jëriñ nit ñi nag ci lay encouragé. ak bëgg Cheikh Ibra waaw. nee na dërët ko mais sëñ bi nit ñi dañuy kii émission bi dafa xaw a bu ko dem toll foo xamante mm. émission bi nee annonce du ko am te ku ne ah, xam ne dogalu sëriñ ah, dañuy toog ah, waaw nit ñi dinañ dem ba di ko toogaat dañ koy toogaat di ko xaar loolu dogal mhm. loolu la yàlla ñu ñu ngi wax normal fii duñu wax lu am benn am solo salaat lamp Gueye waaw ñu koy beral cant de ah, ndax maanaam murid ne xamuñu nuñ koy def ndax changement bu bari def na ko ci liggéey bu am solo lay am moom lay jooy wuyu ma lamp fu mu ñu fekk meem ñu <laughs> lamp ca ndog la ñu <laughs> ñu fekk rek dafa bëgg sëriñ bi waaw meebu nu fa am na benn karim bi ma gis mu fi yëngatu nag moo tax Baye Karim lamp ku la yeb Khadija Baye Karim waaw Khadija woon ne moom it fonk sëriñ la billaahi papa sëñ Dieng sëñ. mais Galas kañ la ñuy. Thierno ñu koy sant bu Galas non non non yow fi mu Galas ci nga bokk maa ngi lay sant de. Galas da cee bokk de. waaw dëgg la waaw da cee bokk ñu ngi gërëm Seydina Thioune bu baax. ci équipe bi nga bokk sama xarit boobu. yow bul sant sa bopp. wuyul fële. waaw Lamp Gueye Lamp Gueye maa ngi koy gërëm. <laughs> force forcé na ma ko. wuy ma bii a jox pour mu jox ko soxna si. waaw maa ngi amul amul amul soxna dencal. bu ma rek léegi déedéet dafa nekk nag soxna. maa ngi forcé wu sama bopp. waaw ma fekk na ma waaw comme ma fekk na ma. ok Fall sëñ Fall. a yow jeex na a maa ngi forcé wu sama bopp. di sante Lamp gay mais ndax daf mako forcer. <laughs> ñu dimbale la ci. waaw neexuma souffre pour le faire. waaw maa mang koy forcer wu sama bop diko muñ. di ñaan Sénégal yépp ñu muñal ma ci cant gi may sant Lamp ay ayca ñu jox gaay ñu tëj normal ma ngi santit it Abdoulahat Mbow. ah, ah bu Pikine ba ma njëkkee ko ci yow. moma moma moo ben yon rek. bu leet sax nak nit ñawal ma sax pour émission. ndeysaan waaw. sa tay lañ amul dula jot. waaw motax waaw gis nga dama gatt torop te tuuti. waaw mo ngi waaye maa ngi koy sant bu baax ndax ndeysaan def na ci pëseef ma nga Pikine defe naa ñëpp xam nañ ko Abdou Lahad Mbow Abdou Lahad waaw mhm. moom moom tubaarkàlla maa ngi koy sant bu baax di sant euh, Cheikh Bane Diop mi nga xam moo ma booleeg moom mhm. as ngóor la soo xam ne sama waaye la yat ma lool gasel ah. gasel waaw waaye nag maa ngi sant waa réew mi yëpp di jéggalu lépp loo xam ne kàddu la bu génne ci sunu làmmiñ te jubul mhm. du sunu xëy na kuy wax sax léeg-léeg nga toll foo xam doo dégg sa bopp waaye nag yéene ju rafet ak bëgg a wax lu baax lu am njariñ képp mhm. moom la ñuy tàmbalee te moom la ñuy yeggalee kon ñu ngi di sant di gërëm ñëpp jërëjëf di la sant bu baax soxna Bijou jërëjëf sëñ borom kër gi sëñ Alaaj Ndiaye ak madame Ndiaye soxnaam jërëjëf mm. di sant moo du mbay bu baax ak Alaaji Bekkaay sa wayjur wu baax wu rafet xol wi jërëjëf sant ñëpp rek sant samay bokk samay wayjur samay xarit ñëpp rek di gërëm kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax ci bokk ci plateau bi nga xamante ne dañ ciy waxtaanee tey Cheikh Ibra uh-huh. muy génn góor yaakaar naa ni plateau bi ñàngat bi am na solo te uh-huh. incha allah njëriñ génn na fi uh-huh. di leen jaajëfal rek di kontaan ci bokk ak yow plateau yaa ngi wax léegi eh, ci Fifteek partenaires yi lay jàppale wallahi lazim ñëpp dañuy ñëw jàppale si la ndax sa xol ñëpp dina ñëw jàppale si la ndax liggéey bu am njëriñ bi ngay liggéeyal Sénégal mhm. yal na yàlla sàmm la mhm. ci barki yonent bi di nuyu di jaajëfal ñu ñu bokkal plateau bi sëñ Mamour mhm. di ko jaajëfal bu baax a baax a ah, sëñ Galas ñu ngi koy jaajëfal sama xarit bi moo daay defaal Baye Fall bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax di nuyu sañ Abdou bu baax a baax a baax moom it di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm di remercier Karim euh, Rimka Couture ah da nga bàyyi first class. non non Rimka moom it xam Rimka keroog dañoo ñëwoon ci jàng yi. Mm-hmm. bo yu am bakri yi. Ah. mu mu mu mu ne yaa ngi def ci jàng yi lu am solo. waaw dañuy dañuy dañuy lii rek. yaa ngi def lu am solo. dañuy bugg nga gars yi wétali foofu nag la ma a dugal. jàng yi waaw parce que moo gën a relax. xam nga man. yaay sama xarit rek parce que looloo fi des sant ak jariñu rek a fi des. xam nga yaay sama xarit amul leneen. waa léegi yaay sama ah, ah, la de. dañ woo galas mu ñëw d'office sëñ Fall dañuy waxtaanee Ndiob Afia sëñ Fall ak galas Jatara tàgguwaale naa inspiration yi mercredi ak Salia mercredi sëñ galas ñëwaat ak Serlo waaw ñu waxtaanee sëñ Fall d'office jeex na yow fi mu ne nii tamit mooy ñëw du ñëw demi mesure wax naa la ko waaw yow fexeel ba pare rek ayca sëñ Modou Aïda Fall ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay. di rafetlu di ñaan yàlla baat bi gën a wér. Sëriñ Tuubaa yokk la Cheikh Fall mi nga mi nga yaakaar dëgg yàlla. li ñëw fii ci émission bi. moo jaayante gi jëm Cheikh Ibrahima. dëgg la wéerul Fall. ndax suñ sëñ bi. moo daal ci lu ñuy defal Cheikh Ibrahima Fall. annoncé ko ba li ñuy dégg ba li ba ñëpp waaw ñuy foofu boo dee parental sax xam nañ ne moo lay doon. ah mu ngi si kaw. Mhm. sama yaakaar moom dafa am bëri. Mhm. waaye kon coono dong teelu ñëw nag. Mhm. dañuy ñëw ndax dañ koo diggee ba noppi ñëpp du ko xaar. waaye li li la ñu sonne nag la ñu sonne. yàlla nañu a sonne te mooy. amiin amiin mooy yi ñun lu ñu sonal moom. waaw waaw amiin loolu rek moo tax ñu jànkuwanteeg ay coono. ak it euh, soppe yi doon taaxee doon ñu xaar bëgg ñu ñu bañ ñoo gis boo tax ñu jaayante ñoom bu jëm manqué rabal nañ ba sonn maa ngi santaan bu baax nag tey gërëm ak sëñ Massamba Lo mm. ku ne yaa ngi wax ki la solo waaye man moo ma sonal Massamba Lo waaw te te teraanga bu jug ci man nag mm. ah, ndeysaan mm. yàlla na ko jox li ak ko mm-hmm. sama morom ko du defal ko ko mm-hmm. di baax sama sama di taxaw baax baax baax di sant samay waajur di sant samay bokk di sant samay sopp yëpp di ñaan ci daraja Cheikh Ibra Fall yéen ñi teew yëpp dañ waxtaane jëm mag Cheikh Fall yàlla Cheikh Ibra Fall bacc na ay jërëjëf yow nag am nañu rendez-vous bu ñu ah. ngi yow fii incha allah fekk nga dal jërëjëf jërëjëf jërëjëf ayca sëñ Abdou ñu ngi jaajëfal bu baax sa teewaay di kontaan bu baax ci sa ci sa ayca euh, bi <laughs> noo sant boole ñu ngeen ñu boole ci plateau bëgg gi mu ko bëgg mm. yàlla rek laa koy seet euh, bi bu fekkee mën nañu may tuuti ñu tàggoo ah mm-hmm. maa ngi leen di sant bu baax nag sant Thierno Mouride Sadio mi nga xam ne plateau bi moom moo ma ci boole mm-hmm. yàlla dogal mu xamante muy nit ku baax ku bëgg Serigne Touba ku bëgg Serigne Sadio maa ngi sant nag sama sama waajur wu jigéen mhm. di ah, dafa mel ni sa micro dafa fay lañ ma wax mhm. euh, euh, xam naa mi ngi ñaanal jur bu góoram waajur bu jigéen ak ñëpp du ah. mhm. foofu nga nekkoon jërëjëf ayca euh, sa day jox sëñ Mamour Ndaw mu daal di tàggatoo en bonne et due ngi kontaan bu baax wax dëgg yàlla sa teewaay ci plateau bi ah yow fierté nga wax dëgg yàlla ci yoonu murit ah, euh, euh, ñu ngi kontaan bu baax di la jaajëfal alhamdulilah tubaarkalla jërëjëf sono bisu jërëjëf ñu ñaan sunu boroom mu doon la taxaw bu baax Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom la jagleelal guddi gi mhm. yàlla leen teg loxo di ziar bu baax amit sama jëwriñ Thierno Mouride Sall gàtt na waaye partie de mise la rek waaw sëñ <laughs> baax jaajëf di sëñ Modou di siyaar sëñ Mouride Aïda mi nga xam ne ñoo bokk fu ñuy xëy ndax dañuy daal di takk jóg léegi <laughs> jëm ca ndog yee incha allah di sant bu baax nag euh, sunu kilifa muy am Amdi Ndaw mi nga xam ne mhm. tey mooy xalifa Baye Cheikh Ndaw di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér di siyaar nag mboolem njabootug sunu maam Cheikh Ndaw gi yëpp di sunu siyaar sunu wayjur yëpp tam nag waaye di delloowaat di ñaanal sëriñ Cheikh mu Fall mu yàgg fi lool te wér di beral nuyu ak ziar na mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp. teg ko ci loxol nag jëwriñ Serigne Modou Fall moom mu di Yaasin mi nga xam moo lëkkale mboolem sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax. di beral nuyu ak ziar yoo xam ne nag. fu ma toogee ne ne ci Cheikh sama xel du mas a ñoom ndax dañuy ay jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall. muy Serigne Babacar Mbaw bu ndéem te nekk tey Mbàkke Kajoor dafa liggéey liggéey bu am solo ak seex Cheikh Sidi baay fal mm-hmm. ay jàmbaar lañ yoo xam ne élément Cheikh Ibra Fall lañ yoo xam Cheikh Ibra ci bopam mo leen wadjal di leen lo ma ngi ñaan suñu borom Cheikh Ibra debbu leen katan di ziar bu baaxa baax Serigne mohammed Diop Mourid nga xamné tay ni momako defal mhm. te momit it bu mi bi moko jox pass <laughs> bu mu ñëwee te foko fekk mi ngi ci liggéey mam Cheikh Ibrahima Fall mom ci produit Serigne mourid Binta la bok ñu ngi ñaan yalla yalla nako sa borom defal yag ak wir di ziar mbolem nak bokki talibé gis nga Mourid ye tok né ma gungé mhm. genn wàll gep Cheikh Modou Fallou Fall mooy seen buntu sëñ Mor Binta Fall dañ ma sotlé ci nak sotlé si moy ñew ngir tewlu ak tatan taataan fi bayiko ko di rot ci mam Cheikh ibrahim Fall bàyyi mor dina ñoo ngi ñaan dal li Cheikh Fall ci seddelé moy lam daan ñaan daan wax naan yalla bun ñu jaawalé seenu ñaan dee luñ ci bolé yalla bun ñu jaawalé seenu ñaan dee luñ ci boole yàlla bun xat ban fàttenu dee len wax yalla nañ jekku ndigal waye yalla nañ ci mu dok te forom ndog jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour sëñ Galas yow moom partie reprise remise la rek. ba gannaaw suba. waaw kañ la Modou mercredi incha allah. di ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall bi yàgg lool te gën a wér. Mm-hmm. Ah. amiin di ñaanal Serigne Cheikh Saliou bi nga xam ne mooy xalifa Serigne Saliou. amiin nga mm-hmm. xam ne bokkoon na ci waxtaan bi. Mm-hmm. mu yàgg fi loolu te gën a wér. amiin eh, di ñaanal suma féete Cheikh Abdoul Karim Mbacké Serigne Fall. ah waaw mu yàgg fi loolu te gën a wér ndeysaan <laughs> sama ñaari soxna yi muy xujja sekk ak jàll ji maa ngi leen di nuyu ñoom itam ak seen njaboot ak waa kër gi ñëpp góor ñëpp jërëjëf jërëjëf ñu ñëpp jërëjëf sëñ Galas nuyu mbokki taalibe yëpp nag mboolem ñu fi indi ay xéwal mm. ñu ngi leen sant bu baax mm-hmm. ma delluwaat rek ne leen mbubb mii ma indi mm-hmm. imaam puy mm-hmm. euh, waajuru soxna fat bintu puy moo ma ko jox te yàlla rek a tax mu jox ma Euh, ñi ngi nuyu soxna maam Ami bi nga xam ne moom ne ci kër gi jiitu fa soxna Fat Bintu soxna Fat yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax ñëpp nag ñëpp ne ci kër ñëpp jërëjëf allahumma salli jërëjëf sëñ Galas euh, sëñ Galas yow moom dañ lay jox rendez-vous bu mercredi incha allah rek incha allah ah, te xam ne mercredi wax dëgg yàlla moom ak njóogu aafiya ah waaw njóogu aafiya waaw euh, di sant rek di gërëm ñi nga xamante ne euh, wax dëgg yàlla ñoom la ñuy àndal à chaque fois ci émission bi ah bokk na ci tapis maa ngi koy waxaat sànq léegi nii mi ngi nekk fële ca euh, wax ancien piste bi tali bi nga xamante ne mooy jëm euh, kër Cheikh Béthio foofu la tapis nekk ah Amadou Gueye fifti ñu koy gërëm bu baax di gërëm Awa di gërëm ñoom Souleymane di gërëm xale ya fa nekk yëpp wax dëgg yàlla di leen gërëm di leen sant bu baax

borom macha allah cargo ñu koy gërëm bu baax ci coffre yi nga xamante ne maye na ko ah oh. euh, euh, wax dëgg yàlla ñu koy gërëm di ko sant moom émir xadi euh, gaawaan ak ñëpp ñu nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy setaan ah wax dëgg yàlla xàmme ñu ci écran yi Madeleine Mbaye ah ñu ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu moom ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañ kontaan émission bi depuis Touba ñu ñëw ñu leen di jaale ah di profité di jaale waale sama way jur bu jigéen ah ndax way jur bu jigéenam dafa dafa wàcc waaw dafa wàcc ñu am wax dëgg yàlla Euh, sant sëriñ bi ci sant cant goo xamante ne ceddo euh, euh, wax dëgg yàlla yaa ngi fa woon sëñ am sa denc ko waaw ñu am ñu am ñu am ñu am tawféex boobu sëñ am sa moo ko moo ko denc ah jébbal ko boromam donc wax dëgg yàlla rafet nañ jot ci moom ñu koy gërëm bu baax di sant sëñ am sa bu baax a baax a baax a baax di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla di leen jaale di jaale rakkam yëpp ah à l'unanimité ku lim daal di juum di jaale sa tam yëpp wax dëgg yàlla ku sëriñ tubaa dimbali woon la ndax boo dundee ba fekkee say sëtër ñi noonu la ñuy wax say sëtaat donc c'est que man mii rek bu ma amee sët donc moom mu nekk sama maam donc dund ba fekkee ay sëtër ñeem Serigne Touba teral na leen la muy wax ca màgget xam naa mercredi danañ ca dugg galas la ñu war a dugg mercredi bari na de da nga war di toog ci plateau yi wax naa la ko damay gërëm aussi ki nga xamante ne moom mooy faa laa Linguère waaye kenn du waa MG business Mourtala sama dom ji ah wax deug yàlla mursala Guèye mom moy wa MG business parfum parfum lépp lu jëm ci parfum de classe ba ci Jiki guerlé bi nga xamantene mom lañuy ziare seigne Mountakha da ci da ci taxaw saay suma ko soxla extrait de parfum bi day wo kiss ma ci sa suñu dal di koy yónnee donc dañuy sante sëriñ bi bu baax wax deug yàlla ci xéwal yi nga xamantene defal nako mom mursala Mourtala muy xale han yii sa yoss la non jiki bi du nek fi jiki du parfum xale jëlal han ak musuf bek yoy yep ñu ngi koy gërëm bu baax wax dëgg yàlla di ko sant di jaajëfal aussi ki nga xamante ne moom mooy euh,